wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain ya rabbi lisrah fi dawamin sadri sarhan bihi akunu misla badri rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli laysa li al yawma hajatun uammiluha siwa ikhtifaika khafwal qalbi wal badani wa kun amami wa kun khalfi wa kun wasati wa fi yamini simali ya raja yakuni mbokki julli di mbokki taalibe yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo ziyaara leen ñoo ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu borom yàggal ko fi loolu te mu wér noo ngi ziyaare bu baax a baax ak ñaanal njabootu sëñ Touba gépp dellusiwaat ak yéen ci seen plateau spécial yi nga xam ne Touba TV dana leen ko faral di amal euh, saa su nekk xam ne ne gaaw bi nag daanañu àndandoo ak yéen ci euh, émission bii di euh, diwaan tey jii nag nuy fàttaliku dund ak jaar-jaar yi sunu jàmbaar jooju di Ubaydu Rabbihi wa ibnu Cheikhihi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Eh, di ñaan sunu borom dolli ay leeram te taas ci barkeem eh, te itam jotal nu ci liggéey ba mu liggéeyal Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul eh, di ñaanal Serigne Sidi Mbacke mi nga xam ne nii Serigne Sidi mu Cheikh Abdoul mi nga xam ne moo fi toog toogaayub Cheikh Abdoul Ahad yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal wéral ko dëgëral ko kàttanal ko may ko mu yëggale li mu yéenee liggéeyal Cheikh Abdoul Ahad yëpp ak njabootu Cheikh Abdoul Ahad gépp di ko ñaanal ab sac la ci ñun ab sàkk la itam ci yoon wi di ziare mboolem nag fu njabootu Cheikh Abdoul Ahad nekk Euh, ñoo ngi lay fekk fa nga nekk di la jox wàccuwaay bu rëy xam ngeen ne Touba TV at mu nekk danay def fàttaliku ak dunduk Cheikh Abdoul Ahad ngir ñaar benn euh, li may fa xam ne euh, képp kuy dox ci réew mi dib murit wala nga dib jullit rek am nga récompense boo war a fay Cheikh Abdoul Ahad ndax taxawaay bi nga xam ne ni Cheikh Abdoul Ahad amoon na ko ci réew mi ci aspect bu mu mën a doon nag ci àddina Cheikh Abdoul Ahad loxoom duggoon na ci te muy lu baax wala muy loo xam luy jariñ askan wi lay doon Euh, loolu moo waral Touba TV ñëwaat tey beneen bi ci topp mooy alaaq relation bi nga xam ne dox na diggante ki nga xam ne ni moom la yàlla jaarale Touba TV ci loxoom muy alaaji mbàkk yu fay ñu di ko ziyaare di ko ñaanal bu baax a baax yàlla yàggal ko fi wéral ko moom it may ko mu yeggale euh, ndax digganteem ak Cheikh Abdoul Ahad rek ñu ci defoon émission rek day doy sëkk euh, bañ na ko ba dafay faral di wax ne sama Abdoul Ahad nii Cheikh Abdoul Ahad ko tudd tudd ko boppam waaye nag gàtt ba nga xam ne itam moom lañ ko defee ak taxawaay ci amoon yëpp moo tax tey ñu ngi ziar baax Cheikh Abdou Lahad Faye nag moom Alaaji Mbàkke yu euh, yaakaar na relation yu bare bare bare bare Cheikh Alaaji Mbàkke yu seq na ko ak Cheikh Abdou Lahad ñu nuyu baax sëriñ suñu waajur sëriñ Cheikh Balla Samb di nuyu sëñ Jibril Ndaw sëñ Mbàkke Mbodj ñi nga xam ñoo yor production euh, Touba TV ak direction programme Euh, tey ji nag euh, sunu plateau xam ngeen ne fas nañu ci yéen àndandoo ak euh, sëriñ Abdoulaye Diop Bichri mi ñëpp xam ci xam-xam bu rafet ak taxawaayam ci liggéeyal sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ñi ma koy waxee saa su nekk sëriñ Abdoulaye Xaadimul Xadim yëngoo mag dalam lépp di sëriñ tubaa waaye ñu feggoo ceeg directeur de programme Eh, tey nag moom dafa ma daaneel moo tax ameel naa ko addee ju rëy eh, alaaj Jibril Ndaw ñu di ko ziyaare bu baax a baax ci di sant itam teewaayam ci plateau bi xam ngeen ne war nañu ànd ak eh, plateau bi ak suñu waajur sëñ Abdoulaye Mbaye Peex yàlla dogal mu nekkoon fële ca Kaffrine jombul balaa jataay bee sori dana yegg si ndax tey moom la ñu waroon a séq li nga xam ne ni mooy plateau tey jii ñu waroon waxtaanee dundu Cheikh Abdoul Ahad noo ngi am ci plateau bi sunu jëwriñ sunu xarit sunu wëlëree Serigne Ibrahima Fall tubaa Forage muy koo xam ne nii kenn la ci euh, kër Serigne Touba Khadim Rasoul di ku baax di koo xam ne nii taalibeb Serigne di Khadi euh, di sunu xarit di suñu wëllëre euh, moom itam di wax ne su ma duggee ci biir yoonu murit tey ba di taalibe ba di Baye Fall tey Cheikh Abdoul Ahad laa koy sante ñu di ko ziyaare baax a baax di ko ñaanal tey ji nag sunu plateau xam ngeen ne maa ngi nuyu bu baax a baax sëñ Kamal sëñ Kamal Ñang Couture xam ngeen ne tey moom moo ñu wax rek ne plateau Cheikh Abdoul Ahad tey Euh, fas naa ko yéene euh, maa koy décorer tey ci ni nga koy solo euh, sëñ Kamal nekk fii ci Ridus ñi di ko ziyaare bu baax a baax Eh, di ko ñaanal ku ne xam na digganteem ak eh, Cheikh Mouhamadul Mountakha ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne ni am na ko eh, muy maman Maguette Modou numéro am di 77 271 03 10 271 03 10 sëñ Kamal ñu di ko ziyaare bu baax a baax ci taxawaay am solo yooyu kon bala ñuy sore ci jataay bi rek sëñ Jibril dama lay bàyyi nga nuyoo sëñ Abdoulaye Diop Bichri nuyoo ndax tey plateau bi njabootu Cheikh Abdoul Ahad gépp ñu ngi toog di ko teewlu Euh, euh, sëriñ sëriñ mboolem ñi nga xam ne ni itam ñoom la ñu daan baaxoo xam nga sunu xarit sa xarit nga xam ne moom it kenn la ci télé muy sëriñ Amsatou Mbacke am Cheikh Abdoul Ahad euh, war na dugg ci ligne bi moom itam xam nga ne at mu nekk dañ koy àndandook moom waaye sunu yaay sunu xarit soxna Maymunatu Mbacke bintu Cheikh Abdoul Ahad nga xam ne moom sunu cër ak sunu digg moom kenn ku ci nekk daj ne wërngal képp àddina waaye itam ki nga xam ne ni mooy soxna Kinne Mbacke am Cheikh Abdoul Ahad nga xam ne tey mooy jantub Cheikh Abdou Lahad fii ci Ndakaaru taxaw fi taxawaay yu am solo eh, togg na ay xéewal yu baree baree bari tey indi ko fi eh, feggoo ak eh, soxna Anta Ndiaye male nga xam ne ma nga ca Italie soxna Anta nga xam ne moom it ndeysaan indi na fi léegi ay xéewal yu am solo nga xam ne moom dama koy wax ne ko sëñ Abdou Lahad moonu boole waaye sëñ Jibril soxna maam Faati Guèye moom soxna kinne mu Cheikh Abdou Lahad cant gi yëpp dañ ko koy beral ndax ba ñu waxee plateau bi dem ba léegi waxtu wu nekk mi ngi woote di di ñu coordonné di ñu lëkkale ak ñi nga xam ne ni kóllëre daa dox seen diggante seen blaat ak bëgg plateau bi euh, ñëpp mën koo teewlu ñu ngi koy ziare baax ma nga foofee ca Amérique danañ ci ñëw léegi waaye nu nga beral nuyoo sunu yaay soxna kennam Cheikh Abdoul Ahad sa nji su ma nuyoo ba yegg nuyuwuma euh, Serigne Aboom Cheikh Abdoul Ahad sama buntu ci sëñ Touba nga xam ne moom laa raam jox ko sama bopp àddina ak àlaxira maa ngi koy ziare baax di ko ñaanal yàlla may ko wér kàttanal ko di ci jaarale sama nuyoo di nuyu soxna maam Fatim Mbacke mu Cheikh Abdoul Ahad ma nga fële ca Kowet di ko ñaanal mu Cheikh Abdoul Ahad ambassadeur bu baax baax a baax tey nag sama kër laay waxtaanee euh, muy Cheikh Abdoul Ahad nga xam ne euh, yaakaar naa nag euh, li ñu wax ne ku mënta ku mënta ku mënta uy ji mën a fay xamoon fa mën a fay bor na ko olof yi di waxee tey nag moom damay fayee ko bor ci sëñ Abdoul Ahad ji moom sëñ Jibril maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateurs yi sëñ Abdoulaye nuyoo su ko defee ñu daal di door li nga xam ne ni mooy waxtaan sheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim sayidina muhammad wala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman barki borom Tuubaa sëñ am ñu ngi lay nuyu di nuyu mbooleem téléspectateur u Touba TV di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér ñaanal njabootu sëriñ Touba yëpp di nuyu Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Abdou Lahad ak mboolem njabootu Cheikh Abdou Lahad yëpp ñu ngi leen di nuyu. ni nga ko waxee nag di beral nuyoo suñuy xarit ci waa kër Cheikh Abdou Lahad ndax ñëpp sax suñuy xarit lañ waaye nag dañuy wax naan ki euh, loo gis rek am na jàppal diw euh, sëriñ Mahmoudan moom Cheikh Abdou Lahad waaw ca këram laa njëkk a defee reportage ci rajo moom sëñ Mahmoudan ñu ngi koy ñu ngi koy nuyu bu baax te boobaak léegi tamit mu jàpp ñu te bàyyiwuñu benn yoon di nuyu bu baax a baax ni nga ko waxee euh, suñu bàjjan soxna may laat di suñu mbokk di suñu bàjjan di suñu sëriñ di suñu lépp di ku baax ku yaatu te yaatal am ful la lool dool jël sëñ Abdou moom it ñu ngi koy ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ni nga ko waxee sëñ Amsatu Mbàkke moom si Abdou ñu ngi koy nuyu nuyu njabootug si Abdou Lahad gépp daal wax dëgg yàlla ñoom ñëpp suñuy suñuy xarit lañ suñuy wëllëre lañ suñuy sëriñ lañ ñu leen di ziar waaye nag di ziar bu baax a baax nag taalibe yi tamit rawatina turandooy Cheikh Abdou Lahad yëpp ñoom ñu ngi leen di nuyu te yaakaar naa buñ ci tuddee euh, Abdou Lahad Ka ñoo xamante mooy maire bu Touba Euh, tudd sëñ Abdoulahat Jaxate tudd yi tamit euh, sama mbokki buso buso yi ñoom sëñ Abdoulahat buso yooyu euh, nuyu leen yóbbaale nañ ñëpp mm-hmm. ngi leen di ziar fàttewuñu tamit si Abdoulahat Cheikh Ka moom it di kenn ci ñun moom it ñu ngi koy ñu ngi koy nuyu. waaw waaw waaw. ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu daal kon bàyyiwuñu kenn. ba ci Serigne Abdou Lahad Mbacke moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde ma mhm. moom it euh, ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. ak Soxna Asu waaw waaw. Soxna Asu Mbacke moom Serigne Cheikh Ahmadou Gaynde ma euh, mi nga xam ne euh, tubaarkàlla ñu ngi koy ziare muy sunu sëriñ di kenn ci njabootu Cheikh Abdou Lahad rawatina njabootu Serigne Sidi eh, sëñ laay maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateurs yi ginnaaw bu ñu amee mbégte nag ci sa eh, teewaay ndax tey programme la amoon bi ma ko waxee ne ko dañuy fàttaliku tey ñun Touba TV rek ay toog fàttaliku Cheikh Abdou Lahad mu bëkki ci lool ne ma amoon naa programme Pikine waaye damay ñëw àndandoo ak yéen ndax Cheikh Abdou Lahad ñun ñëpp ko war a waxtaanee eh, te it léegi rek la ma sama yaay soxna kinneem Cheikh Abdou Lahad wax ne Abdoulaye Diop Bichri jàmbaar la waaw loolu la ma mu ne ma jàmbaar la am na sax mbakkar fekk bu la dencal loo xam ne nee na ma euh, balaat plateau bay jeex incha allah kon ma bàyyi la nga nuyoo ak euh, mbokk yi sëñ Ablaye aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim mm-hmm. alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin mm-hmm. sayyidina wa nabiyina muhammadin il wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa ummatihi ajmain mhm. mbokk jullit yi mbokk taalube yi mbokk yu tedd yi topp Touba TV fi mu ne nii tembe ci àdduna bi yëpp nu ngi leen di boole nuyoo bi nu lislaam boole muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mhm. nu ngi jiital ci kàddu yi ginnaaw bu nu santee yàlla julli ci yanant bi alayhi salaatu salaam sant mhm. sëriñ Touba jébbalaat ko sunu lépp jébbal ko sunu bopp nu ngi ñaanal jëwrinam ji nga xam ni tey moo toogee jataayam mate mhm. ko sëkk te sagal islaam di sëñ Mouhamadul Muntaqa Bachir mhm. yàlla yàggal ko lool te dolli ko wér waaye di ñaanal jëwrinam rakkam mhm. soppeem sëriñ siidi Mbacke Abdoul Ahad mi nekk tey ci bopp kër sëñ Abdoul Ahad di nuyu rakkam yëpp di leen ziyaara di leen ndokkeel nuyu tam sëñ Hamza ndax taxawaayam euh, yemul rek sax ci biir kër wéejuram woowu waaye dafa yaatu ci yoonu murit lépp lu ko laal mu jub yàlla yàlla sàmm ko nu ngi koy siyaar di siyaare sunu tànt ji mu yor muy soxna joor jeng nu ngi nuyu bu baax a baax sëriñ seex lagan mbàkke abdul ahad sëriñ seex jay di sama sëriñ di sama soppe di sama xarit nu yàgg lool ndeysaan jaare ci moom nuyu soxna may ka jàmbaar jooju nga xam ni sëñ bi rek a ko ñor léegi ci ngoon sëñ xaamidun lay la may yóbbante ay kàddu ci jataay bi di bëgg lool ndeysaan ni ma fu ñu laal ci sëñ Tuubaa day mel ni man lañ ko defal ndeysaan nu ngi koy ziar mu ni soo mënoon dugg ci ligne bi dinaa bëgg lool tey ndeysaan nu ngi ziar soxna Mayka bu baax di ko ñaanal yàlla yàggal taxawaayam ñaanal mm. sunu sang boobu sëriñ Seex wallaay Jaay Mbàkke yàlla sàmm ko lool amiin amiin jàmbaari sëñ Abdoulaat jooju mm, ku baax ndeysaan waaye di nuyu bu baax nag sunu buntu sëriñ Hamza mu sëriñ Sohaybu mm-hmm. ndax xam ngeen ni moom eh, sëñ Abdoulaat ay léppam mm-hmm. mooy baayam bokk ak baayam ñaari weejur mm-hmm. waaye nag nuyu sëñ Abdou Samad son yi bu moom it mhm. bu baax sunu xarit boobu nga xam ni moom daa yaroo ci feggu sëñ Abdul Ahad mhm. nu ngi koy ziyaar bu baax di la nuyu sëñ Xaamidin di nuyu sëñ Jibril Ndaw beral nuyoo sunu gan gu tedd gii ñëw ànd ak ñun di ku baax di jëfkat wallaay ndeysaan ci yoon wi di jàmbaar ci yoon wi wallaahi di ku bëgg sëñ Touba mhm. di ku am détermination ci yoon wi ñu mhm. sëñ Ibrahima Fall Touba Forage mhm. ñu ngi koy dalal ak jàmm ci biir jataay bi ndeysaan jaarale sunu cant ci yow nga cantal ñu ko wallaay ci jàpp gi mu la jàpp rek lu la nit jàppee rek wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay di nuyu sëñ Seex Seen Bayax mi nga xam dafa ñëw ci woyofam ànd seeg ñun moom it di inspecté jataay bi nuyu borom kër gi Alaaji Ahmadou Mbàkke yu fay di ko sant bu baax dëgg la Euh, mbokk mu ñuy wax suñu Omar Gueye fii ci marché HLM. waaw yére bu rafet bii ma sol moo dagg tissu bi. Mhm. defaale ci njëkk lu ko ñaw. Mhm. jox ma ko. Mhm. waaye nag jàmbaar yi sëñ Abdul Ahad. di taalibe sëñ Seexuna. moom sëñ Abdul Ahad. di doomi sunu yaay soxna Faat Bàkke Ñas mhm. di sëñ Abdul Ahad Silla ñu tuddee ko sëñ Abdul Ahad mhm. moo ni maa koy ñaw ndax li nga war a sor ci lu ñuy waxtaan ni sëñ Abdul Ahad mhm. maa koy ñawlu doo ci def dara dëgg la ko sëñ Saaliwu Ngom Nuuru Daari ni foofu ci marché asolem mu ñaw ñaw bu rafet bi di ma sol ko dem waxtaani sama Abdul Ahad lu ngi koy ziyaar kon di ko ndokkeel ci bis bi jàll bërki démb gan gi mu amoon tuddee ko sëñ Cheikh Ahmadou Bamba Mbàkke yàlla na nuru turandoom ci lépp mu ngi lay sant bu baax di la gërëm sëñ Xaamidun sant mbokk yi ni topp yëpp sant nag soxna Kinne bintu sëñ Abdul Abdoul Ahad mm-hmm. waaw ndax moom day jàmbaar mm-hmm. ci kër sëñ Abdoul Ahad mm-hmm. yàgg na ci am taxawaay lu ñu defal weejuram wi rek mhm. taxaw na mhm. te du tay mhm. ba ma koy xam yàgg na ci inakuoi laa ko xamee mu yàgg am taxawaay ci lépp lu ñuy def di ko yëkkati mu jëm ci sëñ Tuubaa maamam wala mu jëm ci weejuram sëñ Abdul Ahad teraangaam yëpp la ciy def dëgg la kon yàlla yàlla sàmm ko te yàggal taxawaayam ñu ngi nuyu daal ñëpp sëñ Xaamidu dëgg la di sant ñëpp di la delloo kàddu gi jërëjëf sëñ Ablaye ñu nit ñu ngi lay delloo euh, nuyoo bala ñu jox euh, sëñ Ibrahima ndax moom tey mooy inspecteur liggéey bi euh, mook sëriñ Cheikh seen raaya ndax bu ne bay jeexal faaw mu yëkkati ay kaddu Euh, waaye ñi ngi am mbégteem ndax sëñ Ablaye moom jëmm ji lu ne defal nañu ko ci teraanga te ba tey ji loxoom du jóg buy waxtaan ci sama jëmm dangay ngay jàpp ne moom mm, li muy wax sax ndeysaan du ma bëgg sax ni muy wax ak nit ci man ndax euh, taxawaayam bu am solo bi nga xam am na ko moo tax maa ngi koy ñaanal yàlla taxawu ko sàmm ko may ko mu yeggale euh, Belel Boutique nekk fële ca Touba Daaru Marnaan sunu yaay soxna Ndey Xari Touré moom alaaji Serigne Cheikh Touré alaaji Serigne Cheikh Touré ku ne xam na digganteem ak Cheikh Abdoul Ahad Alaaji Seex Touré moom mooy waajuru Serigne Bassirou Touré mi nekk ci Touba TV te waajuram di soxna Taay Mbàkke moom Cheikh Abdoul Ahad ñu di ko ziyaare baax waaye soxna si daf maa wax ne ma tay samay teraanga dana ñëw ci télévision bi ndax Sëñ Abdul Ahad lu sama waajur am Sëñ Abdul ko defal euh, ñu ngi koy ziyaare baax a baax waaye nag li nu yóbbu dañ koy teg ci suñu waajur woow di soxna Ndey Xarit Touré danañ ci ñëw sax incha allah bala ñoo jeexal ak waa Rési euh, waaye doomam Sëñ Abdoul Ahad Dieng moom alaaji Mbay Jang sëñ Abdou Lahad Jang ñi di ko sant bu baax a baax di ko gërëm euh, relation yi nga xam ne sëñ Abdou Lahad am na ko itam euh, ku ci mel ni sëñ Lamine Ba dana ñëw ci waajuram nga xam ne moom taxawaay bi mu am sëñ Abdou Lahad Dia euh, sëñ Abdou Lahad sëñ sëñ Lamine Ba tubaarkàlla waajuram ak Cheikh Abdou Lahad benn lañ woon muy muy koo xam ne transitaire jàmbaar lool ci liggéeyal Cheikh Abdou Lahad di ko ziyaare bu baax a baax waaye ci téléphone bi sëñ Jibril tey dinañu am sëriñ am sa satu danañu am seriñ Galas Kaltoum mi nga xam daf maa wax ne ma Sëñ Blaat bëgg gi ma ko bëgg keroog bi mu tuddee Sëñ Blaat doom dafa wax ne tey fi tey sama lépp mat na bi ma tuddee Sëñ Blaat doom wax na ma itam bis bi nga xam ne ni moom la daan defal Sëñ ba mu amee fukki at juróom-ñaar ci la Cheikh Amadou Lamine Bara wàcc liggéey mu door a def bis boobu buñ daan wax suba la Kazu ci la daan def bisu Cheikh nekk koo xam ne itam maanaam cofeelam ci Sëñ Blaat nee na ma yëg gim yëgoon ak wàccuwaay yu Sëñ Blaat amoon moo waral ma jàpp moo tax cofeel googu des ci man ba tey sëñ Galas Kaltum danañ am itam sëñ Cerno ñaan moom xam nga ne bañ na ko ba ñaari baat yoo wax moom mu ne la Cheikh Abdoul Ahad rek moom moom yitteel euh, danañ ko am ci téléphone waaye moom it danañ ko am ci téléphone bi suñu xarit la moom di ku baax di sëtub sëñ Mor Jaara Borom Sam euh, di imam foofee ca Washington danañ ko m a am moom tamit ci ligne bi euh, waaye balaa boobu sëñ Daam sëñ Mbacke sant ci réalisation bu am solo bi ak sëñ Mansour Guèye lañ jàkkaarlool tey tubaarkàlla liggéey bi tey dana am solo ak sëñ Moustapha Seck kon sëñ Dame dañuy àndandoo seetaan premier élément bi nga xam ne ni Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi fi nekk tey Serigne Touba Khadim Rasoul moo ko seede woon ci Cheikh Abdoul Ahad ne ba moo sañee dama naan gaynde ci lislaam kon ñu àndandoo teewlu premier élément dellusiwaat ci plateau bi bismil ilaahi yéen muridi Sénégal mbokkum jullit ñu wartaala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 Cheikh Abdou Lahad Mbacké du jeex mu mel na teen am ndox bu jeex ndox bu sedd bu jeex jërëjëf waares yi eh, yaakaar naa lii danañu nuyoolee wala mu présenté ñu ki nu bëgg a waxtaane mooy kan waaye bu nu bëggee waxtaanee kilifa faw nu wax silsilaam gan càlla la gan bokk lan moo nekkoon taxawaayam kooku alaaj jibril ndaw defal nañu fi benn jàngat bu solo ñu ànd doo teewlu ko ñëwaat ci plateau bi danay feete woo def la combattina Seex Abdulaat Mbakke te am nopp déggul ku yor penkook ci sowu te na sëñ Touba ay taalibeem lañu sëñ Touba amul rak sëñ Touba amul doom min muy jëm joo xam ne ji nag moom euh, euh, day jant mu ne fànn ku neex a waxtaane la ku naqare waxtaane la nag man danaa jéggi waxtaane wane sangub jamono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 fenkee ca njaaxate soxna Mariama nag ci njëriñ waram yu tiis yewam sa si dellu jëfaat jëfam ju sew jërëjëf sëñ daam jërëjëf sëñ Mbàkke Mbodj ci réalisation bi sëñ Jibril bala maa ñëw ci sëñ Ablaay euh, documentaire bii nga def ci Cheikh Abdou dafa nekk documentaire boo xam ne man mënuma koo miis moment bi nga koy préparé di ko def ndax tey dañuy waxtaane koo xam ne nii ku am tomb ci bëgg sëñ Tuubaa mbaa nga di murit di nga xam ne joué na ci sa bopp yow loo yëg ak loo yëgut nag ci doxin boo xam li nga wax ni ci la ñëw samp nag jantub taxawaay boo xam ne lislaam la taxawal ngir sëriñ Touba te lan ban jàngat ban jàngat nga am moment bi ngay def lii di ko liggéey ci ci Sëñ Abdou Lahad euh, jërëjëf sëñ maa ngi la naan léegi danga maa danga yóbbu fu sore euh, documentaire yi liñ ci dugal mm-hmm. dama waxtaan ak euh, sëñ Mbàkke Mbàkke Bocc mhm. mu ne moom de dafa fas yéene bëggut benn yoon mu wàcc liggéey ñu koy seereel leneen lu dul kuy liggéeyal sëñ Tubaa ci métier audiovisuel bu muy def mhm. ndax métier mi dafa nekk métier moo xamante ni lañ ko xamee woon mhm. mooy produir ay clip defari théâtre organiser ay concert affaire yu mel noonu mu ni moom daal lii muy liggéey bu sañoon da ciy jeexital jeexiti ci sëñ Tubaa ma ne ko man de loolu it mooy sama yéene. Mhm. ndax damaa gis ni production wu film bu baax bu bu méngoo ak yoon wi. Mhm. depuis film màgget Diop bi mu defoon ñu tuddee woon ko ndigal. Mhm. ci ci ci ci sëñ Abdou Lahat te ñu daan ko teg cinéma. boobaak léegi production bu baax amut ci yoon murit ñu daal di àndandoo lëkkaloo ni danañu fas yéene. même buñ fi jógee ñu bàyyil yoon wi ay documentaire yoo xamante ni génération bu ñëw dina ci fekk. loolu moo waral bu ñu def suñu film. dañ naan dañ koy def mu nekk loo xamante ni lu intemporel la. Sëñ Abdou bii bi ko defee léegi bis boo ko tegee day gën a day gën a day gën a actuel muy yéene joo xamante ni dañ koo jaayante woon sëriñ bi dimbali ñu ci li muy metti metti semaine lañ ko liggéey boo xamante ni yàlla xam na ni euh, bu ñu xasee toog di liggéey. allahu akbar fajar lañuy lañuy lañuy lañuy la ñuy arrêté dem ci jumaa ji julli suñu jullee ñëw tëdd dàll tuuti ba midi ñu jógaat suñu toogaatee une ci guddi la ñuy jógaat dem doxantu semaine yàlla boo xamante ni noonu lañ ko jàppoo di ko def di ko def ba keroog ba mu matee ñu indi ko euh, jébbal ko jëbbal ko commission bi nga xamante ni ñoo ñu ko doon liggéeyloo waaye euh, documentaire boo koy def da ngay mel ni professeur maanaam da ngay jàngiwaat yu bare yoo xamante ni te li ngay jot ci ay information ci ki ngay waxtaanal lépp du xaj ci di nga ci yokk sa pas di nga ci yokk sa taalibe di nga ci xam ki ngay waxal yu bare am na yu bare yoo xam ne sax nit ñaa ngi la koy wax ci baatin ak ci jëflante mënoo koo mënoo koo wane ci film bi parce que bu yàggee euh, ñun liñ ci bëgg ci documentaire yi neewut wane ay xar baax wala wala wane baatin waaye wan nit ñi noo xamante ni kii une référence la kii war nañ koo mën a roy si loolu te Sëñ Abdu dafa dajale lu bare bare bare ci wàllu woowu boo gisee si introduction bi maa ngi ko ciy wax 1968 la la la la la la wuutu Sëñ Tuubaa 68 nekk jamono ju doy waar boo xotee révolution yi njëkk ci àdduna 68 la la tàmbalee 68 am jamono joo xamante ne jamono leadership la àdduna bi dañoo soxla woon pour wane te noonu mu amee woon crise ci Sénégal noonu la ko amee woon ci àdduna bi yëpp boo seetaanee ba ba ba tey jii euh, ci yeneen réew yi surtout réew yi arab yi ci la ci la mouvement yi commencé woon génn ci maanaam muy muy muy frère islamique yeeg yenn fenn fu nekk am luy yëngu foofu yi tamit la si Abdou Lahad ba taxawal tey jii kuréel gii nga xamante ni moom mooy Hizbut Tarqiyyah kon muy étudiant muri yeeg ci la tàmbalee def ay ay ay sommet UNESCO ci la leen tàmbalee yebal ay France ak fenn fu nekk mu wane waaye mu participer Euh, une révolution culturelle boo xamante ni bu amutoon lii nga xamante ni moom la sëñ Cheikh Mbackeem sëñ Mahmadan wax dañuy yoon wi gannaaw ko ko sos ku dul ko ko sos sëñ Abdoulaye si gën loolu buñ koy wax mooy responsabilité ba mu porté woon jël bakkanam teg ci ndax xam na ni euh, lii benn révolution boobu ku ku doomi sëñ Tuubaa rek ku mën a def te lewat nañ laa biir nañ bëgg nañ nit ñi bañ nañ ko euh, jàkkoonteeg nit ñi il fallait am am Sëñ Abdou Lahad mu mën a régler Touba teg yoon wi ci raay yoo xamante ni dootu ci wàcc mukk moo tax ñu ne leen euh, maam ña nga xamante ni seen sët ya da leen da leen da leen a kii woon ba xamatuñu ndax yoon wi dañoo mujjoon a mel ni euh, dañoo dañoo nit ñi dem noon nañu ba àgg ci bew mm-hmm. àgg ci di tox cigarette ñëw ba ci jum jub jumaa ji fay ko joggi ko doog a jàll dugg ci biir ak di lu kilifa wax nga salfaañe ko il fallait que nag parce que tey mouvement bi ak doole bi yoonu murit am il fallait que ñu contenir ko sëñ Manouche dafa tàmbali li ma la maanaam ci jamono yu jafe sëriñ bi jóge fi mu ñëw gis nga boo seetee doxin sëñ Modou Moussa ak bu sëñ laat dañoo yem sëñ Modou Moussa il fallait que mu jànkonte lépp taxaw góor góorlu ba yoon wi mën a taxaw taxaw ba nit mën a mën a mën a mën a mën a mën a mën a mën a jébbalu ci nit nit mën a topp nit nit mën a am hiérarchie ak orthodoxie bi nga xamante ni yoonu murid da ko war a am gis nga loolu bu ko sëñ Modou Moustapha faussé woon yoon wi tey jii lii mu am du ko am bu sëñ Modou Moustapha ñëwul woon toog ci kaw séesam sëñ Abdou Lahad ñëw di tout tànk sëñ Modou Moustapha àtt na mën a wàcc sées bi yëkkati sëñ Abdou Lahat ci loxoom teg ko ci mu toog moom sëñ Modou Moustapha mu toog ci suuf ni leen kii mooy sama doomu sëriñ loolu bu ko sëñ Modou Moustapha defutoon nëga ni kenn dootu si jotu ku ab sëriñ waaye loolu li koy sëñ Modou Moustapha di def lépp sëñ Abdou Lahat ngi jël bëtam bi teg ko ci Cheikh Moustapha ci aw doxinam nee na li ko gën a marqué ci Cheikh Cheikh Moustapha keroog bi tubaab bi ñëwee ni ko dañoo bëgg a jël sëñ tubaab mi mhm. delloowaat ko njaareem nee na sëñ mënul soit daa jóg taxaw fudd ràbba sante loxo yi def ko nii ci ginnaaw ba mu ba mu dal ci ndigg li mu delloo si waat ko daal leen neew ma du am de waaye sama bakkan bii du ko fekk sëñ laat Lahat nee na keroog laa gëm ne liggéey sëñ Tuubaa da nga ciy teg sa bakkan moo taxit lu mu mës a wax danaan sama bakkan bii laa ci teg dëgg la dëgg la jël Matlabul Fawzayni daf ko muy feuille de route am fas yéene lépp lu ci sëñ bi wax mu teg ko mu mu muy am ci Tuubaa loolu nag bu ko defee ànd ak leadership boobu ànd ak révolution boobu tey benn murit bu nekk bu mënee taxaw am identité murit bu nekk bu mënee taxaw fier murit bu nekk bu mënee taxaw ñame dund ak taalibeem murit bu nekk bu mënee taxaw sol yore murit di jaag jaagi ànd ak fierte mhm. loolu lépp nag c'est grace à Cheikh Abdoulaye. dëgg la kon kii moo ñu may liberté. Mhm. kii moo ñu may indépendance. kii mhm. moo ñu wan suñu bopp. kii moo tax ñu gëm suñu bopp kii moo tax ñu gëm Touba. waaye jërëjëf waay Sëñ Jibril waay waay waay waay. développement <laughs> développement Touba tey jii bu ñu demee ba naan deuxième ville Cheikh Abdoulaye ndax moo ne murit bu nekk sa puuju nekk mooy sa seere ëllëg. dëkk yi gent seen waa njóobeen yi toxu ñëpp waa njaxate yi toxu ñëpp toxu dëkk yëpp àndandoo da ngay dem dëkk boo xam ne kenn na dëkk ba te daa bañ a bàyyi dëkk ba noonu man mi <laughs> sama maam dana wax tey ñoo dem si nga dem siyaare sa ba man ko a xam nga documentaire bii mhm. wallaahi léegi da nga cee def loo xam ku la xool xam ne yaag sëñ Mbàkke mhm. pas-pas ngeen ko defee sëñ Ablaay waaw waxoon Sow kër wax na ma ko yónnee na ma ko waaw yónnee na ma vidéo yi waaw yónnee na ma vidéo yi waaw euh, euh, sëñ Ablaye mhm. dama bëgg nga taarixal ma mhm. euh, def naa fi nag plateau kilifa gu ne mhm. tey nag sama yaakaari àddina ak àllaaxira laay waxtaane ndeysaan sëñ Ablaye sëñ yëpp amul benn geste bu muy def Mhm. te du la leer leer yàlla ne image bi xamoo góor lu muy wax de. Mhm. waaye dina la wan ne kii di bëgg a wax yëg-yëg lay wax ak yéene. dëgg la sëñ daam génneel photo Cheikh Abdou Lahad amul benn photo booy gis ci Cheikh Abdou te nekkul ci action bu la wan ne bu la wan ne kii li muy wax nii maanaam li mu wax ne sama bakkan laa ci gar action bi dana la ko wan nataal bi rek dana la wan loolu Cheikh Abdou Lahad tey tey wabaydu rabbihi wa ibnu cheikhihi ki sëñ tubaa waxoon ne amoon am naa ci moom yaakaar yaakaar jooju tey ñun ñëpp mën nañ seede ci yaakaar yi sëñ tubaa jooju tey bu yomal xiyaame ñun ñëpp mat nañ seede ne si sëñ Tuubaa yaakaar ji nga amoon ci moom def na ko ci noonu mhm. ku dox ci digg mbedd mi sol sa baylaat mbaa nga yorub kaamil mbaa nga solub maxtume di dox képp ku leen ne jàkk xam ne yow am nga te sëñ ko def ñun sëñ Ablaye Diop Bichri jërëjëf sëriñ Hamidou waaye jërëjëf sëñ Jibril ci ubbi bu am solo bi mu ubbi mhm. tey ki niy waxtaane duma la wax yoonu murit mhm. waaye àdduna bépp bu ñu boole woon États-Unis bokk ci Europe bokk ci Asie bokk ci ñu dénk ko àdduna bépp mu doxal àdduna bépp ci rafetaay ci transparence ci fit ci njàmbaar ci fulla ci dogu ci wóolu yàlla ci wakiirlu ci tabe ci woyof ci am vision sëñ Abdul Ahad ku fi jaar la koo xam ni keneen dootu fi jaar ba mel ni moom loolu la yàlla dogal nga xam ni tey aspect bu ne mën nañ ko waxtaanee ci sëñ Abdul Ahad te aspect yi du jeex dañuy jël rek bu ne ñu waxtaan ci li waral loolu lépp mën a am nag ba mu feeñee ki ñëpp yaakaar da wuti ko di sëñ Tuubaa moo waxoon ci moom ni am naa ci moom yaakaar gan gi am tey am naa ci moom yaakaar waaye itam sëriñ bi waajal ko ndax la mu ko waxoon ca kaamilam ba ni ko taxawal ci kaamil bu noppee ma dëkk si Tuubaa sëriñ bi waajalal ko boppam sëñ Abdul Ahad daa fekkoon yoonu murit mel ni dem na ba ñu bari fuy tànk tàmbalee beew nar cee dugal yu ci bokkul waaye taxawaay bi cheikhul xaddim amoon ci bi muy ñëw di yëkkati islaam taxawaay boobu la sëñ Abdul Ahad amaat ci taxawaatal yoonam bi ni mu bëgg mu ni mel mu defaatal ko sëñ Tuuba xam nga bi sëriñ bi di ñëw fekkoon na fi sax ay jàmbaar waaye booba lislaam dem na bay bëgg a ndax dal nañ ci kawam agressé nañ ko tuutil nañ ko xeeb nañ ko teg nañu fitna yu nekk sëriñ Tuubaa ñëw ni na ma ñépp bàyyi man dong may yanu yen bii tewoon góoru yàlla yépp yëkkati islam yóbbu ko ci niveau boo xam ni képp ku ñëwati xool islam dina taaru ci dañ ko mën a xemmem di ci mën a bokk fa zaaka lazi qad jaa wa diinu mayitun fa axyaa u saxsan fil amakini maasiya fa zaaka allazi qad jaa wal ilmu qaidun wa fajara maa qaadu uyunan jawaariya mu mel ni la ko sëñ ahmad jaw waxoon ni sëñ ahmad jaw paxa ñëw nga fekkoon diine islaam mel ni lu ñu rey nga delloo ko ruwam ñëwoon nga fekk xam-xam mel ni lu ñuy fawe nga joxaat xam-xam valeur am yëpp mu nga koo natt ci sëñ abdoulaat solo ko mbub moomu ci li mu taxawoo yoonu sëriñ tuubaa yi waaye day jot sëkk ci jëmm ju tedd jooju sëñ xaamidun li sëriñ Tuubaa gën a bëgg ci àdduna mhm. te ku ne man koo waat nga xam ni loxoom bu tedd ba mhm. moom rek la daan jëfandikoo di nangu alquraanul karim mhm. lu dul alquran boo ko joxee lay wax tegal foofu alquran daal lay nangu ci loxoom yi ngir war ma jum ko jox ak bëgg gum ko bëgg di ko tëral ci ay lalam sëñ Abdul Ahad mooy ki am vision xam ni alquran dañ ko war a wutal kër dañ ko war a wutal kër dañ ko war a wutal kër fu mu dëkk mu defaral ko daaray kaamil soo déggee ñun bâtisseur li muy firi mooy koo xam dafa bari lu mu tabax te yi mu tabax benn mënu cee ñàkk ndax yépp ay kislaay la te lépp ku am vision moo ko mën a gis ndax yoon wi da koy soxla préparation ëllëg ëllëg la waajal futur mu fexe ba téere sëñ Tuubaa bi fexe ba alquran bi nga xam ne mooy dellukaay bi gën a réy ci jullit yi fexe ba alalu sëñ Tuubaa jooju mu wutal ko néeg boo xam ni bu yelloog moom la muy daaray kaamil mhm. waaye mu xam ni kilif kilifteef dafa baax daaray kaamil la kilifteef dafa baax te képp ku fi nekkal sëriñ Touba war ngaa am sa résidence sa kër goo xam ne tey bu ganu sëñ Touba ñëwoon fa nga koy yaatal dalal ko fa sëñ Abdou xam ne yoon wi mënta ñàkk lool mu taxawal këru Cheikhul Khadim résidence Khadim Rasoul taxawal ko nag ci contexte boo xam ni yombul waaye taxawalin bi tam mu def ci transparence bu yéeme mhm. xam nga bi mu ko taxawalee dañu kër gii ma taxawalal sëñ Touba mhm. képp ku yilif yoonu sëñ Touba bi rek lay ñeel yaa koy moom. Mm-hmm. feeg yaa ngi fi di fi nekkal sañ Touba kër gi sa kër. Mm-hmm. buñ la noppee gis. Mm-hmm. ku la wuutu ci euh, jataayu sëñ Touba bi. féetewoo kër gi. waaye moom mi ko taxawal yilif ñëpp. dani sàllaaw su ma fi wàccee woon liggéey. përngëlu saabu maanaam saabu bu ma fi jëfandikoo da mu des përngël bu përngël bi dugg sama kër nañ ko bàyyi ci biir këru sëñ Touba bi kii doonu sëñ Touba ñëw wéyal ak daal di wut ay témoin moom sëñ Abdoulaat te moo yilif ñëpp dafay jàngale bon gouvernance mu wut ay témoin daal di woolu ku ñuy wax greffier bayti faati dem booba jamono moo jiitu moo jiite Jurbel sëñ Abdul Ahad woolu ko woolu sëñ Seex Jaxate mu yor soxna may tudd nga ko léegi woolu sëñ Amsatu Mbàkke mu maam Cerno borom Daarul Muxti woolu sëñ Moodu Maamun Ñang ñuy ñeent ñoo xam ni da yéen a jël comme témoin ni leen bu ma fi wàcce woon liggéey sax përëngalu saab bu mu dugg sama kër bërëbu sëriñ Tuubaa la moo ko moom ku fi mag yaa ci resevoir say gan xoola boobu gis-gis bu rafet mu gis ni Tuubaa dafay màgg Tuubaa day màgg ndax dafa yor loo xam ne tey adduna bépp fa lañ war a ñëw ëllëg seen Jibril junj na ko léegi mu fexe ba murit bu ne gëm li mu moom ndax Tuubaa mooy sunu moomeel ku wàcc ci liggéey Tuubaa ngay dem fa nga bëgg a tëdd mhm. kon Tuubaa lañu war a dem dundal Tuubaa mu bëgg loolu mu ni ku ne sa kër fii sañ Tuubaa noonu na pujju néeg bi moo lay seereel sa aljana ëllëg kon fexe na ba ñëpp mën a dem Tuubaa loo mën a am nga investir fa doon dangay am kër Dakar nga am këru Tuubaa mënta ñàkk ci murit loolu di mu ngi yaatal dimension Tuubaa ku wax dëkk wax ja marché mu xam ni Tuubaa day màgg mu yaatal marché bi lu mat trois cent trente million mu def ko ci ci booba jamono ñetti téeméeri million ak fanweer yaatal ko dimension bi ndax day màgg mu xam ni dëkk ku ko wax soxla ndox te ndox dafa jafe te sëñ Tuubaa da ko ñaan boroomam sëñ Abdul Ahad dafa mel ni dafa jël photocopie ci Matlabul Fawzayni li ci sëñ Tuubaa ñaan yépp muy li ko boroomam dig mu war ko am sëñ Abdul Ahad di ko exécuter à la lettre benn par benn mu taxawal forage ndox mi di balle fu nekk nga ni sëñ Abdul Ahad déedéet xam na ni tëli du doy mu taxawu tëli yi xam na ni dëkk day am lumière leer mu éclairer dëkk bi xam na ni Touba jumaa ji day am dimension mu def yokkum jumaay Touba yépp boo seetee point par point mu ngi yaata waaye nag loolu luñ ko lu luñ ko teel a def ci moom ndax sëñ Touba ko waajalal boppam bu ñu fàtte ni mhm. bi mu tollee ci jàng moom sëñ Abdul Ahad mhm. te sëñ Amsatu Jaxate mi ko sëñ Tuubaa dénkoon moom ak i mbokkam sëñ Soyibu rakkam ji mbokka lépp sëriñ Saalix ak sëriñ Abdou Samad ak sëñ Abdoulaye Jaxate bi mu demee ba seetlu ni yeneen mbokkam yi ñoo ko gën a gaaw ci mokkal boobu ñu ngi toll ci alquran mu dem mel ni ku ko jàmbat sëriñ Tuubaa ni ko ñoom dey fere yi ñu ngi mokkal lool waaye ki ñuy wax sëñ Abdul Ahad de daa mel ni ñoom dañ koo gën a gaaw ci mokkal gi mu bëggoon de mbàkke su ma nee am kiis sëriñ bi jël ci ay kaalaam di teggi ay kaalaam ba jot benn kaala ci biir ay yére moom sëñ Tuubaa ca daal koy jox sëñ am sa te ni ko nañ woo soxna far si la joxo ko nañ ko ci sàlla wutal lu ko jot te ñun kiis liñ ci miinoon mooy kiis goo xam ne dañ koy bindee naan mm-hmm. loolu day wane waat beneen melaw sëñ Tuubaa mm-hmm. nga xam ni morsoom la ko jox mm-hmm. wëlbati ko sëñ bi musal na ko ñamu aljana Mm-hmm. sëñ Abdul Ahad ak sëñ mm-hmm. Abdoulaye Jaxate mm-hmm. sëñ bi musal na leen ñamu aljana moo tax lu dul sëñ Tuubaa safu leen woon sëñ bi rek ci la daan dund sëriñ bi yëmut ak moom ci loolu mu ni ko fàtte mbirum seytaane la damaa bëgg nga nga mokkal bañ fàtte daal ni ko ŋaal sëñ Abdul Ahad ŋaang sëñ Tuubaa tifli ci biir waxal na boppam moom sëñ Abdul Ahad ba ma defalee loolu ak jëmmi tey amul lu romb sama bët ma gis ko wala mu romb sama xel ma xalaat ko di ko fàtte nga xam li mu amoon ci waxtu da ngay xam ni jagle la bi mu noppi bis sëñ Touba wàccee liggéey 27 ñuy indi sëriñ Touba di ko indi ci dëkkam bi mu taamu muy Touba sëñ Abdoulaye Jaxate wax na ne ñoom ñaar ñoo bokkoon benn lal ci bis boobu mu ne waaye bi waxtu wi ñuy war a denc sëñ bi di jot sëñ Abdoulaye te ko xamal ni sëñ Touba ñëw na Touba mu ne waxtu woowu tembe yëg na ko ci yaramam hmm. muy indiwaat bare li ma lay wax ni sëñ Touba dafa summi ko ci sëñ Abdoulaye mu ni dugg si na Touba bi mu noppee gis sëriñ bi te yàlla dogal mu toll cim njàng te sëñ Modou Moustapha taxawu ko nag ndax waxal na boppam ci sëñ Modou Moustapha ni keroog ba sëñ Modou Moustapha wàccee liggéey 1945. sëñ Abdoulaat nee na sunu mag jii de mësta xonqal sunu bët mësta tuur sunu rongoñ fu mag di féete rakkam féete nañ fa def na ci ñun njàmbaar def ci ñun dogu def ci ñun fit téye nu téye goo xam ni Euh, téye googu de ni mu téye ay doomam rawu ko mhm. ndax jàppale ko mu na jàppale mhm. teel koo responsabiliser mu sanc ay dëkk mhm. ndax kuy liggéeyal sëñ Tuubaa da ngay yaatal dimension yi da ngay décentraliser 1932 loolu yàgg na de ci la sëñ Abdoulaye njëkk a taxawal dëkk 1932 ci la taxawal Daaru Naar Daaru Rahman kookoy première dëkkam ci ndigalu sëñ Modou Moustapha yemu ci mu jigiwaat fa ci ndigalu sëriñ Modou Moustapha taxawal beneen dëkk bu ñuy wax gelongal loolu mu ngi ko taxawal ci année 1935 36 pour walla li mu taxawal ci ay dëkk xoolal baraakan xoolal xoolal dëkk bu mel ni dégg nga euh, gelongal xoolal dëkk bu mel ni dégg nga kàbb gay xoolal dëkk bu mel ni daaru salaam bukki barga nga xam ni ku teel a jug la di décentraliser liggéey suñ too fa ne mu taxawal fa dëkk ci les années 30 40 ba noppee gis sëñ Modou Moustapha ànd ak magam sëñ Fall. lu mu fàggu liggéey teel naa war murit yépp ni nit day am dogu soo bëggee sa àdduna jag liggéey la koy may. Mhm. soo bëggee sa àllaaxiraa jag jaamu yàllaa la koy may. Mhm. lépp lu mu xam ni yoonu sëñ Touba yi warta am ci loolu ñu koy tudd. Mhm. di tudd sëñ Touba. mu fexe ba génne ko sànn ci biti. ni sama bakkan laa ci gar. bu ñu fàttalikoo 1980. gis ngeen décret bi mu jëlal boppam moom ak doomi Serigne Touba yi mu fi nekkaloon Serigne Souhaïbou Serigne Salihu Serigne Mourtada ñoom ñëpp ànd signé mu ni lépp loo xam ni jeu de la muy li ñuy def ay kart loterie bu mu ñëw ci dëkk bi sama bakkan laa ci teg lépp loo xam ne ay polay indi muy football yi ci aju ay cinéma ay bërëb bi pecc kaay caaxaan du dugg fii feek maa ngi fi sama bakkan laa ci gar signé ko ànd kook mbokkam yi mu bokkal Cheikhul Khadim mhm. ñu bokk signé ko bi mu teree yi ñuy tere yëpp ni bu ñu ko jaayi fii mhm. donte Mbàkke la na génn ci biti mhm. am na ci jamono yi ko ñu wax kasati italien la war kasati yoo fii di jaay mag ñi xam nañ ko dafa dëgëroon bopp ni man kenn mënu ma tere sama yëf yi ma moom mbakkelaayam laa yem dugguma Tuubaa damay jaay li may jaay dégg ngeen kasetam bi ba ko sëñ Abdoulaye yéegee yéegee dañu ne comme wax na loolu ñëpp di ko dégg te man maay sëñ Touba bu mel daf maa défier maa ngi wax képp kuy murit nag bu kenn jëndati ci ay boulangerie bu fa kenn dugg bu kenn séqateeg moom bu kenn jëndati ci moom lettre bii la bindoon bi muy tere mi ngi lettre baa ngi ni bi muy tere pare am ci signature ñi mu bokkal sëñ Touba am ci signature mboolem ñi mu séqal sëriñ Touba sëñ Abdoul Khadir gis nga nuu dama ko gën a agrandiral tuuti mm-hmm. nuu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mm-hmm. xalif général des mourides et mm-hmm. frères sousigné dénonçons par la présente waaw dafa yóbbu lettre waaw par la présente mu ngi noonu par la présente à l'effet d'une répression systématique des faits suivants contraires aux principes qui ont toujours été défendus par Serigne Touba fondateur de la ville de Touba sur toute l'étendue de la ville de Touba premièrement vente consommation de boissons alcoolisées et l'ivresse kon tere na fa lépp lu jëm ci jaay ak jëfandikoo dégg nga ak joxe nuñ ko mën a amee yombal nit ki ba mu mën a ñëw di jël loolu ñuy tere di ko naan muy xamru bu mu am ci dëkku sëñ Tuubaa bi muy mhm. sàngar ñu mhm. ñëwaat ni vente détention et usage de drogue notamment yamba public et clandestin mhm. loo xam ni koy jaay ci biti ak kuy nëbbute di ko jaay loolu ñuy wax ñax mu bon mi bu mu dugg mukk ci dëkk bi kenn du ko fi jaay kenn du ko fi amal ak lu jëm ci wàllu drogue tere ko fa jeu de hasard et loterie lépp lu jëm ci carte xaalis teg teg gi gañe nga nangam. nga mhm. xam tey lu yaatu la. Mhm. sëñ Abdoulaat ñii la ko dàqee ci dëkk bi. Mhm. vol et recel. ci bu mu ñëw ci dëkk bi wala tam ñu jaay la alalu càcc nga jënd ko. yooyu yëpp mu dugg ci dëkk bi dama koy tere. tam tam tëgg ay sabarak di taaxuraan ak la dugg ci tere na ko. musique yéen ma ko gën a xam. danse fecc. manifestation folklorique loo xam ni kenn mënu ko layal du dara mhm. ay caaxaan ni kese ñuy tudd sëñ Tuubaa du ko am fii sama ne fi mhm. et enfin tout ce qui en dehors de ces faits est également contraire au principe de l'islam mhm. yemuma ci lii nag lépp loo xam ni dëppoowut ak sunna la yanantu bi jàngale dëppoowut ak alquran li sunu boroom wax ci téeréem bi dëppoowut ak li sëñ Tuubaa yare mag ñi mu yoroon fekk maa ngi koy fekke du fi amee daal ni fee à Dakar le 18 septembre 1980 loolu laa la waxoon. Mm-hmm. le xalif général des Mourides à Touba. sëñ Abdul Xaadir la ko àndal di rakkam nga xam nee na ñoom ñaar daal mel ni ëllëg bi ni ak gopp bi ni ñuy ànde du ñu tàqali ko moom sëñ Abdul Xaadir noonu la ñu mel ndax tuuti la ñu magantee sëñ mm-hmm. Abdul Xaadir mu ngi feeñ ci Muharram sëñ Abdoulaat feeñ ci Korité ñaar fukki fan yeeg ñett kon gis nga magantewu ñu lu bari waaw su ko defee kële dafa nekk euh, septembre kële di novembre kon mm-hmm. dañoo jegante lool mm-hmm. mu ni sëñ Abdul Xaadir Mbàkke sëriñ Saaliwu Mbàkke mm-hmm. di seen rakk signature ma ngoog tege ci sëriñ bu mbakke di rakkam ju mbokk lépp signature ma nga nele moom sëñ Abdul Ahad a ma sëñ Murtadaa ci suuf signature mu boole yépp signé ko teg ko ci loxol yoon képp ku ko def donte da yor sant wi ah nañ jëfandikoo li ñu war a jëfandikoo ci ñëpp dal ci sa kaw kon kii mooy ki défendre Touba mooy ki nga xam ni moo taaral liggéeyu Serigne Touba. waaye sëñ Abdul Xaar sëñ Abdul Lahat waxtaane ko danga nga ciy jàngi sëñ Xaamidul ku wóolu sëñ Touba. dafa wóolu sëñ Touba. dafa bëgg sëñ Touba ba jeex dama lay wax lu yéeme dafa mës a dem dëkk bu ñuy wax paam paam soriwul kàbb gay dëkk la ñi may dégg nañ ko xam euh, mu dem fa yàlla dogal doon jëm ci dëkk bu ñuy wax mbiri na njool mberi na njool ku ñuy wax sëriñ ibre Wilaan moo fa nekkoon mhm. di kóllëreem mhm. dafay dem nag jaar paam di seet taalibe bu ko sopp lool bu ñuy wax sëñ bilaal pa Bilal Faam ca paam ba mu ñëwee sëñ Bilal Faam amoon na yitte génn ca dëkk ba nekk fa mhm. sëñ Abdoulaat di kon baax na dama fi doon jaar rek maa nga jëm Mérina Njool ba mu demee Mérina Njool nag def fa ak ngan ba mu defee ñaari fan ñetteel bi mu war a génn ñibbi nag booba jamono nii communication yombe yombul ndeke am na ko dem fekk sëñ Bilal Faam fa mu nekk ni ko yow di sëñ Abdoulaat jaaroon na sax gisu la mu nga ci dëkk bu ñuy wax Mirina Njool te daa mel tey la koy génn di ñibbi jëm jooju daal di takk fas mhm. daal ni laay sëñ Abdoulaat ci dëkk bi nar a ñibbi te gisuma ko mhm. loolu du am mukk mhm. takk fas bi muy ñëw bay dugg Mirina Njool dajeeg sëñ Abdoulaat jigéen mu daal di raam ci suuf nuyu sëñ Abdoulahat daal ni ko Mbàkke Balla ju dem ca dëkk ba sëñ Abdoulaye ni ko sàllaaw de mm-hmm. damaa waxoonte woon ak dégg nga sañu Ibra Wilane mii mm-hmm. waroon fee jaar te tey bu ma ko battalee damaa war a dellu ca dëkk ba mm-hmm. mu ne ko waaye Mbàkke man yow rek laa yaakaar bàyyi naa léppi àdduna ngir sa jëmm ji Mbàkke yow rek laa bëgg soo teggee tey kon sama dëkk bi ñibbi te gisaatuma la wallaay damay génn ci yoonu murid ndax sag bu gën a rëy sëñ Abdoulaye teg na tànk ci man ma dajeeg moom awma ko ci sama dund kon nag soo fi duggee ba génn man ma bàyyi yoonu mu génn ci sëñ Abdoulaye daal ni ko lépp luy waral nit gëm sëñ Tuubaa dem ba jëmmi jamono mu nar a waat wedd yoonam bii génn ci dama sababoo ci sëñ Abdoulaye xaat du am mukk te sama bakkan bii di ma ko may comme dugg ca dëkk rek mooy tax nga gën a gëm sëñ Tuubaa nan jëlu ca dëkk ba nii la duggi waat ci dëkk boobu nga xam ni mooy dëkk bi ñuy wax paam seeti waat sëriñ Bilal Faam ni ko man rus naa man sëñ Abdoulaat mhm. nit bëgg sañ Tuubaa mhm. dem ba wan ginnaaw yoonu sëñ Tuubaa muy sababoo ci sama jëf mhm. wala ci sama kàddu kon kooku mooy koo xam ni dogoom ci sëñ Tuubaa ak wóoloom sëñ Tuubaa jaral na ko lu nekk waaye yàlla may ko nag lu mu mayul kenn gisuma ko ci kenn man mooy saa bu masee di wax ñun ñëpp mën nañ koo maasee wax saa bu masee di wax dëgg la communication saa bu masee di wax bu ne asalaamu aleykum waxuma la jullit de chrétiens yi di ko déglu Mhm. yàlla da koo dimbali woon ba la nga daan wax ca Omar ibnu Abdul Aziz ba mu yilifee jamono mhm. nga xam ne mala yi sax dañoo dégg ni message am a ngi dox mhm. sëñ Abdoulaat yàlla mayoon na ko bi muy nekk xutba jamonoom yilif lépp it da ngay gis ni yàlla doxale na digganteem ak mindeef yëpp wegeel gu ñu am ci sëñ Abdoulaat am ci moom sawku cofeel gu rëy ci sëñ Abdou Lahad waaye nag am ci moom benn tëy guñ daan gis ci moom ba su ne asalaamualeykum chrétiens yi laa la wax man du ma fàtte am na ay grand chrétiens yu ma dëkkaloon à Géejawaay nga dégg ñu ni sëñ maaraab yi mooy wax sëñ Abdou Lahad gaaw jël seen postu rajo yi dëgg la sëñ Abdou Lahad mooy wax kon yàlla moo ko nataloon lépp jox ko dëgg la waaye nag détermination sojaa am maanaam njàmbaaram imaanam ngëm yàllaam mm-hmm. tawaadu am toroxloom déggam alxuraan. Mhm. bëggam Serigne Touba. Mhm. waaju ko Serigne Touba waajal. Mhm. ak fitam wu rëy ak njàmbaaram. moo taxoon lépp nangul sëñ Abdoulaye. dëgg la kon kenn mënut dafay fay jàmbaar jooju sëñ dëgg la jërëjëf eh, sëñ Abdoulaye Diop Bichri sëñ Jibril taarixal nañu ko ba noppi am lu mu ci woon ci ay réalisation ci nga xam ne bi mu ñëwee rek dafa daal di engagé loolu da wutali loolu te loolu leen lu ci nekk laataa mu fi jóge accomplir na ko. barki démb Cheikh Mouhamadul Mountakha lancé université bi ñëpp dañoo taxaw ni ay la yéwén kon Cheikh Abdou Lahad ñëwaat démb sëriñ Galas Mbacke moom Serigne Alaaji Baara Serigne Galas Kaltoum maa ngi lay wax léegi may tàmbali bëgg gi mu bëgg Cheikh Abdou Lahad nee na ma su may xool sëñ Mountakha sëñ Abdou Lahad lay gis ci biiram nee na ma man bu may xool sëñ Mountakha sëñ Abdou Lahad rek lay gis ci biiram ba mu jeex ndax moom dafa bëgg sëñ Abdou Lahad ba lu mu xool sëñ Abdou Lahad la gis loolu am na ay ay ay ay ay ay tomb yu mu daan wax ay kàddu yu gàtt yoo xam ne nii da daan orienté nit ki sëñ Jibril bëgg naa bu ma demee ci vidéo ba ñëw nga wax ma tey boo ma doon dëppaleel Sëñ Abdou Lahad moom 89 ak Sëñ Abdou vingt 2021 tey boo indi woon Cheikh Abdou Lahad nga xam ne tey dafay mel ni contexte yi moo tax bu sëñ Galas ne dafa dippi sëñ Muntaxaa sëñ Muntaxaa dafa dippi Sëñ Abdou Lahad sëñ Muntaxaa nii mu yore yoonu murit yore ko lislaam ji yore ko réew mi ba nekk solution réew mi solution réew mi mooy Cheikh Mamadou Muntaxaa parce que tey day régler réew mi fi mu toog boole ko moo ñum gu baax gu sell gi waaye nag mu bàyyi fi koo xam ne lu jëf rëy rëy rëy rëy rëy waxuñu da ca bokk muy sëriñ Sidi mu Cheikh Abdoul Ahad fi ne nii booliwu dara ki wax waaye jëf ji foo ko natt ci ci rëy rek romb na ko ñu di ko ñaanal bu baax Mbàkke mu yàgg fi waaye pour dëggal wax li si Blaat li Sëñ Blaat di wax masuuliye bi Sëñ Blaat daan jël ci lu mu mën a doon te bu jëmee ci sëñ Touba sëñ daam won ñu ko sëñ Mbàkke Mbodj ñu doole dellusiwaat ci waxtaan wi ñu àndandoo ak rësi dellusiwaat l'annonciateur de bonnes nouvelles de Bachir. moonu waroon waram yu tiis yewam sasi dellu jëfaat jëfam ju sew ja das sasi moonu waraat ci haf sasin ku bon la amut yeneen jëmu xanaab jeexil la dañu leen leer dama di leen yëgal ni murit buy waaxu solidaalam di dox rek ku ko neex di ku neex di sangam waaye murit bu ñu tëlee ci jàpp ba ci man mi gën a bon tax ku neex may fitiri bare murit tey dox waaye daal murid bu ñu tëral ci jag jëmee ko àllaaxira ko ko ne am nga sang bu dul sëñ Tuubaa waaw bu mënoon a jóg ñëw doon a jóg bu jógee du fa bu yàq des li ci sa kaw loolu kenn nekk sunu nag moo wax ne alxaqu min rabbikum fa man saa leen leer te ma di leen yëgal ni murid bu di dox rek ku ko neex di ku ko neex di sangam waaye murid bu ñu tëlee ci jàpp ba ci man mi gën a bon sax ku mu neex may fitiri bu baree murid tey dox waaye daal murid bu ñu tëral ci jag jëmee ko àllaaxira ko ko ne am nga sang bu dul sëñ Tuubaa waaw bu mënoon a jóg mën a jóg bu jógee du fa bu yàq des li fa dal ci sa kaw loolu kenn nekk na nag moo wax ne moonu waroon waram yu euh, mu jàngat wax ji sëñ Ablaye sëñ Ablaye euh, buñ la buñ la wàññiloon son bi tegal la Cheikh Ablaye muy wax rek dangay am impression déglu kii li muy bëgg a wax te kii di wax dafay wax ni sëñ tubaa ci boppam amul doom sëñ Jibril xoolal texte yi façon parole yi laa doon utiliser gëm wóolu yaakaar sëñ tubaa li nga wax léegi maanaam ñun dañu am récompense bu ñu war fay sëñ Abdu Lahad barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ndax def ne dann ay magam xoolal yaa ngi koy wax léegi 14 la gane àddina waaw 20 mu daal alxuraan waaw cinq bind na ba noppi wër commencé vingt waaw 20 27 28 29 da doon wër. waaw 32 wax nga ko léegi la ñëw Touba. waaw Daaru Manaan 32 la ko sànc. muy Daaru Rahman googu ngay wax Daaru Rahman muy ñu daan ko wax Daaru Naan. waaw Daaru Naar. waaw 35 tournéem yi mu doon def. waaw ay dëkk. wax nga léegi ba tudd Kabbu Gay. waaw euh, kaddu Balloo ji demoon na fa ci sa ñam suñu jaxate di fi bay waaw dégg nga réaliser nag nga ñëw léegi ci réalisation bi waaye xoolal tomb bi mu doon wax sëñ Jibril fii mu ne kuy wax ne bala maa ànd ak nit mu mel ni nangam say ànd du bari waaw fii mu ne ku bëgg mucc da ngay nekk ci ak njub ku bëgg lu baax dangay nekk ci lu wér fii mu ne nit dalaa bëgg a wax ni koo xam ni bala maa ànd ak nit mu mel nangam mhm. say ànd dina bari mooy kenn parfait wu dégg nga la wax dëgg la benn nit sëñ daam làmbal ma sëñ Mbay Jax Mbay Peex balaa sëñ Ablaay di daaneel waaw benn nit mhm. boo mën a dajeel mhm. fi ne boo ne banaa diw ndax diw daal dafa mel ni dafa wax ji daa bari ba tax nga wuti beneen xarit bala nga yàggal gis bu gën a garaaw nga ne diw nekkat dafay ñaan kama bàyyoon sax mm-hmm. nit koo dem rek am na benn sikkam ba mu yoraale mm-hmm. danga koy ànd ci sa jikko bopp loolu la la bëgg a wax waaye bu fekkee da ngay def ànd bu ne ni nii la war a mel doo ànd a kenn mm-hmm. wala di nga bari boog ay xarit ndax ku ne am na sikkam ba muy doxaale sëñ Abdoulaye dafa mën a jàngal wax loo ne mën nañ ko décortiquer adduna bépp jariñ ci waaw gis nga message am bii mu wax léegi bi ci njëkk na ni murit buy dox xam nga murit war na am farlu ful ba boo nee gis ko xam ni kii murit la dafay feeñ ci biir message am bi murit ñu di ko làmbut da ngay gis ci yoon yi ko naan la euh, pourtant man murit la nga ni ko asaawaay ah, murit nga doo ko dégg léeg-léeg da ngay xam ni kooko doxagul nga koy nuyu naan ko sëñ bi ah yow kon murit nga man ñi li ñu dëkk bi mosuma xam ne taalibe nga a ah, sëñ bi taalibe laa de kon kooku mooy doxewul ci melo murit feeñ na ci biir wax ji beneen bi ci topp <laughs> waaw maara boobu loolu di benn deuxième bi ngay gis ci biir communication am ko ñaareel dégg nga sëñ Jibril di ko ñaanal ci biir communication bi mu wax ni mu waxaat ci biir wax ji ba tey amidun daal ni man mu bon mi déggal lool te te gën ñëpp bi ko koy dafa mel ni kon mu ngi wane nit day oyof sëñ Ablaye yegg si na euh, waaw sëñ Ablaye maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay am maa ngi lay fay amidun waroon ngaa ñëw ci plateau bi waaye ngànt la téye wallaay wallaay maa ngi nii Kaffrine ak président la république waaye bala ngaa nuyoo bala ngay nuyu mm-hmm. kenn sëñ sëñ Ablaye murit saadix la ñuy waxtaanee. dëgg la. sëñ Ablaye koo xam ne nii njabootu sëñ Tuubaa gépp ku ci nekk am nga foo ko teg moom la ñuy dëgg la. koo xam ne ku ne am nga ameel nga ko bor boo ko war a fay ngir murite gim def ci noonu. dëgg la tey lan nga ñu ubbil ci jàmbaar jooju nga xam ne ni moom la sëñ Tuubaa waxoon ne amoon am naa ci moom yaakaar. li ma giseegun mu def ko. waaw. moom rek la ko sëñ Tuubaa jagleel. Mhm. du benn xalifa bu ñuy jotlil. dëgg la. bu topp benn xalifa bu ñuy jëflil bu nee salaamaaleykum boo taxawoon da ngay toog ba sa doom waxee nga dóorum xët déglu leen sa ñëpp laata ñuy wax boobu kenn déggatu ko dëgg la waaye fit ak jëm yàlla ak sëñ Bamba mhm. Cheikh Abdoulaye yëmlewu ko kenn Cheikh Ablaat moo amu fit moo gëm baayam mooy jàmbaar ba nu tukki ku doon xalifam sëñ Bamba sa kër wu fi jumaa ba nu tukki tabax tabax tabax tabax tabax fanaani koo bokkal naa fay fanaani te bu mu njëkkee suñu kër ñetti milliards boo fa xëyee sa doom boo fa fanaani koo bokkal bàyyi fay dugg bu ko njëkkee Cheikh Abdoulaye bind ko anglais bind ko arabe bind ko français. Mhm. ba mu xool wàccee ci yonent bi ba ñëw ci Cheikh Abdoulaye ci la amee kër ku ko def. ceeb laat. walaay ndeysaan. suñu suñu Cheikh Abdoulaye. dañuy def Cheikh Abdoulaye. Mhm. kon nag moom Cheikh Abdoulaye. Mhm. dañuy Cheikh Abdoulaye. waaw loolu dañuy Cheikh Abdoulaye. kon nag moom Cheikh Abdoulaye. oh dégg-dégg. sëñ daam li muy wax am na solo waaye réseau bi bu dee mën nga koo dugalaat rek nga dugalaat ko sëñ Ablaye waaw boo boo boo déplacé wu tuuti rek réseau bi day gën a neex waaw waaw déplacé wu waaw waaw kay bismillah waaw

Euh, sëñ Mbacke ñu woowaat ko ci réseau bu gën a baax xëy na mu gën a jekkas ni ko fi mu taxaw ndax li muy wax am na solo lool waaw mi ngi ci réalisation Cheikh Abdoul Ahad yi léegi rek sëñ Galas yónnee na ma kàddu gu sëñ Abdoulaye doon wax xam mhm. naa sëñ Mbacke nga koy préparé ak sëñ Daam euh, su sëñ Abdoulaye daanee rek ñu mën ko dugal alantaan ñu jël sëñ Abdoulaye Mbaye Peex waaw ñeenti ñeenti gis-gis laa gis ci waxam jii ñu tegoon léegi dama laa wax benn bi murit dafay murite ba ku ko gis xam ni murit a ngi dox te léeg-léeg nga gis kon la murit laa dem ba yàgg ci yoon wi nuyoog nit mu naan koy sëñ bi nekk murit nga man de am naa ci mbetteel kon kooku mooy muritam wéragul wane ne murit buy dox sax kenn du koy xam ne murit a ngi dox beneen bi ci des moom mi gën ñëpp di wax mu ni man man mu bon sax war naa meloo meloo murit ba ku ma xam ne murit a ngi dox te pourtant moo gën ñëpp kon mu ngi wane ne taali bi dafay oyof ak sa cër lu mu rëy rëy booy wax nit ñi na nga wàccee sa daraja ba ñu dégg la nga mën a wax ak ñoom feeñ na ci biir waxam ci beneen bi ci topp mu ni alxaqu min rabbikum fa man saa fal yuumin wa man saa fal yakfur yàlla moo wax ni dëgg ngi jóge ci seen boroom ku ma neex gëmal ku ma neex weddil te da ngay gis ku bëgg a wax dara muy gëm doon mu ragal ci sëñ Ablaye ñëwaat na waaw kay waaw kay ñu ngi lay waaw ñu ngi lay dégg bu baax fi ne ma ne li Cheikh Abdoulaye def waaw moom dong moo ko def mhm. mooy jàmbaar moo am fit mhm. xam nga lu mu waxoon Cheikhou Touré te ko bu Touba amoon aéroport du ma du ma wàcc Ndakaaru. bu Touba amoon aéroport. du ma wàcc Ndakaaru sëñ Bamba ma tax a jóg. Mhm. wallaay ndeysaan. wallaahi ñu ñëw ak tamit bàyyi ñu tamit mu baax bi xaaju ni ko bala ñu fi ñëw ma def fi aéroport. Mhm. ñu ko dafa xaaju alaaji ñu ko dafa xaaju teg ca kaw. dëgg la. ñu ko tamit murid saadix. dëgg la mu saadix la wallaahi. mu saadix waaw moom ñu tamit ah, ah mooy murid saadix. moom ñu Abbas moom ñu Abbas Moussa ka ñu ñoom ñu saadix ak wallaahi wallaahi léegi waaw Cheikh Abdoulaye mhm. ak Cheikh Touré El Hadj Cheikh Touré waay juru waay juru sëñ Basiiru Touré waay juru sëñ Basiiru Touré ak soxna ak soxna Ndey Xari <laughs> ndeysaan oh réseau bi réseau bi réseau sëñ sëñ daam woowaatal ñu ko fii li muy wax am na solo. wax ju am solo lay wax. waaw ndax alaaji Seex Touré mi muy mi muy tudd. Hmm. moom lu sëñ Blaat joxoon soxna taay moom ci sëriñ Basiiru Touré. mooy waajur soxna nday xari eh, soxna nday xari Touré. mi nga xam ne mooy waajur sëñ Blaat Jeng mi moom beleel beleel beleel boutique bi nga xam ne moom la ñu àndal tey ci hmm. jataay bi. Hmm. Eh, muy soxna ndey xari Touré ñu ngi koy ñaanal baax sunu yaay jooju yàlla wéral ko. ak ki nga xam ne ni mooy Baylaat Dieng mhm. ñoom ñëpp noo ngi leen di ziyaare ndax bëggoon naa ñëw sax xam naa ne sëñ Ablaye dafa naqare jot ndax réseau bi ak fa mu toll waaye xam ngeen ni sëñ Lamine Ba waaw euh, sëñ Lamine Ba moom Alaaji Mor Ba waaw euh, transitaire moom digganteem ak Cheikh Abdou Lahad nee na ma da ko daan woolu tey tey ne ko fanaan sil Touba ak looy def Ndakaaru ñëwal léegi waaw buy ñëw duy indaale mel ni mbubb mhm. sëñ Lamine Ba ñu ngi koy nuyu baax di ko ziyaare bi ñu jàppee plateau bi dafa xolam dafa sedd mu ne ma bu yaatu woon dinaa leen leeral lu baree baree bari sëñ Ablaat sëñ sëñ sëñ sëñ Ablaay Jóob Bichri hmm. sëñ Ablaat yooyu da cee am ay waaw ay ñoo xam ne nii loolu la siq ak ñoom waaw tey boo xoolee am nañu baree bari ñoom dañ naan la sama waajur sëñ Ablaat ko sëñ Ablaat ko waaye sëñ daam sëñ Ablaay damaa bëgg balaa sëñ Ablaay Mbay dugg bu fekkee ne élément boobu jàppandi na ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu déglu ko bu fekkee ne jàppandiwul nag sëñ Ablaay yeggale waaw ñeenti point yi laa doon weeral bismillah bi mooy murit dafay murite ku ko gis xam ni murit ta ngi dox daa feeñ ci wax ci bi ci des oyof murit dafay oyof wàcce darajaam mën a jaxasoo ñëpp moo tax moom mi gën ñëpp yilif ñëpp ci bi jamono ni man mi bon mii sax boobu waxin war nañ ci jàggat beneen bi ci topp mooy soo xasee ba xam ni dëgg ngi nii nga ne ci waroo faale ñi lay weddi waroo faale diw weddi na ma ak diw da koy gise nenn mm-hmm. ndax wax nañu ne yàlla nee ci sootul kër si dëgg ngeeg yàlla ku mu neex gëmal ku mu neex weddil ndegam yàlla xam na ni sax am na ñu ko weddi yàlla mënoon na wax fa man saa fal yumin wa man saa moom na ko def boobu ma nekk siin su wow bu ne fa man wa saa mooy ku mu naqari weddil yàlla sax dafa rafet te nangu nangu démocratie moo tax mu ni ku mu neex gëmal ku mu neex it weddil nga xam ni kon weddi day am par kon danga nga war a wax li nga gëm loolu di ñetteel point ñeenteel bi nag mu ni képp ku ñu waajal nga génn àdduna tëdd sa kusu bàmmeel kuñ ñi la mooy sëb sëriñ ku sëriñ Tuubaa soo mënee jug ba jug da nga xeeb yat jaasi ngay jëli te bi mu koy wax mu ngi jàkkaarloo li xew kon war ñu di complexé ñun ci gëm gi nu gëm sëñ Tuubaa danoo joxo ñàpp sëñ Tuubaa lam man fee kenn mënu ko kon nanu jox suñu bopp sëñ Tuubaa waaw sëñ Abdoulaat waxam ji dafa yéeme moo tax man la léegi sañ Jibril gis naa ci ñeenti poñ yu feeñal ci biir wax ji te xoola wax ji ni mu gàttee waaye tënk na tey loolu lépp mën nañ ci def émission bu ne mm-hmm. waaw bu ne mën nañ ci def émission mm-hmm. bi ci njëkk mooy murit war naa murit ba ko gis xam ni murit a ngi ñëw mm-hmm. beneen bi ci topp mooy war nañ cee jàng ni nit war naa oyof wàcce dara jàmm ba mën a jaxasoog ñëpp bi ko ñetteel mooy boo xasee ba ne ci dëgg bul faale ña la ca wéttali ak ña ci wettaliwul wéttaliwul ña ak ña critiqué wul ndax yàlla sax am na ñuy weddi mbiram te moo leen sàkk ba ko ñeenteel mooy kuñ tëkkaleeg sëñ Tuubaa juum nanu ndax fañ jëm lu mu fa mën góor du ko fa mën loolu feeñ na ci biir waxam ji kon ñeenti poñ feeñ na ci wax ji sëñ Abdoulaye du lu am solo ji sëñ sëñ daam bu dee dafa noppi bismillah euh, ñu àndandoo teewlu élément bi bu dee noppi na ñu del siwaat ah sëñ Mamor Mbacke imam bu Touba Washington sëñ laay moo dugg. ah sunu xarit. di së di sëtub sëñ Mor jaara sëñ Mamor jaara borom Sam. waaw euh, nee na bëgg gi ma bëgg sëñ Ablaye faw ma leeral ko ci télévision bi ma nga ba mm. Washington ku baax sama xarit waaye nag ñu jaaree ko ci euh, soxna maam Fati Guèye nekk fële ca Pentagone nekk ca euh, Washington moom it euh, di doomi soxna Kinem Cheikh la Ahad nga xam ne moom suba ba léegi amul benn lu muy def lu dul dundal li nga xam ne ni mooy plateau bi di Cheikh Abdoul Ahad wallaay ndeysaan sëñ bi Mbàkke noo ngi lay nuyu xam naa duñu la téye ci ligne bi yàgg ndax yaa ngi foofu ci Amérique te fi ngay woote xaw na sori waaye yaa ngi déglu sëñ Abdoulaye Diop Bichri ak sëñ Jibril Ndaw di diggante ki ñuy waxtaani tey waaw bismillah sëriñ bi noo ngi lay ziyaare Ah, bismillahi rahmaani rahim mhm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam ah, jërëjëf sëñ Amidoune. Mhm. Ah, sëñ ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaare. Mhm. di teg sama nuyu ak sama siyaar ci sa loxo. di ñaan nga jot jottalil ma ko mboolem bopp yi nga nekkal ci plateau bi. dégg nga dégg naa nga tudd ci Serigne Jibril Ndaw Serigne Ablaye Mbaye Peex. ak Serigne Serigne. sëñ Ablaye Diop Bisri Bisri waaw waaw ah, sama mhm. mos sëñ Ablaye Diop di sama xarit di sama lépp wallaay màgg màggalu borom saam gi ñuy amal fii chaque année euh, waxtaane na ko waaw sëñ Tall euh, ak mbooleem ñi nga nekkal ci plateau bi yëpp sëñ amee doon maa ngi leen di nuyu di teg nuyoo bi ci sa loxo di nuyu alaaji Mbacke yu fay mi nga xam ne wallaay borom kër gi wallaahi Mbacke euh, di profité nag di siyaare bu baax a baax a baax sëriñ Muntaxa Basiru mi nekk ci bopp yoonu murid yëpp mhm. di siyaare Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Abdou Lahad nga xam ne moo jiite njabootu Cheikh Abdou Lahad mm-hmm. su ma jëlee sama nuyoo teg ko ci eh, loxoom teg ko ci loxoy soxna Kiné Mbacke moom Cheikh Abdou Lahad biig mm-hmm. ci guddi rek wax nañ ma koy ndokkeel di noonu laay ndokkeele doomam ji nga xam ne moo sabab sama dugg ci plateau bi di soxna maam Faati Gueye mhm. moom soxna Kiné Abdoulaat nekk ak ñun fii ci Washington DC te am jom lool di liggéey mhm. jëmmal maamam fii mu nekk mhm. ndax màggal suñu Abdoulaat gi fii ci Washington bokk na ci ñi koy jëmmal mook taalib yi mu fi nekkal ndeysaan ah su ko defee rek ah, di siyaare sëriñ Abdou Khoudous moom Cheikh Abdou moom Serigne Cheikhouna moom Cheikh Abdou Khoudoss Mbacké wax nañ ndeysaan tey ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaare bu baax na ma maa ngi ñëw ci plateau bi léegi <laughs> mu ngoog kon maa ngi koy siyaare bu baax a baax jokkoo nañ maa ngi moom. wallaay wallaay euh, moom daal mbokk waa Kër Sëñ Abdou Lahad yëpp yëpp yëpp bàyyiwuñ kenn maa ngi siyaare ñëpp di ndokkeel ñëpp ci bis bu tedd bi nga xam ne. Mhm. moom lañ mën nga xam ne. boo xool lépp Cheikh Abdou Lahad. dëgg la danaa dégg El Hadj Abdoulaye Mbaye Peex di ko wax. Mhm. di ko lim benn par benn jumaa ji yokk jumaa ji Cheikh Abdou Lahad Eh, daaray kaamil Cheikh Abdoulaye nga xam ne ni mu koy waxee boo koy wax boo koy boo koy dégg sa yaram day daw. Mhm. kon maa ngi profité di siyaare Alaaji Ablaay Mbay peex ci. Mhm. ak bëggam Cheikh Abdoulaye waaye ak bëggam Cheikh Abdoulaye nag wàll na ko ju bari. Oh. damay jàpp ne bu comme moo ñu féete mag moom moo ñu koy war a wàll. Oh. waaye ñun itam yaakaar naa ne bari nañ ci moroom. ndax euh, génération bi nga xam ne mooy sama génération man. Mhm. Euh, ñi nga xam ne ñi ngi juddu li tàmbalee 68 70 année soixante-dix yooyu ñëpp seex Abdoulaat mooy seen référence moo leen tax a xam Sëñ Tuubaa ñun bu ñu xamee ci Serigne Touba dara bëgg Serigne Touba di ko dund. Mhm. Cheikh Abdou dëgg la ba tax na kon bisam bu dikkee. Mhm. jaadu na ñu dugal sunu kàddu mhm. participer wax sunu cofeel ci moom. di ñaan sunu boroom yokk ay njëggalam ak yërmandeem ak leeram ak barkeem ci ruuxam nga tataas na ci barkeem. amiin man nag damaa am ci moom ay cër yu bari. waaye bokk na ci cër yi bi ma jàpp ne mooy bi gën a rëy. mooy sama kaamil bu njëkk ci alxuraan. moom lañ ko jébbal mm-hmm. ndax xam ngeen ne ahlu Mbàkke mm-hmm. ku ci mas a mokkal alxuraan ba bind kaamil mm-hmm. boo ko jébbalee sa baay sa baay da daan jël sa kaamil jébbalaat ko suñu ablaat man mii sama waajuru góor di sëriñ Moodu Astu Mbàkke mi nga xam ne mooy taawub sëñ moor Soxna Mbàkke mi taawub maam Mor Jaara borom saam mm-hmm. euh, sama kaamil ba ma ko ba ma mokkalee alxuraan ci kër sëñ Moustapha si Mouride Saadix mm-hmm. sëñ Moustapha daf ma booleeg doomam ju ñuy wax euh, rakkam ju ñuy wax sëñ Mor euh, sëñ Mor Awa mm-hmm. ñu ànd jël ci kaamil ba jébbal ko sëriñ Moodu Astu waaye sëñ Moodu Astu bi mu jotee ci kaamil bi ba ubbi ko rafetlu ko gis ni mbind ah dafa mel ni génn na Euh, sëñ daam boo ko mënee jotaar rek sëñ Mamor euh, li mu doon wax lu am solo la Euh, sëñ laay moom mooy hmm. imam nekk fële ci Washington. nit ku baax la baax ku bëgg sëñ Tuubaa koo xam ne at mu jot dafay taxawee màggal gu mag. wallaahi ci borom saam. wallaahi maam Mor Jaara borom saam. wallaahi man waxtaan naa ko am at. wallaahi foofu ci Washington. wallaahi nit ku baax la koo xam ni. ku am yitte. wallaahi woyof lool bari xam-xam. wallaahi waaw ah, moom sëñ Modou Astou moo ko jur. wallaahi sëñ Modou Astou mooy taawu sëñ Mor Soxna mii taawu maam Mor Jaara borom saam. magi mag waaw ndeysaan ku baax la eh, sëñ Jibril noo ngi ziyaare sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moom sëriñ Maam Mor Masamba sëñ Maam Mor Masamba mooy waajuram dippe ko sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma mook sëñ Maxtaar mi ñoo asalaamaaleykum waaleykum salaam sëriñ bi Mbacke waa kay sëñ Ami doon ah, yëf yi daggoon xam nga yëfi internet rek dafa yëfi yëfi waaw yëfi waaw connexion bu njëkk kaamil booba waaw mhm. kaamil booba bi ma ko bindee ba àgg sëñ Moustapha si boole maa rakam sëñ moo rawa ñu yow ñu jébbal ko sëñ Modou sëñ Modou ne kaamil bi sëñ Abdoulaye dong nga ko jagoo mhm. ndax ndax li ci njëkk tax mooy moo fi toogal Serigne Touba. Mhm. ñaareel ba moo tabaxal alquran daara ju toll ni daaray kaamil kon alquran mooy ki ko jagoo. Mhm. kon nañ ko yóbbu suñu blaat daal di mhm. may boole sëñ Mbàkke Madina sama mag. ñu ànd dem jébbal kaamil ba suñu blaat suñu blaat ñaanal ma bég ca lool. ndeysaan. ah loola kon teer la bu rëy bu ma am ci suñu blaat. waaye moo am leneen loo xamante ni bii itam. diggam ak sëñ Modou Astou sama waajur la ndax sama waajur sëñ Modou Astou tudde na doom sëñ Abdoulahat moo dem caatam mm-hmm. Abdoulahat ma nga ca kër ga tey mooy mooy porte-parole sëñ Abdou mi xalifu sëñ Modou Astou mm-hmm. ah, ah yàlla mi dogal dogal bi nga xam ne Cheikh Mamadou Fadel mi ngi ci kaw suuf mm-hmm. nekk ci ci waajtaay war a dem aljanna te woo Cheikh Abdou laat ne ko jógal bokk yi xam la. dëgg la muy tukki bu siiw boobu ngeen déggoon Cheikh Abdou laa tukki woon ci gox yi réew mi. dëgg la keroog ba mu waajee ngir génn def ndigalal suñu fàllu loola. Mhm. dafa sàkk ndaw yabal ko kër moo Modou ci Mbàkke. Mhm. ne ko kat dama ne ne ko nag maa ngi ñëw. Mhm. ndax suñu fàllu damaa jox ndigal ma jóg ci dugg ci bokk yi bokk yi xam ma. te nag mooy sunub taaw ndax mooy taawab kër suñu Moor Jaara ci sët yi. mooy taawab kër Borom Touba ci sët yi la. ah loo kon nag mooy sunu taaw mooy taawu ñaari kër yëpp. Mhm. kon nag na na ko bir ne ci moom laay njëkkee. Mhm. su ma ñëwee ba dal ci moom ci mbàkke nag. Mhm. duma ma dem Boofel. du ma dem Yaañ. duma dem Saate du ma dem Ndiliki du ma dem dëkk bu rëy ah, dëkk yi wër Mbàkke yépp ba ci méril nañ fekk nañ ma fekk Mbàkke ca këram googee mhm. ndaw lam yebal wax ko suñ Moodu suñ Moodu dafa woote mbooleem gox yi nga xam ne moo wër Mbàkke mhm. diggante ndilikeeg saateeg yaañ ak boofel ak yépp ñoo fekk kër suñu fekk suñu blaat ci kër suñ Moodu mhm. suñu blaat def fa ñetti fan yoo xam ne ñetti fane ngan la yoo xam ne ngan nga lu nekk xew na fa mboolem dëkk yi bis bu set ñii walwale di siyaar si suñu blaat ci kër googee la njëkke def fa ñetti fan Mhm. saafoanteeg bokki taalib yi nekk ci gox boobu yépp mhm. ñaanal sëñ Moodu tàggu ko door a dugg ci gox yi def ko na ko sëñ Fallou defoon kon mhm. loolu ba tey cër la bu rey boo xamante ni bi sama waajur am na ko ci sëriñ Abdoulaye jërëjëf Mbacke jërëjëf muy loo xamante ni bi cër la boo xamante ni bii su ma doon lim cër yi ñu am ci moom. dëgg la te lii nag su ma ko waxee ci diggante suñ muudasu ak suñu ablaat. dëgg la dafay mel ni waxaale naa ahlu Mbàkke yëpp. dëgg la dëgg la Mbàkke dëgg la dëgg la kenn ku nekk mën naa taxaw seere ci la mu seq ak sa waajur ci lu rafet. dëgg la dëgg la ak ay taxawaay yu rafet yoo xam ne sëy yi nga xam ne suñu ablaat suñu ablaat moo ko fas. dëgg la am yoo xam ne yu ci bari ci sama kanam la suñu ablaat mooy woo kilifa yi. Mhm. suñ Mustafaa Bétoo mi nga xam ne mooy rakki suñ muudasu doonoon léppam doonoon loxo ndey jooram di diisoo waaleem Mm-hmm. nga xam ne bokk na ci sëñ Moustapha Beto mm-hmm. ak sëñ Abdou Lakaram moom sëñ euh, euh, sëñ Afia ak sëñ Amsa Mbàkkeem Daarul Mooti mm-hmm. ak sëñ Mahamadan Diobem Seex Masamba ak sëñ Moustapha Beto mii ma la limal bokk nañ ci diisoo waale Sëñ Abdu Lahat yi nga xam ne Sëñ Abdu Lahat daawul def dara te woowu leen diisoo ak ñoom tubaarkàlla Mbàkke jërëjëf bokk na ca mooy seeni doom da daan yëkkati doom yi yeneen seex yi di jox seeni doom di yëkkati seeni doom di jox yeneen doomi seex yi dëgg la jërëjëf Mbàkke li li li sëñ Moussa Ka di wax ci Euh, wala xolu maam seexante bi na amaana koy ndokk yi wiccax baaraam ba sa xam ne yaa canal ndeyam baayam ba mm-hmm. loolu mën nañ ko wax ci Sëñ Abdou Lahad mm-hmm. Sëñ de loo ko mën a wax ak loo ko mën a defal mën naa am yow may wala ngay def bu dul naka su dul noona amaana mu can ga nga xam ne moom lañ canalee sa sa ndey sa baay mm-hmm. Sëñ Abdou ko joxe jërëjëf jërëjëf Mbacke ñu gërëm ko baax a baax euh, ci kàddu yu am solo yooyu euh, ñu ngi ziare baax sëriñ Cheikh euh, Mbacke Gaynde ma moom sëriñ Mamor Massamba waaye moom soxna Muslim Mbacke mu Cheikh Abdoul Mourtada ma nga moo foofee moom it ca Washington saan di ku baax ku bëgg Cheikh Abdoul Ahad wax itam ne yàgg naa ci réew mi waaye sama xel mépp du jóg ci liggéeyal sëriñ tubaa ndax Cheikh Abdoul Ahad ñu ngi koy ziare baax a baax di ko jox wàccu waayam wax dëgg yàlla mi yëgee plateau bi xol bi sedd na lool Euh, ñu ngi nuyu bu baax a baax soxna Astou Bali moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde ma euh, soxna su ku ne xam na ni mu demee ci kër Cheikh Abdoul Ahad ndax Serigne Sidi kon ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax moom tamit taxawaayam ñëpp ko rafetlu ci réew mi yàlla na ko yàlla gën a sàmm gën koo dëgëral gën koo kàttanal euh, Serigne Abdoulaye ñu nuyu baax waa daayira Mafaatihul Bichri bu sëñ aboom Cheikh Abdoul Ahad sëñ Abdou Samb ñoom sëñ Youssou Ndiaye sëñ Abo ñëpp noo ngi leen di ziare eh, ca laa bokk tubaarkàlla di leen ñaanal waaye nag di bu baax a baax a baax a baax a baax sëñ Galas Kaltoom eh, di ko ñaanal waaye sunu yaay sëñ eh, sañ sëñ Jibril muy soxna kineem Cheikh Abdoul Ahad centenaire Cheikh Abdoul Ahad fii la ko defoon Masaalikul Jinaan woo ku sëñ Abdoul ma sa a séqal bor nga xam ne mu leer leen am nga yëg-yëgu fay ko Cheikh Abdou mu wala bis boobu ñu fàttali ko tey defar na xéewal yu baree bare indi ko euh, ñu di ko sant baax di ko gërëm Mbàkke di ko ñaanal yàlla wéral ko di nuyu baax soxna Anta Ndiaye man nga ca Italie euh, di mag ki soxna Faati Sidi moom sëriñ Sidi mu Cheikh Abdou Lahad waaye di kenn koo xam ne ni sëñ Abdou rek la bëgg indi na fi léegi ay xéewal yi ñu yi ñu tàmbalee léegi xam naa njaay ni dañ na tey gis naa tey ñaay fay gàddu bopp baak jaar fii génn ke man la waaye nag téerawal tey jàmbaar la sëñ Mansour Guèye euh, ñi ngi sant baax soxna Anta Njaay di ko gërëm kon sëñ Daam sëñ Mbàkke Mbooj bu dee élément bi noppi na rek ñu ñëw sëñ sëñ Jibril bala ñoo ñëw ci euh, sëñ Abdou leeral na yi mu jàngat ci waxtaan wi contexte yi ni mu wutee waaye responsabilité bi sëñ Abdou daan jël ci mbir mu mën a doon xam nga day wax ne Euh, moone joo gis moom maane da koo dàq tey nag man Abdou Lahad maane loolu responsabilité la si nji bi xam nga euh, discours dafa am structuration ak i tamit fi muy waxee discours bi mbooleem lii muy wax muy kàddu yooyu li muy rëy rëy rëy ba mu koy wax soit day nekk ci kanamu njiitu réew mi wala mu nekk ci kanamu délégation présidentielle ndax ci cérémonie officielle lay doon foofu la doon jëlee responsabilité fam koy waxee bu waxeek ñoom ba noppi mhm. tege leen nële ni leen may leen ma nag ma wax ak sama mbokki taalibe yi waaw lu ci waay mës dafit am na fulla joo xamante ni am na ci màgg goo xam da di leen jërëjëf baat bu tuuti la waaye ku jëfut dara doo ko dégg c'est-à-dire comme yooyu mu doon wax baat baati kam yooyu da caa yoroon loo xamante ni da koo jekki woon lool leneen li Euh, ma bëgg cee def benn parenthèse surtout gars yi nga xamante ni ñooy dingat ay kennal sëñ Tuba ay nangu. ku ne xam na ne. sëñ Abdou Lahat réew mi moo fi raw. Ah, ku ne xam na ni moo ci gën a dégg alxuraan. Ah, kon bu taxawee ba naan gëm ak wóolu ak yaakaar sëñ Tuba lañ ko def. Ah. kon kooku bokkaale wut ndax xam na suñu borom fu mu nekk. alxuraan dox la sëñ Modou Mamoun nag nettali na ma ne. ni ma dafa am bis mu ànd ak sëñ Abdou ñu génnee ci ci ci euh, ci jumaa ji jëm ci kër gi ñu te ñu teg alxuraan naar naar bi comme noonu mu ko daan waxee naar bi ñu ñuy teg ci alxuraan nee na ñuy dox ba mu yàgg mu daan wëlba daan ah sëñ Modou man damaa yaakaar dafa am lu may bëgg a dal munu ko déet yow koy Mbàkke jàmm rek mu ne ko damaa xam ne naar bi jàng alxuraan al baat bu mu tudd lu mu gaaw-gaaw dina am lu ñëw sama nopp bi wax ma wax ma wax ma maanaam yi wax ma sababu nusool bi waaw ko wax nee na lu naar bi gaaw gaaw gaaw dina am lu taxaw sama nopp wax ma maanaam yi wax ma sababu nusul kon kooke yaakaar naa bi nag mooy li taxoon mu wàcc lu taxoon mu wàcc kon kooku yaakaar naa ne ku ku ku gën a dëgg alxuraan wala nga gën ko ko mën ko bañ na ko ba ba discours am bu ko daan wax sax bu bu la firilee laaya ji daan maanaam. da daan firi aaya ci aaya. ci ci aaya waaw mooy jël aaya di comme ni sëñ Tuubaa la dañuy firi sax mu firi ko ci masque yi. wala mu firi ko ci masque yi wala mu firi saar ak saar yu bokk. waaw xam nga. moom daal <laughs> kéemaan la woon léegi nag discours mu noonu mu koy jël di ko structuré parce que discours dafa am nu ñu koy bindee mooy indi sa contexte waaw indi justificatif bi doog indi développement bi indi leen cay def mhm. moom da daan njëkk a ñëw taarixal discours bi mhm. indi contexte bi wax li li leen fi tax a jóg mhm. waaye nag jël ci responsabilité am nii Ablaye Mbaye Peex weex léegi nekkutoon xal moo doon le seul xale boo xam ne kenn daaw ko jottali loolu dafa bokk ci responsabilité parce que wax ji bu jàllee fii ñu ni sëñ bi kat lii la bëggoon wax wala nii la ko jubloo woon moo tax mu taxaw ne tey kat maani maani fu mu jub moo ne dootu fa dara dëgg la waaw sëñ Ablaye kon sëñ Ablaye bisimilah waaw waaw waaw fee maa ngi jégalu fi ma newoon daa sori ci wetu angle bi waaw dëgg la wallaay wallaay waaye Cheikh Abdoulaye waaw indi naa digganteem léegi ak alaaj Cheikh Touré wallaay wallaay bàyyi lay Touré waaye digganteem digganteem ak alaaji Mor Bopp alaaji Mor bopp xarit bu xarit bu Mor bopp yoon wi sëñ ba euh, bu saan fekk sëñ Abdou ko kondir. moo ko kondir keroog daf fekk sëñ Mor mu toog ci guy gi sëñ Mor Abdou Khadir daw sëñ Abdoulaye ni ko bul ko dawloo. sëñ Abdoulaye. xoolal bi mu nekkee xalifa. Mm-hmm. ku mu bokkal bàyyi lu mu reere moom ngay reere. jël seen doom yëpp utal leen yi ay kër man nag mënu ma ko fay ndax li mu def samay sëriñ njabootu sëñ Abdou Khadir gépp ku ñëwee moo la wutal kër. Mhm. doon na ca. Mhm. la ca war la ca war la ca war Cheikh Abdoulaye da ko def. Mhm. xoolal ñaata ñaa ñaata sëy la takk ci farata def ci alalam bàyyi doom juddu ca sëy. daara xëy benn bis war a loolu mag téeméeri sëy. lan ngir bëgg xeetu yonent bi rek yokku. waaye nag lu mi sant nañu yàlla lu miti dalul sëriñ sëriñ sëriñ Seex Abdu Lahat dëgg la ku sëriñ Abdu Lahat gënul sëñ Siidi a gën dëgg ndeysaan nañu ñaanal taaw boobu sëñ Siidi Seex Abdu Lahat mm-hmm. moo noppi moo maanu mooy déglu mm-hmm. sëñ Muntaxa mm-hmm. bu ñu sëñ bi sëñ Muntaxa day raam ca ndeysaan moo tax kere ba ko euh, sëñ Abdou Karim raamale man ko dañ laa fay rek ci ni ngay nuyoo ni ngay nuyoo Muntaxa borom Touba Belel ku dem Touba Belel xoolaat Touba Belel nit ñu xoolaat tey xam ne dem bàyyi ku baax moo baax. dëgg la lu fi Cheikh Abdoulaye bàyyi woon sëriñ si di yokk na ko. Mhm. Seyaar nag njabootu Cheikh Abdoulaye gu jigéen gi soxna May. waaw waaw soxna May yaay waaw soxna Kiné Mbakke Cheikh Abdoulaye. soxna Kiné Barke Sëriñ Tuubaa. soxna Kiné yaa yaayu soxna maam Faati mi nga mhm. xam ne moo bëgg maamam moo gëm maamam. dëgg la. maam Fatou Gueye moo bëgg maamam moo gën maamam. dëgg la soxna Astou Bali. mu ngi si mu ngi si Cheikh Gaynde. ah soxna Astou Bali na nga koy seet de. wallaay ndeysaan. moom jooyul soxna Bali. Mm-hmm. ndax sëriñ Sidi jooyul soxna May ndax sëriñ Sidi. Mm-hmm. kon Cheikh Sidi Mbengue na nga koy yàlla gudd la fanam yàlla ko yàlla may mm-hmm. sa sa sëñ Moor Bopp mi nga doon tudd léegi mooy waajuru sëñ Lamine Ba ak sëñ Sayer. mooy waa mooy waajuru Lamine sëñ Lamine. Moor Bopp lu ñu ci moom Cheikh Abdoulaye da def. ndeysaan ndeysaan nekk dina ko am. daan ñaari ñu njëkk a doon président yi naa ko am. wallaay ndeysaan. Cheikh Abdoulaye moo bëri jàmbaar. wallaay moo bëri jàmbaar barke Cheikh Abdoulaye. sëñ mhm. Abdou Khadir ne. Mhm. Abdou Diouf mu ko fay sëñ Abdou Laat ndax lakk na ko fa yàq yëgul. dëgg la ah, dëgg la. waaye daal boo mhm. bëggee jàmbaar wala boromi fit wala as gor. wala ku gën sëñ Tuubaa. Cheikh Abdou Laat. kenn mu sëñ lay def réew mi ci réew mi ci yëgu ko. ndeysaan. lu waay ñu wax dana ko ca boole ku dugg Tuubaa da lay yow. wallaay ndeysaan. moo li sëñ Tuubaa bëggoon muy lu segg set te maanu Cheikh Abdoulaye te segg Tuubaa ba kenn du fi dox kenn du yor sàngara. ndeysaan. lépp na fi jëlee. wallaay wallaay wallaay. billaay billaay amidun. wallaay ku mel ni Cheikh Abdoulaye doo am. déedéet déedéet. së së së sëñ Abdoulaye. wala xoolal Cheikh Abdoulaye ak ñi mu mhm. dem naan teel ba mu jaani sa jaaju ba mu ko jaani ci paas preuve. Mhm. waaw waaw. ba mu yëggee ba siyaar ba pare dañuy dañuy yóbbu ca fa ñu ko denc. waaw la ko wax sëñ Abdoulaye. waaw. damaa toog fii di ñu def plateau sëñ Abdoulaye. waaw. ñuy bañ président bu raamal kilifa ak diine. waaw nga ne ab président moo mujj a raam waaw yoonu Cheikh Rafal raam waaw Thierno Birahim raam sëñ ma nu raam sëñ ma numbe raam <laughs> maam Cheikh Anta raam waaw waaw woowu yoon ku raamul ku raamul Cheikh Rafal raam ak sëñ ma dem woowu yoon ku raamul foo jëm ah, <laughs> problème la léegi mu des mu des benn sëñ Bamba xamul ma xanam rafet déedéet xamul ma wallaay <laughs> jox jox jox milliard man bu jooy teg teg. wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay. waa léegi sëñ sëñ Abdoulaye. yaay lay la laaj waaw. sëñ sëñ Abdoulaye Cheikh Abdoulaye xam naa sëñ Mbacke Mbodj na ma woon image bi da daan woo ñëpp ba ñëw. waaw. mu waaxu dajale personnalité yoonu Mouride sëñ Moussa Basirou ci wet gi. waaw waaw. ñëpp ba pare moom mu ñëw boof ci suuf. bu bu ñëwee ci suuf lay toog. te buy wax weñ du naaw. te bu te bu ne asalaamaaleykum su waxee ñaari baat coupé na. ni ngeen saa mbokki tali bi neewoon na ko neex dëgg laaj neewoon na neewoon na nay mën bu xool bu nangu ko bëgg dëgg la wallaay wallaay wallaay neen Cheikh Abdoulaye Lahat nee na may mu nangu xool xool yi nangoo ko gën dëgg la dëgg la keroog bi Serigne Bamba maa moom di ñëw ci Touba dafa ñu sëñ Abdoulaye Diakhaté xetu Serigne baa ngi may xëy maa la ko wax ci rek boo mu jàng mu ne sëñ Abdoulaye Diakhaté Abdoulaye jógal sëñ bi ñëw na ci dëkk bi de boo mu jàng mu ne Abdoulaye dem naa ca denc ba ma ñëw te boobu fukki at ak ñett la am. waaye xoolal li mu def jël wàllam jël wàlli rakkam jox Cheikh Moustapha. wallaay ndeysaan. cee. féeteeg yàlla. Mm-hmm. waaye xoolal bi mu moomee Touba xoolal di xoolal ni mu toppee woon ci sëñ Fallou. dëgg la sëñ Ablaye. Mm-hmm. waaw am na ko génne léegi muy sëriñ Mamour Mbacke nekk ca Washington. waaw. yónnee na fi fanweeri junni nee na yow ak Bisri. wa waaw. moo nekk ca Washington nee na nee na jox na laa dee sëñ Ablaye ci loolu nga wax. gis nga Cheikh Abdoulaye eh, Akassa. sëñ Maam Mor Mbacke waaw. diggam ak sëñ ñoo bokk mbayeef. bokk mbayeef. yoon yi mu mujj ustaan laa keroog nag yoon na nga ma daaneel. ndeysaan gis nga ba mu ne cëpp. waaw. ba sëñ Abdou Laat seen ko ba sëñ Abdou Khadir seen ko. waaw sëñ Abdou Khadir dana kaala nga paxi keroog laa jëkk gis sëñ Abdou Khadir def bopp neen. laa ilaaha illallaah koy bokk ni Abdou Ablaye ma ne ko Mbacke mu ne ko kenn kat di ko nuyu ku ko gis saa faju ku ko gis sa ajo faj <laughs> maa ko jottali wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay bay mu dugg ca biir néeg ba yow xam nga nu may def Cheikh Abdoulaye dugg soxna moom sëñ Touba dugg mm-hmm. ñetti ñetti doomi sëñ Touba yendoog moo Modou Abdou Khadir bu saam laay laay laay wallaay wallaay wallaay wallaay léegi sëñ Abdoulaye yow dama lay jëlaat léegi ndax daa am kilifa goo xam nee na ma du kenn du ma jël ah. téléphone maa ngi ñëw ci plateau bi léegi moom su ah. duggee rek yow laay dugalaat jeex na jeex na maa ngi déglu. jërëjëf <laughs> eh, sëñ Dame eh, élément bu ne noppi na sëñ Ibrahima Mbaye Pekh jërëjëf sëñ Mamor Mbacke Washington imam ñu ngi koy gërëm. joxe na fanweeri junni ngir sëñ Ablaay ak euh, sëñ Ablaay Mbay Peex nit ku baax la euh, ñu ngi koy ñaanal yàlla taxawu ko sàmm ndax nee ma dama bëgg sëñ Ablaay te kuy murit di noyyi mbaa nga di jullit ameel nga cofeel sëñ Ablaay soxna Aram Diop assurance ca Thiès nee na a euh, ma kenn du ma woo manque yoon wi ñëw damay ñëw ci a bëgg woon ne ma jaral lépp lu ma mën am ci àddina mm. sëñ Ibrahima barki Seexul xat Xaddim ku yàlla def nga bëgg sëñ Tuubaa di nga bëgg sëñ Blaat ah, xoolal dajale ñëpp ba ñëw sëñ Jibril nga toog ci suuf uh-huh. wax ji toog ci suuf amul solo de waaye la ngay bëgg a wax uh-huh. ñëpp déglu la sëñ sëñ sëñ daam andil ñu son boobu ñu déglu son bi del siwaat ci plateau bi nañ déglu tawxiid jëmm ju day ne yàlla moom lépp sàkk lépp te du ci jariñoo lenn te ku ko laaj mu jox ko ku ko laajut mu sikk la man lu ko laaj lu tuuti maa ngi koy laaj lu dimbali bindeef yëpp nawet bii ñu naa nañu ñaan ndax mu mel ni boobu ren baa mu gën ko man dama koy ñaan bekkoor toxoo fi jeex ci weeru tabaski bii te dikk mukk ci senegal ñaan googu gi may ñaan itam yàlla toxal bekkoor ci Sénégal maa ngi ñaanali ci biir ku dib Sénégalais ak foo mën ne loolu fekk la fa kuy keneen itam te dikk ci biir réew mi te mën laa génn senegal xéewal gu yàlla googu ndimbalam li fekk la ba kenn bañ a mën a nattable ne yàlla yor ndimbal yàlla yor xéewal moo mën a dimbalee léegi nag maa ngi dellu di ñaan yàlla moom mu yor ndimbal yor tiraanga yor sutura mu dimbali suturaal nu teral nu dimbali nu ëllëg awala mi te la te teggi loona la ko maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf eh, jërëjëf eh, sëñ Mbacke Mbodj ci montage bi jërëjëf sëñ daam Euh, son bii sëñ Galas Kalto moo ma ko yónnee sëñ daam euh, bu fekkee ne sëriñ Amsatu Mbàkke mu Cheikh Abdoul Ahad jàppandi na euh, moom moomu nga xam dañ koy ñaanal ndax responsabilité bi muy jël sëñ ji bi ci taxawaay yoonu murit ñëpp ko rafetlu ah, ndax dafa bëgg sëñ Touba sëñ Mahmoudan moom Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne ni tey mooy jëwriñu liggéey bi ndax màggal gi taxawaay bu am solo la ci doon taxaw ni contexte bi demee nag moo waral sëñ Sidi ne li sëñ Muntaxa wax la ñuy def kon sañ sëñ Mahmoudan ñu ngi koy ziyaare baax di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu tibér fu mu toog sëñ Ibrahima te li ma neex ci sëñ daan mooy kilifa goo ko laaj bu ci xamee dana ci wax kàddu maanaam mhm. dafa disponible ci seede ci kilifa dafa bëgg yoon sëñ am satu gis nga bi ñuy laajte ci alaaj ñuga kebe ku ne xam na diggante sëñ Ibrahima ak alaaj ñuga mhm. sànq rek maa ngi jokk ak soxna Mominatu Kebe mhm. ndeysaan ñu ngi koy ziyaare mu wax ma sëñ alaaj ñuga dana woon sëñ Ibrahima mel ni sëñ Mourtala mu Cheikh Abdoulaye xoolal ajami moom lañ ma sëñ milliardaire bi gànale sa sëriñ ay bool ak di takk sa ndigg. di ko jox sëñ Abdoulaye seetal loolu. waaw moom la ko mës a gisee milliardaire. milliardaire. El Hadj Ndiouga sëb sëriñ takk nekk Baye Fall. El Hadj ñu tiitre ko. wallaahi Babacar Kebe di Ndiouga. wallaahi mosu gis lii milliardaire bu mel nii. wallaahi wallaahi nga xam ne Sëriñ Tuubaa amul nawle amul morom. wallaahi bi ko bi ko bi ko Senghor Senghor Senghor nuyoo. waaw ko mais Ndiouga téye Baye Fall. waaw Ndiouga <laughs> mu dem jënd wallaahi <laughs> soxna Maguette sëñ Dame ñu làmbal ñu sëñ am sat waaw. suñu soppe la dafa wax ni. Mhm. baayam sëñ Ibrahima Thioul moo nekkoon ancien adjudant chef des sapeurs pompiers mhm. dafay def at mu jot bu fayyi ko salaire am mhm. day jël salaire daggal ko sëñ Abdoulaye def ko à l'anonymat mhm. maanaam du joxe turam kenn du ko xam di ko def ba retraité door a ziar sëñ Abdoulaye ni ko ki ko doon def man la sëñ Abdoulaye ni ko dootoo tàggoog barke boobu ak léegi salaamaaleykum waaw bisimilah salaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay ziare bu baax Mbàkke di jéggalu waxtu wi ak guddi gi ngi daal dal ziar jéggal nañ ko waaye noo ngi noo ngi noo ngi tuub bu baax a baax ci waxtu yi waaye mm-hmm. eh, la ma la waxoon daaw ak daaw ji yàlla naa la ko wax ay at yu bare bare bari barke Cheikh Abdoulaye amiin bi jaay daaw dama ko ne ko damaa bëgg nu waxtaan ci sëñ Abdoulaye mu ne ma loolu wax ci sa bopp la mm-hmm. ren nag dama ko ne nun nun nun nun dañ laa wax ne sëñ Saliou wala yebal nga ñëw seere lañ ci sunu sëriñ ndax moom léppam sëñ Saliou la waaw sëriñ Amsatou Mbacke Cheikh Abdoulaye ñu ngi lay ziare bu baax di la bàyyi rek kàddu gi nga seedal nu kon ci jëm ji nga xam ne moom la ñuy waxtaane ndax ni nga koy waxee saa su nekk ci wax ci sa bopp waaye ku nekk am nga waaw ndax wax ci sa bopp waaye lan nga ñu indil tey ci jàmbaar ji nga xam ne tey mën nañ koo def feuille de route ci taalibe buy wut lu baax waaye mën nañ koo def itam ci kuy wut àddina te bëgg a jaar ci yoonu njub dëgg la mhm. asalaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ am ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay di bég ci yéen nag fuñ toll ci waxtaan yi. wallaay ndeysaan. yàlla dogal na tey ma ko waaye wax nañ ko ko. Mm-hmm. kon ci gàtt rek. Mm-hmm. sëñ Abdou Lahad moom. waxtaane ko yomb na lool waaye jafe na tamit. Mm-hmm. waaye li yombal ab liggéey moom euh, dafa teg sëñ ci waa ci kanam rek. di ko di ko liggéey di ko liggéey. bëggul lu lu lu lu moom. bokk na ci li yombal ab liggéey itam daa seet li sëñ Tuubaa bëgg rek mu ne ca mhm. def ko toolam di ca xëy di ca gon mhm. sëñ Tuubaa mel ni li mu bëgg da ko def ci bu ñu tudd wax mat la bu foo nga xam ne day defar adduna di defar àllaaxira mhm. mu fab boobu nag def ko wàccaayam lu ci sëñ Tuubaa bëgg rek ci dëkk bi ak ci njaboot gi moo taxaw ca ba loolu am lu mu ci bañ itam mu fexe ba loolu ci dëkk bi ak ci njaboot gi yow itam defar taalibe yi bu baax a baax yar leen dimbaleen ndax euh, <coughs> fenn rek nga ma sonal jaar sëñ daal pour jëriñoo wala jeeb ko <coughs> muy ci sëñ Tuubaa soo ma sax bëgg ci moom dara doo jaar ci doom am ko doo jaar ci soxna am ko <coughs> doo jaar ci entourage bëgg nekk am ko ci sëñ Tuubaa rek boo ko ne sëñ Abdou Xaadir nangam wala sëñ Sadio wala nangam nangam wala sëñ Tuubaa am te loolu lay dox ba te loolu lay nekk ba loolu jot kon foofu lañ ko mën a jekkoo muy jëmm joo xam ne dafa seetlu sëñ comme ni ma ko waxee ne sëñ Tuubaa bëggoon ci dëkk yi mu defal ko ndax sëñ Tuubaa dafa fonk dafa fonk doomu aadama ba waxoon leen ne leen ñi ma yebal ci yéen bu leen leen bàyyi ciw naaj nit kenn du ko bàyyi ciw naaj moo tax mu daan def ay garab di def ay mbaar dëkk bi ci nit ñi bu leen leen bàyyi itam ñu xiif nit kenn du ko bàyyi mu xiif mbar yi mu daan def daan togg ay ñam di ci def nit bu leen bàyyi ñu mar nit kenn du ko bàyyi mar moo tax maa def garab doo ma saa gis njaq nga cewet ga wax boo duggee ci kër gi dootu marañ kon kooku fonkoon doomu aadama mhm. suñ tubaab dafa wax ne ñaar laa yebal ci yéen kii laaj ak kuy joxe waaye bu leen leen xàmmee fii xàmmee wu leen rek ñiy joxe ñooy ëpp ñuy laaj suñu blaat nag xàmmee wu loon ñooñ moo tax lu ma saa am yoon yàlla ko def mais ci suñ tubaab la ko def am na mag mu ko mos a ñëw di ko wax naan ko sëñ bi li liy daje fi yow da dul fekk ne ndax lu ñëw suba ngoon du ko fekk lu ñëw ngoon du fanaan mm-hmm. tey bu doon day day mel ne li ñëw fi ñëw ci genn kër mm-hmm. mu ne ko ay waaj yi diw wala góor su mel ni nga xam ne <clears throat> gëne loo ko gëne woo ko lu may lenn muy sëñ Tuubaa nga ko gëne mm-hmm. mu bàyyi aw santam di wuyee soo sant boo toogee ci suuf mu toog ca kaw <coughs> soo ko yónnee mu daw ba noppi nag mu wetti ko aw ñaxam di la ko jox te bis dana ñëw jëmm ji du wax ñaq wa ci boppam mooy wax ma ne diw ak diw moom a jur doomi diw diw nee nag boo ko deful fu yàlla gërëm mm-hmm. defal ko ko ci ay oto ak ay jigéen ak tabax mm-hmm. boobaat dee wóote ko sax moo ko tan mm-hmm. moo tax lépp li mu amoon yoon yàlla la ko def nekk na fi ñaar fukki at ak benn bi mu fi jógee bàyyi na fi bàyyi na bàyyi na ci compte Serigne Touba nga xam ne moo ko moo ko sos 600 millions yoo xam ne doomu amu ci benn dërëm. bàyyi na fi lu mat ay 80 mille pàkk yoo xam ne doomu amu ci benn pàkk. kon léppam da koo delloo woon ci Serigne Touba ak ci njabootu Serigne Touba. ba tax na kon. li ma ak njabootam fii maa ngi fi nekk. fii maa ngi dund. ñu leen di yërëm ak yéen a sax waaye su ma leen wanee gannaaw nag daañu bàyyi loo xam ne kuréel maire du ko a nangu. te loolu mooy jëm mooy ngor mooy taalibe mooy diine loolu ko ku mel ci ko mën a loolu nag la bàyyi la ak njabootam ni bàyyi na leen fondation boo xam ne ku am fit nag da dem ndax loo ci rek àttan na ko fondation boobu rek mooy loolu ma la wax rek jëm ak fulla ak ngor ak diine loolu la fi bàyyi ni leen wan danaa leen bàyyi loo xam ne fii maa ngi fi nekk itam euh, euh, du ma leen fi bàyyil benn dërëm adduna moom lu ngeen ci am yéen a koy amal seen bopp lu ngeen fi am yéen a koy wutal seen bopp waaye ëllëg jee nga xam nag dara dafa doy moom boo xamoon xottu gerte ñoo koy bokk ak yéen. Hmm. tey daal foofu la tegoon ci lëggéey Sëñ Tuubaa bokk na ci lëggéey yooyu këri Sëñ tuwaa yi nga xam daj na réew mi léegi mooy mooy li ko jëkk sos bu jëkkoon dañ daan def ko nekk xalif rek dañ lay defal kër. Hmm. boo fa jógee say doom doon na ko waaye moom moo jëkk a sos kër Sëñ Tuubaa boo xam ne. Hmm. ku fi jóge sëñ ku fi nekk sëñ Tuubaa yàqal moom. dawaay itam noonu daal dafa dafa def dañ daan def daayira sëñ Tuubaa daayira sëñ Tuubaa bu fi dayre boobu moo tax suñu saat benn moo sos dayre Sëñ Tuubaa ne wutal naa yoonu murit bis si mhm. moo tax dayre Seex Xaadim rek dayre Seex Xaadim ngay dégg mhm. bool nag fonk njabootu Sëñ Tuubaa gi lool mhm. def leen di sang def leen di sëriñ am na benn bëkk bu ma sa wax ne ma da ko doon da doon da doon bayal nekk benn nekk ba fekk yërnool bi gis ci ab leetar boo xam ne soxna askan moo ko bind di ko wax suñu ablaat ne ko daal taaw nga sëñ Tuubaa njabootam bi dañu daal di alhamdulilah rabbil daal mm-hmm. ndax yàlla ndax sëñ Tuubaa taaw ma sama njaboot ëllëg <laughs> kon li am solo mooy mm-hmm. doom doo ko fa teg sawet mm-hmm. ndax ndoon rek lay xool ci yow loo bëgg a joxe dana la wax lay lu ci génne ndax li li baax am li nga am lépp ko jox ko yàlla def ko ci yoon yàlla waaye denc ko nag ñu koy doon ëllëg amul njëriñ amatul mujj ndax àll ji fi nekk sëñ Tuubaa moom dimbale ci njaboot sëñ Tuubaa gi mhm. dimbale ci taalibe bi Tuubaa gi defal ci sëñ Tuubaa ab dëkkam mhm. loolu mooy lépp solo sëñ daal xalif général tous les ndax ba léegi mhm. ay nasiram ak naalam jeexatu xalif yu jaar ñëpp ndax awa mu fi jóge dafa jiitu jamono dafa marqué jamono ba dafa jiitu ko ndax euh, awa mu fi jóge dafa gas ay forage ci yoon tubaab bi la boo xam ne da koo gas kaste ne da sa baax boo génn yoon jur jëm xel koom fi ñuy wax kër kàpp mu gas su benn kaste ko ci soow mu def ko xeble yëpp da koo def nga say faras bàyyi faras yooyu sëñ Saliou moo ko aménagé ñu ci naan ba nëgëni kon xalif général Touré tam maqaam yi mu fi bàyyi woon itam nga xam ni eh, dund ak dee ñoo ànd wopp ak wér ñoo ànd mu def hôpital waaye dafa def lis dafa def dafa def ni mu defee hôpital dafa def ay armée yu bees yi ñuy wax baqee baqee mu daal di koy miir mm-hmm. ci jamonoy sëñ ma Mate lañ ko ubbi mm-hmm. jaamiha bi nga xam ni doy na sëkk bu lëggee sëñ Mountakha ne ci di kër kër moo kon andesoon bàyyi ko fi mm-hmm. loolu nag kon dafa mel ni euh, doxtalaaf ak ak gouvernement la sëñ Abdou Lahad yoon ndax biir këram soo fi masaa ñëw itam da nga fekk sëñ Tuubaa gépp nekk fi mag sëñ Tuubaa yi fi desoon boobu ay mag ku ci nekk gi daan yendu ay weeri weer di jonjoog yow bëgg liggéey bi liggéey sëñ Tuubaa nga doon ci seere ndax sa bàyyi àndoon ak sëñ Tuubaa wala da nga àndoon ak sëñ Tuubaa mag ña fa desoon ñooñu ñëpp daan day ci kër gi njaboot sëñ Tuubaa itam kër bu ne dafay jël nit koo xam ne <clears throat> moom lay doxalee diggante kooku bu dee par exemple parce que sëñ Abdou Aziz dafa jëloon ku mel ni sëñ Moustapha sëñ mu de mu dee ka sëñ ka sëñ Sadio mu jëloon ku mel ni sëñ Moustapha ka sëñ Sonia mu jël ka sëñ Laat sëñ Laat Sonia bu Sadio Koudous sëñ Abdou Koudous dafa jëloon ñooñu ñëpp dañ daan ñëw la xew ca kooka ak lu fa war a mat lu euh, euh, mooy dox ci diggante ba lu ñu soxla ba mu toppatoo ko yónnee ñooñ ba ba loola jag kon Sëñ daal sëñ Tuubaa la fi nekkaloon. Mm-hmm. yàlla la fi nekkaloon. kon su bisam ñëwee ngeen di ko ci fàttaliku yii mu daan jëf te ñu bari xamuñu ko day baax ñu wax leen ko rek ngir fi xam waaye nu waxuñu ci suñu waju ndax nun amuñu bàyyi sëriñ la ñam. wallaay ndeysaan. amuñu bàyyi sëriñ la ñam. ndax suñu sëriñ la te lii ma wax ci moom itam wala la ci doomu sëriñ Tuubaa yëpp. ndax mm-hmm. ñoo bokk bokk fu ñu jëm bokk luñ bëgg bokk luñ bañ. kon noonu ñun ñi fi def di ay sët ak ay taalibe. naka suñu waju yooyu. ndax ñu mën a am ndam. ndax ñu mën a réussir seen sax àlla. dëgg la ndeysaan ndeysaan. abdoulaye. dëgg na ci alxuraan loo xam ni. bëriwul ñu ko fi def. dëgg la dëgg na ci xasida loo xam ni bëriwul ñu ko def ndax moo dajale Sëñ Tuubaa xasida yëpp tuur kër. dajale alxuraan defal ko kër. di nit koo xam tam dafa bëggoon traaka xam ko. Mhm. Mhm. di teral doomi sëñ Tuubaa yëpp di teral njabootu sëñ Tuubaa yëpp di teral taalibe sëñ Tuubaa yëpp di nitu dëgg koo xam nag dëgg moom amu ca tetta fu mu ko war a wax dana la ko wax mhm. muy ngóo muy muy baadoo la mooy kuy man doon li may daal rek ci gàttal eh, am na kilifa gu fi ne woon yor réew mi am na loo ko suñu laat mosoon a wax conseil boo xam ne lu am njëriñ la war na itam ñu koy bàyyi xel ndax day tax nga xam fi kay teg sa tànk xam ni ngay jaxase ak nguur tey dana tax nga gën a gëm sëñ Tuubaa xam ni lu am moo la ko may kilifa googu daf ko waxoon ne ko benn bés ni ko di ko leeral ci ñetti mbir la ko ni ko xam nga wute na ma ak yow ndax yow booy wut réew mi tey jii da wut ay nit jox leen oto su ñuy wër ren ba déwén suñuy ñëw yaa leen jox essence yaa leen bu ñu bu yaa leen jox luñu añee yàlla ñu delloo ko. suñ ñëwee waxoo leen lu ko def ëllëg soo leen woo duñ duñ del man nag su ma su ma fii ma toog. su ma doon ku ku su ma woote ku ma déggal da nga ñëw. boo ñëw du ma jox paas te doomu lu lu te soo toogaat ba ngoon jot waxuma la ko tam ñu dellu da nga dellu su ma la soxlawaatee doo nga ñëw kon xam nga bokkuñu fuñ nekk. daa nekk ko soxat nga ku ñàkk njëriñ ko bañ seen ko soxat ngay dee gën a soxat ci àdduna kilifa ko warta soxat ne ko boo soxatee nit ñi dañ la ragal lool ndax gaynde bu génnoon fii tey ñëppay daw dugg ci waaye buñ génn rek ñu génne jeer ci wala xel dal ci sa soo soxatee nit ñi dañ la bañ waaye dañ la fegal mhm. dañ ragal waaye dañ la fegal mhm. nekk ñàkk njëriñ ne dëkk boo gis nit ñi daw di ko génn ñàkk njëriñ tax dëkk boo gis nit ñi daw jëm ko bari njëriñ tax soo amee njëriñ nit ñi dañ la bëgg soo ñàkk njëriñ nit daañ la bañ daane ko bañ sëñ Tuubaa nag mooy li yës ci àdduna ndax ñaar rek la bañ ci biir ak bañ ci biti soo bañee sëñ Tuubaa pisal ko xaru la soo ko bañee di ko ne posal da lay da lay rey nga dee kon sëñ am Mbacke Balla maa ngi yemale foofu wax ji ah Mbacke bëgg nañ lool Mbacke si gàttal waaw ñun ñi ñoo la war a sant de jërëjëf jërëjëf Mbacke ñun a a ñu ngi mos a jibil bu baax waaw waaw taalibe bi sëñ Ibrahima Fall Touba Forage. sëñ Ibrahima Fall Touba Forage. ah moo fi waaw waaw mi ngi nii waaw ndeysaan. jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke sëriñ Amsatu Mbacke ibnu Cheikh Abdoul Ahad sëñ Jibril nii la ma ko waxee démb sëñ Jibril sama xarit la ne ma sëñ Abdoulaye Diop Bichri jàmbaar la kon nag noo ngi ñaan bu baax yàlla yàggal ko fi loolu te wéral ko maa ngi nuyu sax sëñ seexu naa moom sëñ am satum Cheikh Abdou Lahad ah. mooy jëwriñu daayira sëti sëñ Abdou Lahad yi xam nga at mu nekk dañ daan def conférence ni contexte bi demee tey moo tax defuñu ko dafa am am at daaw bi ñu ko mujjee def dañ ma woo téléphone ne ma kuy wàlliyaan sa kër hmm. bis bi ñuy defal sëñ Abdou Lahad conférence bi yaa nu koy modèle ndax da ngaa bokk Cheikh Abdou Lahad euh, loolu di lu lu lu te ñoom dañoo nekk ñoo xam ne dañoo murite waaw sañ aboo Ah, ah? ah sëñ Blaat ak may mi ngi may message léegi ah sëñ Cheikh Abdoum sëñ Cheikh Abi sëñ Baye Laatum sëñ Cheikh Abi ñoom hmm. nga xam ne ñoom ñëpp ci la ñu bokk soxna sii Sidi ñu ngi koy siyaare soxna maam jaaram sëñ Abo sët sëñ Blaat yi di def nag benn laj na boo xam ni hmm. maanaam ndaje mi liñ ciy def ci ay abiyaat ci Cheikh Abdou Lahat kenn xamu nu mu yu mag lañ doon def euh, dañoo bëggoon a dugg sax waaye dañ maa wax ne ma Euh, ndéem sëñ am saa ngi dugg sëñ Abdoulaat mu Laat Jiili yónnee na ma ah, léegi message moom sëñ Jiili mu sëñ Fàllu moom murid saadex la ah, moom moom ku baax la te woyof ah, bëgg loolu sëñ Touba euh, soxna maam Jaara Mbàkke moom Cheikh laat caatum sëñ Abdou Lahad xam nga moom la sëriñ moom lañ dénk sëñ Cheikh Abdou Lahad Mbacké mhm. moom sëñ Cheikh Gaynde Fatma Cheikh Abdou Bali ñu di ko ziyaare baax sëñ Abdou Lahad moom it ak soxna maam Jaara moom it mi ngi baax soxna maam Jaara Mbacké la nekk wallaay wallaay yàlla dogal na euh, sama tante ji la ñuy wax soxna Fat Dieng madame Mbuub mu sëriñ Mbuub CCB day léppam wallaay gala man lay yóbbu foofu ma defal ko waxtaan ndeysaan a baax soxna maam Jaara Mbacké caatum sëñ Abdou fii ci parcelle kër soxna Maymunatu Mbacké Mbacke bintu Xaadim Rasul di nuyu soxna maam Asta Mbacke moom sëñ Sirim sëñ Blaat sama sëriñ maa ngi koy ziare soxna maam Asta sama xarit la eh, xam naa moo ko ziare soxna Kumba dina kontaan maa ngi ziare baax sëñ Mara Seck jànkatu xasaayit taalib sëñ Blaat ak sëñ ak sëñ eh, ak sëñ ak sëñ Abdoulaat Diouf jànkatu xasaayit mi ngi naan ma sëñ Abdoulaat lañ ma tuddee ah, nee na ngi nësal sax daara ju rëy joo xam daara alxuraan eh, ngir ngir ngir ngir jàngalem njàng ñi ngi nuyu bu baax a baax baax a baax a baax a baax Euh, soxna euh, soxna euh, soxna May Mbàkke mm, buñ Cheikh Abdoul Ahad Sëñ Jibril mhm. at mu ne buñ ko daan defee ji Touba da daan defar ay xéewal dajale njabootu Sëñ Abdoul Ahad gépp soxna Daba Mbàkke ma nga fële ci Daarul Muuti mhm. mu sëriñ am sëtu soxna Dabam Cheikh Abdoul Ahad mhm. soxna Njaxat suñu yaay mu la sëriñ Cheikh Abi Denco ah njabootu Sëñ Abdoul Ahad gi nga xam sëñ naa yàlla na yàlla dolli koy wér sëñ Moustapha moom Cheikh Abdoul Ahad sëñ xaadim bamba sëñ ahmed bamba sëñ xaadim medun medun sëy borom tawféex nee na mu ngi ñi seetaan medun sëy borom tawféex jàmbaar la ci yoon wi day ndeysaan kon ñu ànd ak ñun ñu ngi koy ziar bu baax di ko nuyu di ko ñaan ndeysaan daam ñu préparel nu euh, sëriñ Basiiru ture moom soxna taay rek moom soxna taay moom Cheikh Abdoul Ahad waaye moom alaaji sëriñ Cheikh Touré mii nga xam ne moom lañ tudd léegi sëñ Ablaye Mbaye Peex doon ko tudd euh, ak soxna nday xëri Touré kontaan na lool ndeysaan ci jaraay Cheikh Bamba bu sëñ Abdoulahat Cheikh Bamba Cheikh Bamba ak sëñ Mor Sourang sëñ Mor mi nekk fii sëñ Mor xarit sama yaay Limaan Gay sëñ Maam say jaxate def na ab yaat yu neex sëñ Maam Morum Fàllu léegi am na ko naan ma sax waxal ci diggante sëñ Abdoulahat ak sëñ Fàllu sëñ Abdoulaye jaxate tam way la xasida <laughs> loo am loo wax léegi mhm. sëñ sa dëggal ko muy sëñ Abdoulahat xalifa éternel la mhm. ndax saa su nekk sooy jël di nga jël ci ab liggéeyam sof mhm. moom lu ñuy sof lay doon euh, Euh, sëñ daam daf jox ma beneen élément bi bala ñoo dellusiwaat ci euh, li nga xam mooy appel yi nga dugal la ñu sëriñ Basiru euh, Touré beneen élément bi ñu seetaan ko dellusiwaat ci plateau bi. Yeah لك بدوني بدل من موت نفسي ما نهاني جدل ترسي عن الموت بقاء الله أبقاني الله بوجه الله nit ku ne ak li nga war a dund ak mu ak mu ca génn génn ni te limba te dootu delsi weer yi nga war a dund weer wu ci dem dem na te dootu delsi bis yi nga war a dund bis yi nga war a dund bis bu ci dem dem na te dootu delsi saa yi nga war a dund saa su ci dem dem na su delsi te dootu delsi te bu ci dem su yóbbaalee lu la dara boo demee doo fa fekk lenn ñaar fukki fan ak juróom ci kori wi mu féete belel ndeke mi ngi ñuy waajal mbetteel fala féete di bégal dongo yi ak di tontu daayira yi guddik altine fukki fan ak ñeent ci diggiw tabaski mu mel ni mbir xew na nit ñay laaju ak lijjanti sa ëllëg sa kenn reerul ngir tiitaange àdduna bu amoon solo kon yàlla def fi dara lépp lu fi nekk nit ñee ko fàggu la daa wax yàgg naa tàggoo dañu ko déggul woon yàgg ñu koy misaal dañu koy gisul 18 juin 1989 xibaar boroot journée de prière pour le repos de l'âme de Serigne Abdoul Ahad Mbacké a drainé à Touba des foules de talibés, de musulmans venus de tous les coins du pays, d'Afrique et du monde entier, rendre un dernier hommage au calife défunt et prier pour celui qui fut pour eux un guide éclairé, un exemple de droiture, d'homme de parole, de piété, de dévotion, dont le souvenir de la forte personnalité restera indélébile dans les mémoires. Baylaat bàyyi laat dem na beleel wéet na kàbb gay jooy na yoonu murit ser na lislaam sëngéem ñàkk caaxaan fekki baayam matal sëkk yaakaar ju rëy mu tegoon ci moom yokk yaatal yàkkali bàyyi fi yoon wu dëgër murit yu jaaju jërëjëf eh, sëñ daam jërëjëf sëñ Mbacke Mbodj ci élément bu am solo boobu eh, jamono ji moom waxtu wu nekk rek nii lay dëppoo ni muy waxee waaye boo jàngatee ay discours Sëñ Blaat di nga xam lu baree bari ci ne lum doon wax tey tax ndax lépp luy fooy doritam wala am murit war caa jaar rek Cheikh Blaat wax na ko moo tax. Euh, ñun ñëpp war nañoo delloo njukkal Sëñ Abdou Lahad ndax dafa am taxawaay boo xam ne ku dul Sëñ amoo ko woon ci amoo ko woon ci njaboot gi damaa jëlele ni mu woon ak sëti Sëñ yi ak njaboot Sëñ Tuubaa gi fi nekkoon waaye ni Sëñ Abdou demee woon ak murit yi nga xam ne am na ñoo xam tey bu ñu amee pas-pas bu dëgër sëñ Blaate leen ko defal tey am na murid yoo xam ne ni fit yu ñu am ngir mën a dund sëñ Blaat ngir mën a dund sëñ Touba dund seenu taalibe na mu ware te duñ ci am benn xel ñaar sëñ Blaate tax te mu nekkoon koo xam ne wéttalu jamono la woon sëñ Blaate wéttalu jamono la woon tey nii ñuy attaqué l'islam sax de gauche à droite amul benn kilifa ak diine goo xam ne nii boo ñëwee ci moom. gis nga bi jamono bi nga xamee ni Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Almaktoum yàlla na yàlla dolli leeram amoon na ay jafe-jafe ak politiciens yi seen blaat responsabilité bi ñu ci amoon taxawaay bi ñu ci amoon bi mu ñëw ndakaaru di gane si Alaaji Njuga Kebe dajale murid yëpp taxawaay bi Cheikh Abdou amoon moo tax yal na yàlla dolli ay leeram te taas na ci barkeem sëñ Jibril dama lay bàyyi nga ñëwoon ñu tuuti rek ci réalisation yi lan nga ñu ci yokkal balaa ñuy ñëwaat ci euh, sëñ ba Bassirou ture xam naa sëñ daama ngi koy làmb ngir mu dugg ci jotaay bi. Euh, jërëjëf sëñ am ne woon naa la partie bi ngay teg moom boo ko tegee rek mm, yàq jataay bi waaye nag heureusement ba lim ko laytaaye xam ne nit ki bis boo dund rek génn na sa sa dund te dootu ci dellu si waat hmm. waaye nag na ko waajalee loo xamante ni bu ëllëgee euh, di nga ko fa fekk hmm. moom na waajaloon na loolu bu baax a baax a baax a baax dundam dama koy résumer ci ñaari baat mooy dogu ak dëggu Sëñ Abdu lépp lu mu def ci diggante boobu la ko defee dogu na ci lépp loo xamante ni waroon na koo def mu def ko dogu na ci népp nu mu waroon a mel mu mel ko waaye nag dëgg la yoroon joo xamante ni ku mu mën a doon nga wax koy wax tey jii lii àddu xew ci àdduna nit ñi waxatuñ dëgg nit ñi def te dañu war a na xool Sëñ Abdu Lahat autorité mënta gën a rëy président de la république. dëgg doole mënta ëpp doole ji président de la république am. Hmm. boo ko waree wax dëgg danga ko koy wax dëgg. àgg sax sa ni ko ni ko waxoo dëgg nangam nga. dinaa la dinaa la dinaa la dinaa la lay taayal loolu nga wax. waaw ñu daan def ak président de la république. Hmm. dafa am ku ñuy wax Alaaji Tamsir Mbuub. Hmm. dafa nekkoon fii di ay Mhm. alaaji Tamsir Mbuub tailleur la bu am barke taalibe mhm. seex la mhm. di taalibe sëñ Abdul Aziz Dabaax dëkk fële ca wetu piir yàlla dafa dogal alaaji Tamsir Mbuub jamono bi ñuy rapatrier di indiwaat euh, mbokki taalibe ya nekkoon Congo les années 72 moom ñëwaale moom ñoom alaaji ma Faal xamante woon nañ bu baax taalibe sëñ Abdul Aziz Dabaax la bi mu ñëwee nag comme tëj nañu bunt yi bitim réew yàqu kon léegi jël ay tissu di ko jaay mën koo jële bitim réew indi ko ci réew mi ci la ñu am yaakaar bu gën a dëgëraat pour mën a joxe hadiya mu dem wax ko sëñ Abdou da baax mm-hmm. ni ko si Malick kat li ñuy fàggu di ci mën a liggéey bunt bi day nar a sàkk di nar a tëj mm-hmm. léegi nag ma am bunt boo xam ni ay mbokki nasaraan ñoo war a jox ay tissu yoo xam dañ koy indi Sénégal mm-hmm. waaye nag loolu pour ma am ko il faut kilifa addu ba ci njiitu réew ma ñu signal ma lettre bi tax ma autorisation mu tàbbi waaye sëñ Abdou Aziz Dabakh ci mbaax gi dani ko loolu nga bëgg dey kenn laa xam bu duggee ci noppam mu sëñ Abdou Lahad mm. mu wax ko njiitum réew mi jo jàpp naan dina la ko mën a jàppale mm. ne ko léegi loolu dangay bàyyi war naa dem ci sëñ Abdou te ñun ñaari a séq diine ci muy sama mbokk mm-hmm. soo fay dem incha allah dinaa ànd ak yow bu ñu demee nga wax ko nii nga ko ba mm-hmm. bañ fa àndee dem ci sëñ Abdou Lahad ba nu ñëwee ba nuyoo mu defal ko ngan fi ñu toog mu wax ko wax ji sëñ Abdou Lahad ni ko kan la mu ni ko si alaaji tam si mbuub sëñ Abdoulaat ni ko noo ko bëggee mu wax ko lépp ba àggal mu ne ko bind ko ni nga ko bëggee te nga toog xaar ma ba alxamis ndax njiit mi Abdou Diouf war na fee dikk hmm. bu dikkee nga wax ko alxamis ci Abdou Diouf dikk toog ci wetam mu ne ko waxal la nga waxoon mu wax lépp mu àgg mu déggaltoon ko Abdou ne ko bisimilah li la wax loo laa bëgg nga jàppale ko ci Abdou ni ko waaw bu ñu demee di rek mu ñëw bureau ba présidence primature boobu hmm. Abdou mooy premier ministre hmm. mu ñëw fekk ma fa ma ma taxaw mu ni kon baax na dénk ko mu ne ko da dem topp ko fekk boobu Abdou fi mu toog la mais mënul ko mënut a gànt. Mhm. sax fi mu toog bi mu ñëwee nag alaaji Tamsir bu dikk fekk si ko ci primature bi dikk di yaakaar mu ñëw mu ne ko xool naa ko xool mais mënuma ko mu ne ah li nga waxoon seetu sëñ Abdoulaye waaw mënuma ko de mu daal di génn demaat ci sëñ Abdou Aziz Dabaax wax ko sëñ Abdou Aziz Dabaax ne ko ah, baax loolu la wax bu ci bu la wax fekk nan demaat ba sëñ Abdoulaye mu ko wax la. man mhm. demaatee ba sëñ Abdoulaye wax ko wax ji mu ne Abdou loolu la wax mu ne waaw mu ne na sëñ Moustapha Bassirou Hmm, ni maa ngi nii ni ko kaay nga demal ma boo demee nga nga teggi ko dem ca Senghor mu jiite réew mi nee ko ndongo lii dafa am lu mu yaakaar te wax na ba noppi te te wax naa ko sama kàddu te nii laa ko bëggee nag ko def mu daal ni ko baax na Mbàkke mu ne ko nag bu la ko defalee ba noppi na nga jaar nag ci moom moom Abdou moom ma waxoon fii lii ma deñ mhm. nee ko nag bis bu ñëwatee foofu ci Touba te ñëw ga fekkul muy protocole lu ñu ko sant mu ñëw fa dana xam ni foofu am na borom waaw ndax man duma wax ak kenn muy teggi sama wax di ko oh. euh, mu daal li ñëw bi mu ñëwee dem seeti Senghor bu mu ñëwee wax ko ko jox ko leetu suñu Abdoulaye bi li mu ko wax ci kooku Senghor daal di gaaw bind lépp ne autorisé naa ko ni ko ne dangay jaar primature premier ministre da koy signé <laughs> ci sama ndigal ñu jox ko Abdou mu xaw ci am kersa daal koy signé waaye bi mu ko signé nag li taxoon moom it muy mu bañ def ko daa am ay mbokkam yoo xam ñoo moom Sodefitex ñoom moomoon Sodefitex à l'époque ndax ñoom ñoo doon génne tissu beeg yooyu mm-hmm. te booba jamono fekk na ñoom Mansour Bouna di ay mbokkam ay cousin lañu. léegi mu doon bañ xam naa lu leen daaneel ndax bu ñu lay jubaleeti si moo taxoon defu ko. waaye sëñ ko baax na damal ba ci moom nga ko bu fi ñëwatee ci lu dul ndigalu président yónni ko dina xam ne fii moom am na am na borom. Mhm. waaye Abdou dafa jaaraat ci suuf dem ba ca mbokkam jox alaaji ndaxte gay nga dëkk fële ca dëkk bu ñuy wax ndànd fa la jaaraat mu defaat intermédiation yi jaar ci sëñ Abdoulaat ñaan ko tuub mu ni baax na jéggal nañ ko. Mhm. waaye damaa nekk nit koo xam ni ngay njiitum réew ngay buur ngay baadoola sama dëgg gii rek lay àndeeg nit ku ko teggi mm. ku nekk ma dal ci sa kaw mm. Mm. mooy pour dëggal lii nga wax léegi ci moom amul woon fu mu mën a doon di la koy wax sëñ Cheikh sëñ Cheikh Thiolle danaa wax ne sëñ Abdou nee na moom bal bi mu ciy soxal weñ moom la ciy soxal gaynde la mel xàmmee wu mag xàmmee wu ci ndaw <laughs> ku mu ko war a dóor rek koy dóor koy dóor waaw kon leader yu mel noonu suñ ko amee dañ leen di war a jàpp di leen wane. Mhm. ku mën a taxaw ak président wax ko dëgg da xam nga suñu tubaab day wax lu am solo. waaw lu moom sax Sëñ Abdou Lahad da ko daan faral di fàttali. da daan wax naan nit ki day. Mhm. lu mu lu mu lu mu lu mu wax ci ay kàcc ba jot ci. Mhm. amaana moos bu ko waxoon dëgg yi dana ci jot. qualité yooyu lañu war a delloo siwaat dëgg la. alhamdulilahi rabbil alamin sëñ am ni nga ko waxee. mbooleem luñ gisoon. ci sëñ Ablaat ci doxin ci qualité ci dogu ci Pastef ci taalibe lépp mi ngi ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mm. Mm. Mm. yaakaar gi ak wóolu gi sëñ Touba ak dogu gi gis nañ ko ci moom lii na gi tamit ci yokku dëkk bi daa mel si sëñ Bassirou si ma salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum waaw man a sëñ Ibrahima Ndiaye ma ne waaw da nga may kon ma dem ci ci ma dem jënd crédit te ñëw wala. waaw bisimilah waaw. waaw <laughs> sëñ Ibrahima ndeysaan. <laughs> waaw day dem jëli kayit yi sëñ Ibrahima Ndiaye. waaw waaw jërëjëf kon euh, sëñ Dame sëñ Mbacke ñu jotaaleel ñu sëñ Basirou Touré euh, moom mooy nekk dernier appel bi xam naa ñu kilifa gi bu egsee rek ñu daal di tëj jotaay bi waaw. dinaa la. waaw nettali benn anecdote ci xam gim xam réew mi. ak hmm. territoire ak yi tamit ñeme gi wax dëgg. Hmm. dafa am bis Jean Collin ñëw ci moom ñu ko Touba contrebande bi def fi bare ak forot beeg affaire yu mel noonu ñu bëggoon daal moom mu wax si pour loolu mën a taxaw ndax forot day daaneel économie réew nangam nanga wax a wax léegi nag suñu laa tàng ca daan ko man mi ngay wax di ma wax luy daaneel réew mi ak lu koy doxal man réew mii maak mala yi ak garab yi ñoo ci yem ni ko réew mi de bu doon tàkk dañ may beqee ci biir sawara si waaye aw ma feneen fu ma jëm bokk maag yéen ñi nga xamante ni bu réew mi naree tàkk walis bi ngeen di gàddu pour génn réew mi du mat fukki kilo waaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ Basiru ah sëriñ am ngi lay ziyaare bu baax tey jëw lu guddee ngi delloo waaw tey de xam naa wax ci sa bopp du yomb waaye eh, ginnaaw bu ñu la joxee wàcc waay wi nga am ak taxawaay bi nga am ci yoon weeg lislaam waa waaye. Mhm. sëñ am. Mbacke Balla Touré. ab murit buy wax ci sëriñam moom dana yomb. waaw dëgg la waaw kay moom kon kon kon nag woyof na tooy. <laughs> waaw maa ngi nuyu uh, sëriñ Abdoulaye Diop bi Chérif. wallaay uh, di nuyu uh, ñi ne seqal ñëpp. wallaay ndeysaan. di nuyu sëñ Jibril Ndaw. wallaay wallaay sëñ Ibrahima Fall ndeysaan. di am mbégte lool ci jotaay bi. wallaay ndeysaan. damaa xamul nag fan ngaa war a duggee. wala <laughs> wala yëpp laxaat ñu sëñ Tuubaa annoncé ci ay mbindam. waaw di wax ak gari àddina mhm. ci xasiid ak xawaalu xaamu balsatin mhm. wala ci xasiid ak wa innaka la sooxal Qur'an. Mhm. wala ci xasiid ak euh, euh, fukki bi sa xasaraat bi nga xam ne. sëñ Tuubaa daa waxoon bi su tuddam nañ ko jàng ci noppam. wala lay def ba taxin li mu gën a àddina. Mm-hmm. Euh, euh, guddi googu mu gën a àddina sëñ Tuubaa dafa xasida mm-hmm. wala si yëpp laxaat. ñi patriote moom la ñu war a waxtaane wala si laxaat bu ñu saa foo ci làmb rek fa la ci neex. wala wala wala si yëpp laxaat ñu wéetal yàlla. Mm-hmm. fa la neex jaaral. si yëpp laxaat ñu waxoon ne ci 1969. du ma doon ku dul jaamu yàlla duma ma jaamu dul yàlla. waaw si laxaat boobu. nga xam ne euh, nit loolu amoon relation humaine mhm. neewoon na bëgg ak wóolu mhm. ak ragal ak yaakaar bu mhm. ma ko def turul yàlla fas naa sama yaakaar yi bàyyi euh, ndax ba may sàkkal sama tur yii daa am mag yu wóolu di leen wax ne di leen wax ne da ngeen ma ko ñaanal ko yaakaar xoolal sa yëpp laab ak gëmam yàlla am am na doomam ju feebar mm-hmm. mu jox ko sëriñ sàmm ñu indi ko Dakar bi ko faj mm-hmm. feebar ba métti lool ba sëñ sàmm ñëw fekk sëñ Blaat dalal wax ko ko sëñ Blaat ko kon feebar ba àgg na foofu laaj sëñ sàmm ne ko weesu na foofu mm-hmm. kon de xanaa nga defal ko ñaam rek sëñ Blaat yëkkati bi yëkkati bital jox sëñ Blaat mu tàmbalee ñaam def ci yàgg mu sànni bital dama ndax Blaat de ku ma fekk day xëccoog yàlla du ma gor du ma jullit kooku mooy Euh, ki wéetal yàlla bi mm-hmm. xoola am na xasiida gu suñ tubaa tënkee bi sawaali ame batiseen dañ koo seetlu gane si yëpp laxat ci mille trois cent trente deux moom la si yëpp laxat di suñ tubaa di annoté mm-hmm. ci amul benn waret mm-hmm. tarjumaan bi dane basharani llahu tabaraka wa taala bi sawaali ame batiseen gis nga baax basara li génne da ngay dellu ci alquran fa naadathu malaikatu wa huwa qaa'imun yusalli fil mihraabi anna allaha yubashiruka bi Yahya waaw ak it fa basharnaahu bi ghulaamin haliim kon gis nga baatu basir googu mm-hmm. day firi bu ñu la dégalee gone bu ñu la mayee gone baatu basir googu gisuñ tuba indi ne basari la taala mooy yàlla may na ma ma am doom yoo xam ne ci Korité atum 1332 la gane àdduna wér na wér na te Korité googu ci la fi Abdul Ahad gane àdduna dëgg la am na ci bayit yoo xam ne sax sëñ Tuubaa fàttali ci suuf si iblaat ci biir xasida gi mooy àllamte li bi xul huwa allah ahad bi annaka allati kafaani man bihaat abdu ahad mbàkke gi mi ngi ci kon kii mooy mhm. xoolal bi mu toogee xalifa di sëñ Tuubaa dafa am ay pël yu ruur toolam mhm. taalibe yi dogga yi jàpp ñu am tuuti histoire ñu jàpp pël yi tëj ko tëj leen Louga Sëñ Lahad bi mu ko yëgee daa tudd yàlla daal ne man fi ma toog di sëñ Tuubaa du ma fi tooñ du ma fay tooñ wax ne dañ ñu mu yëkkati saako ceeb jox leen yëkkati juróomi junni jox am na at moom am na at moom dañoo ñëw xool ci toolu gerteem mu naat lool mhm. ñu ne ko yow Sëñ Lahad nawetu bii mhm. sa gerte cent dix lañ koy jënde mu laaj baykat yi ci des lu ñuy jënde seen gerte ñu ne ko quatre-vingt-dix francs mu ne leen man maa njaboote réew yëpp yépp loolu du fi amee benn sama gerte dañ ko jë nañ ko nañ ko jëndee li ñuy jëndee gerte baykat yi wala li ngeen nar a jëndee sama gerte ngeen jëndee ko gerte baykat yi ak moom war a ñëw ci waxtaan ba gerte gi ñu yóbbu ko prix cent cent francs kooku mooy Cheikh Abdou Lahad nga xam ne nitu jëf la woon nit ko ragal yàlla la woon nit ko maandu la woon nit koo xam ne lépp lu mu am jox na ko sëñ Tuubaa daraan wax de nii ma xamee sëñ Tuubaa su ma ko xamee woon sama ndaw du ma jàng du ma def dara damay liggéeyal sëñ Tuubaa rek sëñ Lahat adib la woon mooy poète la woon defar na xasit bu mu tënkee ah tey si dal yow ma bi leen xitaaxi kulli yéen yaa xadimal mu am na xasit am na bayit sëñ Tuubaa wu mu jël mooy yaquudu ni li kasratil xasaayidi kaw na ko indi mu kasir fawaayidi bayit woo sëñ Tuubaa fay ne yonent bi li ma poussé ci may defar xasida yu bëri jëmale ko ci yow mooy da ngaa bëri njariñ ci man te la ak ab sëñ defar ci ak xasida di ci tagg moo tàmbalee yaa man bi dóori jamaa bi na sa karrabu wa bi xidmatin bi janaabihi na taallamu wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli defar ci ak xasida di ci tànn Sëñ Tuubaa ak ala balli soo anil fasaa bi ada awwati bi ani raditu an hubbihi jammi ca kooku mooy Cheikh Laat mhm. moo toog 1968 mhm. daal di ne maa ngi ñaan di dogu ci Sëñ Tuubaa fi ma toog di sëñ di Sëñ Tuubaa ba keroog ma fi jógee sama rakk yi war a wutu moo moo fi kenn jiitu moo tax Cheikh Laat bi mu toogee 1968 ba 1989 doomi sëñ Tuubaa ju góor wàcc fi liggéey ngir moo ko garanti mm. mooy ki nga xamee ne keroog bi mu tiimee soxna mu moom mi mu sëñ Tuubaa mu wàcc fi liggéey mu ne maa ngi ñaan sëñ Tuubaa li def sama dund yàlla bu ma tiimee si doomi sëñ Tuubaa sëñ am kooku mooy sëñ Laat xam nga lu mu defaloon nag réew mi warit na koo wax sëñ am dëgg la mooy STIB mm-hmm. amoon na jafe-jafe mm-hmm. bañ na doon ko tëj ci jamonoy Abdou Diouf mm-hmm. liggéeykat yi dajaloo ñëw ci ab daal wax ko ko. mu waxtaan ci Abdou Diouf Abdou Diouf xamal ko ne ko jafe-jafe xayal laab. ceeb laa yëkkati milliard jox ko ngir suqali SAID. Mhm. muy alal joo xam dafa joxe ngir réew mi rek. Mhm. moo tax en 1975 su ma juumul. Mhm. bi ñuy privatiser SAID. dégg naa ci ci DFM ñu doon def débat di laaj ba xam ndax xaalis boobu dañu ko delloo njaboot ci Iblaas am déet. kon kooku mooy Cheikh Abdoulaye Sy Sy naa li ñëpp bokk dañ ci jël lu yem rek. kon naa ngi yem foofu. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. sëñ Jibril euh, a ñàkk a dugg. Ah, waaye li tax yan bi woyof mooy lim ne. taalibe buy wax ci sëriñam mën naa woyof. Ah, la mm-hmm. loolu day woyof. dëgg la euh, yàlla na ko yàlla fayal gis nga ah. sëñ Jibril ànd nañ dem garag maak yow. Mm-hmm. ñu lay nettali ci sëñ Blaat ndax dafa daan ñëw. foofee la yëgee doonam ak doonam sëñ mm-hmm. Touba. sëñ Ibrahima fa la jógee ñëw Touba ndaxte daa war a doon sëñ Touba garak la jógee garak otoom fiir na fi nit ñu ne ko noppalu na mu ne man Abdoulaye du ma gana ji dëkk boo xam ne nii bakkanam baaba gisee lu tudd dama fay bàyyi bakkan baaba gisee lu tudd barke sëñ Tuubaa yooyu yëpp maanaam def na ko ci ci ay ay ay am na koo xam ne maa ngi maa ngi ziyaare baax nag sama sama sëriñ sëriñ aboom Cheikh Abdoulahat maa ngi koy wax léegi di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu ci wér ànd nañ fa man ak yow soxna maam ami sëriñ Chouaï bu mi may yónnee léegi ba taaxal eh, di ma wax ne kontaan nañ ndax ku ne xam na diggante sëriñ Chouaï bu ak Cheikh Abdoulahat mm, benn lan woon eh, ak sëriñ Saliou ñu ngi koy ziyaare sëriñ Chouaï bu mm-hmm. njabootu sëriñ Chouaï bu mm-hmm. képp ku ci am aajo boo xam ni mm-hmm. aajo bi daa jëm ci àdduna rikk waay bu ko wax sëriñ Chouaï bu ndax sama rakk jooju noppam yàlla rek la bëgg a dégg oh. ku ci am aajo bi àdduna maay seen baay ñëw leen ma def. Mhm. ca loolu la bëggoon sëñ jërëjëf maa ngi maa ngi ziare baax sëriñ jaxate Saliou Diakhaté euh, tubaarkàlla euh, ñu ngi koy nuyu baax a baax ak soxna Ndeye Mbacke euh, rakk la ci ba Bassirou Touré mii nga xam ne moo génn léegi ñu ngi koy nuyu ci turu soxna Mame Faty Gueye ak soxna ndey Mbacke moom soxna Tahiratu Mbacke di nuyu baax a baax Serigne Saliou Diakhaté Eh, tubaarkalla di leen ñaanal yàlla ñoom tamit yàlla may leen ñu yeggale ak soxna maam jaara Mbàkke sëñ Cheikh Sylla ca Gàmbi sëñ Cheikh Sylla fan yi Touba taalibe sëñ Daam Abdourahmane Lo bu bëgg sëñ Fall wallaay wallaay doom yu soxna doom yu am sax ñu jigéen wallaay ko tudde sëñ Fall këram otoom lépp wallaay sama soppe la ku baax ku bëgg yoon yi te ciy jëf wallaay wallaay yàlla sàmm sëñ Cheikh Sylla sëpp wallaay wallaay wallaay sëñ Jibril soxna hmm. ki ne Mbàkkeem Cheikh Abdou Lahad sunu yaay sunu bàjjan defaral nu xéewal yu am solo hmm. mu ngi ci yoon wi muy ñëw ma bëgg nu ñaanal ko bu baax ndax li ko sëñ Abdou Lahad yegsi na kon yegsi na sëñ ñaay fay dem na jëli ko ba ñëw ndax ah, moom euh, tey gis <laughs> naa muy def caméra bi noo xam ne sëñ Mansour sax euh, tey moom moo teg fauteuil sonn ñëw waaye ñaay ba mu mosee dara ba léegi ba <laughs> réer yi ñëwee léegi xamatul nu muy téye ah. caméra bi euh, sëñ Abdou Karim it a gayu dëkkul tey nag maa leen di sant waaw waaw moom sëñ am laat waaw nga sëñ am waaw damay daaneel rek ci Jean Collin waaw bi mu nee sëñ am laat bi waaw mhm. sëñ am dañu ko loolu de damaa bëgg tey jii balaa nga fee jóge bu doon ab garab la gu sax ci Tuubaa ma daggalu ko léegi balaa ngay ñëw bu doon dafay jóge ci asamaan si di wàcc balaa ngay ñëw ñu baas ko léegi fatt ko balaa nga fee jóge waaye nag damaa jàpp ni forot bi ñuy wax ci Tuubaa du suñu responsabilité ñun waa Touba responsabilité yéen la waa état. dëgg la ndax damaa natt frontière yi fenn fu nekk diggam ak Touba lu fi forot di jaare mooy ci wetu gànnaar gi wala ci wetu gàmbi gi te benn bu nekk diggam ak Touba gën gaa néew na ñaar téeméeri kilomètre. mu ne nag gannaaw sàggan ngeen xoole ko ba mu dox ba dugg ci biir Touba ngeen ñëw fii ni Touba de daaneel économie bi nga gis ni responsabilité bi mu amoon ak ak ak ak ak ak dog bi ak yi tamit dëgg gi fu mu ko fekk mu wax ko waaw xoolal xoolal xoolal frontière yi yi forot mën a duggee ci réew mi moom mu ni ko wetu gànnaar gi la wala wala wala wala wetu Gàmbi hmm. te fenn fu ne boo ko nattee dëggam ak Touba gën ngaa néew mat na ñaar téeméeri kilomètre dëgg la nee na mu romb leen loolu lépp ñëw ba fii ngeen ñëw fii ci Touba naan compte baran bande beeg fraude bi. dëgg dëgg. <laughs> ok dëgg. Mhm. nga nga booba ma koy yo woo ci patriotisme. waaw cest à que Sëñ Ablaye dafa nekkoon patriote. waaw patriote la woon. patriote bëggoon réew mi dégg nga léegi li sëñ Bassirou Touré wax. ku àttan a jël un milliard def ko ci ab société. Mhm. boo xamante ne laaj te naka jekk nag il faut que ñu koy fàttali nit ñi. waaw njabootu sëñ Tuubaa naka jekk noonu la ñuy doxee. dëgg la. maam Thierno ba muy ba muy ba muy jël ba muy jël xaalis bi maanaam dundam gii di ko jox tubaab yi. waaw 60 tonnes yooya. waaw ba ba ba nëgëni nekkutoon di leen ko laaj da koo def par patriotisme. dëgg la sëñ tubaab mi ñu naan dafay collaborer ak tubaab yi ba mu yëkkatee ba mu yëkkatee 500000 francs ngurdu yooyu di ko di ko jox tubaab yi c'était pour relever l'économie. mais tamit da fekk. waaw tubaab yee ko sàkku. daa fekk tubaab yi tamit sàkku ñoom ñoo ko doon sàkku bëgg ko di ko ñaan. te moom ba mu joxee loola. ñoom tubaab ya ña ca gën a kawe ah. ci seen ci seen ah, ci seen i président joxe wuñu toll kon naka jekk nag gis nga am réew du caaginu sëriñ si dañ fee nekk tubaab parce que tubaab yi dañoo ñëw fekk suñu suñum réew yor réew mi duñ fi nekk nag di di xëqanteek ñoom ba yàq réew mi dëgg la lu ñu gis ne lii bu ñu ko defee dina tax réew mi économie bi mën a am ñu ñu def ko loolu nag man jàpp ma ne collaboration la waaye damaa jàpp ne sauver sam réew la waaw ndax itamit franc français bi wala franc Poincaré bi franc Ngurdu bi fi sëriñ bi fekkoon moom moom moom moom la réew mi doon doon dundee moom la réew mi doon sukkandikoo lu bare lu ñu doon dundee ci réew mi France la doon jóge hmm. sëñ Mool Moussa bi muy tabax jumaa ji bañ déclaré guerre bi hmm. liggéey ba taxaw dani hmm. da du jaadu nit ngay liggéey ak moom ba mu nekk ci tolof tolof nga mën a taxaw waaye fii jumaa ji suuf su ko àggalee ngi fi ligg maanaam ciment baa ngi fi lépp waaye nag gannaaw ñoom ñoo ñu koy liggéeyal te seen réew a ngay tàkk ñanga nga say fitna. Hmm. du jaadu ñu ñuy continuer liggéey bi. dëgg la kon hmm. lempo yu ñuy wax. Hmm. suñ tubaab bi mu fi nekkee. taalibe yi mosuñu ko nangoo fay. dañuy yëkkati àddiya du ko jox lempo ngi tàmbali ci sëñ Mourou Moussa. dëgg la la. bi sëñ Maodo Moussa ñëwee tubaab yi ñoo wax ak moom ni ko ni ko ni ko kat réew mi économie bi day daanu parce que murit duñ fay lempo hmm. ci la sëñ Maodo Moussa woo woo gouverneur bi ni ko bàyyil ba bis sàngam damay woote màggal su ma ñëwee nga toog sama wet dinaa ko wax te bu ma ko waxee taalib yi daañu ko fay daañu ko fay hmm. waaw keroog la cérémonie officielle am ci yoonu murit dëgg la gouverneur ñëw toog sëñ sëñ sëñ sëñ Maodo Moussa wax li muy wax daal di jox ndigal taalibe yi keroog wax nañ ne at moomu lañ jot ci lemp ba ba bañ doone tuwaab yi na nekk ci réew mi léegi mosuñu ko am hmm. kon nag lempo yu ñuy fay teguñu ko ci ci collaborer wala dimbali tubaab yi waaye dañ koo def ci di jàppale réew mi hmm. kon loolu il faut que tamit nit ñi bu ñuy wax ci yoonu murit hmm. ñu ñu ñu ñuy fàttaliku aspect patriotique bi nga ah. xamante ne naka jëkk moom la suñ tubaab mosul lépp lu mu ànd ak ñoom ci lu jëm ci wàllu patriotisme ak luy développé réew mi ànd na ci ak ñoom ah. lépp loo xamante nag day màbb pas-pas di màbb diine mos dakoo mos di lànk ba tey ji ah. njabootam it loolu la ñu continuer di ko loolu mooy li nga xamante ni dafay mat di leeral te foofu yi la si ñëblaat newoon foofu foofu la sëñ Fall nekk foofu la njaboot sëñ Tuubaa yëpp nekk ba ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mi foofu la nekk li muy négocier ak ñoom ak a wax ak ñoom lépp saa su dëgg jotee dana leen ko wax saa bu ñu fi laalee lenn loo xamante ne bokkut ak dina dana taxaw lànk ah réew nag ñoom kilifa yi Tuubaa yi dañoo gëm dogalu suñu borom dëgg la ndax dañuy wax naan kilifa ak njiitu réew suñu borom ma koy tànn te képp koo xamante ne yaa ngi juuyoog moom yaa ngi juuyoog lu suñ borom dogal te ñoom kat duñu def mukk lu suñ lu suñ borom do di juuyoog ndogal lu suñ borom looloo waral lii di nirooku collaboration du dara lu nangu ndigal lu suñ borom ndax suñu borom bu fi sampee président nga war koo nangu ngir nangu li suñ borom dogal mm-hmm. loolu dong la dëgg la jërëjëf jërëjëf euh, sëñ waaw euh, ma bàyyi la tey euh, tey boo ma doon jox benn message ci si Abdou Lahad mm-hmm. boo xam ne ni di nga ndaw ñi maa leen ko yóbbante mm-hmm. ndax dama laa wax léegi ne la marqué na marqué na empreinte am mhm. euh, maa ngi jot nuyoo sëti Sëriñ Abdou Lahad yëpp mhm. ci turu Serigne Cheikhouna moom mhm. Serigne Amsatou mu Cheikh Abdou Lahad sëñ Galas Mbacke moom sëñ Abdou Lahad ambassadeur moom soxna Maam Fati sëñ Abdou Lahad Mbacke sëñ Mourtada am Cheikh Abdou Lahad ñëpp noo ngi leen di siyaare bu baax leen ñaanal yàlla defal leen wér euh, di nuyu Serigne Cheikh Bamba sëñ Khadim Moustapha sëñ Khadim Moustapha maa ngi koy siyaare bu baax moom Cheikh Abdou Lahad sëñ Cheikh Mor Fall mu soxna su gaawaan moom Cheikh Abdou Lahad maa ngi koy siyaare sëñ Amdi Fall moom soxna maami moom Cheikh Abdou Lahad maa ngi koy ziare baax ak soxna maami eh, di leen ñaanal yàlla defal leen wér waaye sunu bàjjan sunu yaay soxna eh, soxna soxna soxna may Mbàkke mu Cheikh Abdou Lahad ku ne xam na taxawaay bi mi ngi topp jataay bi waxtu guddi wu ne Sëñ Abdou Lahad dij na ko ndab nee na ma bari na jataay yoo xam daanaa ko fekke damaa toog na li waaye koo xam ne nii eh, taxawaayam ci sunu jëm barke Sëñ Tuubaa bëgg Sëñ Abdou Lahad ñu ngi koy ñaanal bu baax billaahi ma jógee Màkka dafa taal otom ñëw ba kër ga ne ma ne ma bu dul dara du dara du dara di bokk gi ndax man sama maam amuloon ku dul Cheikh Abdou hmm. léppam Cheikh hmm. Abdou Lahad ko defal moo tax euh, ñu ngi koy ñaanal baax soxna may mënatu ak sëñ Amsatu Jaxate ak sëñ Abdou Lahad Jaxate wala garab googu nga doon tudd rek mu ngi fay taxawal sëñ Abdou Lahad taxawaay taxawaay bu am ko wér ak gudd fan ndax euh, bi mu taxaw Cheikh Abdou Lahad ak hmm. yéene ji mu am ci liggéeyal sëñ Abdou Lahad am na solo lool ñu ngi koy ñaanal ba palaato bi ñu jàppee ko ba néega ni noppaluwul ci téléphone bi comme xalaat ne sa waajur amoon na kii ak say blaat yaatal na liggéey bi ci ci sa wet euh, ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax di ko ñaan yàlla defal ko wér euh, sëñ Blaat ban mes sëñ sëñ Blaay ban message ngay joxe tey xam nga xam nga sëñ Abdul Ahad dafa boole woon sëñ Xaamidun di xakim mm-hmm. waaw moom xakim la woon xakim ni Seydina euh, Luqmaan mel ba sunu borom tudde ko saar ci alquran mm-hmm. nga xam ne lu mu la wax rek day mën a tënk ay époque waxuma la tënk benn fan de ay époque mën nañ cee jariñu gis nga wax jii ñu la wan léegi mu wax ni bis bu la raw ci sa sa dund hmm. xamal ni dem na dootul delsi hmm. weer wu dem dem na dootul delsi hmm. saa su dem dem na dootul delsi kon bëggul kenn nga yaafus toog ba benn saa di dem wala wenn bis di dem wala wenn weer di dem te yóbbaale lu lu baax loo xam ne ëllëg dina la jariñ ci fa ngay fekke sa borom kon moom lu mu wax rek xekk ma ju la ciy denc daana wax tam loo xam ndaw ñi war nañ ko dund dañu yaree di ko yaree di képp ku ma may kaasu kafe soo yar woon di nga am dogu mburu moo ci boole waaw oh. ko xale yi bàyyi xel nee na yareedu képp ku yareedu ko ba am ci ab kaasu kafe soo yar woon di nga amaale kon dogu mburu woo ca boole euh, kon nag yar dafa am solo lool waaw maaleykum salaam wa rahmatullah waaw bisimilah waaw bisimilah kooku sëñ sëñ bi Ndiaye waaw bisimilah sëñ Ibrahima bisimilah ñu ngi lay dégg sëriñ Abdallah na sow fa gudd Mbàkke nga wér sëñ Abdou Ibrahima Ndiaye maam jaara te sax ci jàmm ku yiw ak jaamu yàlla bu wér lu bay jaxate koo xool farlul tewey yàlla ngay for bu sedd sa xol te mucc jiw ayakum ndox sax ci jëm la la war te mucc jiw ayakum ndox sax ci jëf la la war ci Abdoulaat toppal sama Moustapha bul génn yow ndigalam ngir mag mu mat mag la mat ñépp sëriñ te wor jëfal te bul faale nit bul geesu nit ci sa jëf na yàlla tax ngay jëf ak bi ak kala jur kalay mën a dara moo jar def la fa bàyyi lëf da kooku moo di rabbul arsi yàlla na nu yor mm. Cheikh Abdoulaye yar bii nga yor ko bii rek bi moo di sa kee moo gën ci yow nit ñu baax ak kër yu baax ak ki jur sa bàyyi gën képp nit sa bàyyi gën ñépp ab yar ndax dalay jox a jox ab yar ma ngay ama ab yar ca doo mo si yar su yëkkatib yar di teg nit waaye moo gënu nit ñooy seen nitum yara kay jànnee ka yeew a ka lor loo gis ci am sotu moom yi cib yara jëfu yiw xamal ne moo ko ci def ji wax ku nekk la bir mhm. nijaayi ndam yi nga loo gis ñu am ko ci ndam xamal ne moo ko waral ak cant war na gosar Cheikh Abdoulaye ak cant war na ci ñoom ak yow bu rëy bu rafet bu day ne pàjjo bu dul yem fenn mu far ab doo am satu ak mbàccee ki balaasan fenn jaay a ngi ñoo di sàll kenn ci par ci xadd la reggaay jàmbur ku koy doyloo ba lépp la xam buurub aras ki far ak bëri yëpp yàlla na noo far ci xadd la jollil ca bul fexee jëm suufa kay waxa dal ci jolli ngay waare ak xiibon ci ngay nu tëmbër yal na ngay wii xëy jëm kaw di dolli ko ndam ba jiitu waa kaw donangoo su fekk wi amul tur Cheikh Abdoulaat yow sa bopp yal na la dal loo bëgg yal na nga am looli te ngëpp ko bu wér asalaamaaleykum sëñ am ñoo ngi leen di jaar jërëjëf sëñ Ibrahima di leen bala ak bu baax baax yow moom wuyu ma waaw amel naa la mbubb bu la neexee suba nga jël si ko. ceeb tubaarkàlla. li nga wax ci sëy laata tax nag. waaw dëgg la dëgg dama am sama benn doomi nijaay joo xam sama sëriñ la doomi sëñ Blaat la sañ Galas. waaw yenn saa yi dama ko naan maa ngi lay siyaare ngir sëñ Blaat <laughs> mu ree <laughs> dama koy tooñ ndeysaan sama doomi nijaay ma di ko sànni xeer. ndeysaan ndeysaan wallaay sëñ Ibrahima kontaan nañ loolu jërëjëf. waaw sëñ ndekkaat boobu sëñ Baye Jaxate moo ko dénkoon sëñ Abdoulaye wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay moom la sëñ Bisiri di wax jërëjëf jërëjëf soxna May Mënatu Mbàkke bintu Cheikh Abdoul Ahad euh, sëñ Abdoulaye nee na mi ngi lay nuyu mi ngi lay ziar xam naa sëñ daama nga koy jéem a kii sax su ko defee ma bàyyi la fi nga fi nga fi nga nekkoon rek nga yeggale su ko defee ñu mën a yëkkati ñu ngi koy ziar bu baax mhm. di ñaanal nag sëñ Siidi mhm. mu yàgg fi loolu téwéta ñaanal la wallaay jàmbaar yi sëñ Abdoulaye soxna Aram Siñaan fii ci kii taalibu sëñ Abdoulaye soxna Aram Siñaan ak soxna euh, soxna say bata ak soxna Zay Bata Cheikh Abdou Lahat moom sëñ Abdou Lahat maam Diouf ñoom nga xam ne sëñ waaw <laughs> soxna maam Diouf di kontaan lool soxna Aram Siñaan mhm. waaw soxna Aram Siñaan ñu ngi koy ziar bu baax mhm, mhm. di nuyu njaboot sëñ Abdou yëpp waaye di nuyu sëñ Abdou Lahat Ndiaye mi ñuy defar kuno moom laa doon bëgg moom dañ ko tudde sëñ Abdou Lahat waaw muy jàmbaar rek di taalibi sëñ Abdou Lahad son yi mhm. tey rek ci bëccëg jokkoo nañu mu lay laaj démb rek jokkoo nañu da koy dund sama pono yu bees yi yëpp la néew na ma xoolal nu mu doon ba doon sax mu changé ko man damaa gis ni sëñ Abdou Lahad ñu ko tudd ñëpp danoo am jom mm-hmm. nangoo liggéey tabe am fulla mm-hmm. gëm sëñ ko faaw yor jikko yooyu melo yooyu jël ko seen boo lu boo di boo tegee sëñ bi ñu wan la <laughs> ginnaaw farlu ci am waaw waaw ndax sëñ Abdou Lahad daal résumé ko mooy le véridique da nga koy dégg. mooy mhm. lan nit ku dëggu ki mhm. léppam dëgg la. Mhm. da ngay dégg ñàkk a caaxaan. mooy képp kuy caaxaan siqoog moom dara. Ah. da ngay dégg fit wu rëy. li mu war a wax. mindeef mënu koo teree wax li mu war a wax. da ko yëg yàlla. da ngay fekk ni jëmm la ju xam teraanga. dégg ngeen sëñ Moustapha Salih doomam ju baax ci. wax na ni. waxoon na ko ni teraangaa ngi doore ci ndoxum raxasu bi ngay jox sa gan. na bari lool ba yaakaaram dëgër mu xam lu bari nga koy bëgg a bernde mu xam teraangaay sëñ Abdou Lahad tudd sëñ Abdou Lahad mooy tudd xaritu alquran mu doon ko ci sëñ Touba. nga xam ne aaya bu ne da koy ràbbale ni la aaya sàngam boo ko déggee ci Ankabóot bul jàpp mu kin liyee ko tax woon a jug da ngay dem ca nam li suñu borom waxoon na ko ca saar sàngam moo déggoon alquran ba bu koy wax ñi nga xam ni euh, mu fassiroon ni doon firi alquran dañuy jàngaat seeni xalima tudd sëñ Abdou Lahad mooy tudd ko am alaaxa bu rafet ak diine islam yëpp këru diine yëpp la am nañ loon am lente ju rafet moom sëñ Abdul Ahad tudd sëñ Abdul Ahad mooy tudd ku bëgg njabootu sëñ Touba bi ku ne ma def la ab sëriñ ngir sëriñ Touba xoolal diggam ak sëñ Saalix nga xam ni fee sëñ Saaliw di këram fee sëñ Saaliw dëkk këram gee ca Touba sëñ Abdoulahat moo mujj yónnee ñu defar foofa ndax nee na nii mu dëddoo àdduna ko ci topp ëllëg doo xam lu nuy wax ci kanam sëñ Tuubaa faw nu taxawu ko defaral ko këram ji te bi mu koy taxawu bàyyi seex Fall maam sa yàlla na yàlla dolli ko leer nga xam sëñ Abdoulahat a ko yar moo ma dettali nee na guddi googu bi ñu àndeek alaaji Ibrahima Ñang bu bu mbuur bàyyi ñoom dabbus ñaa ak ñoom Demba Sàll ñaa seen bàyyi ak ñoom Maysa Ñang nee na bi ñu ñëwee bi muy wax ak sëñ Saliou nekk sëñ Abdoulahat dégg na ko ba mu naan xanaa Mbàkke dangaa bëgg sëñ Saliou ne ko nga Sall laa bëgg nañu xanaa dañuy bàyyi ba jamono gën a soppi ko rek léegi sëñ Abdoulaye bañ jénnee dana ko naa la neexal yow mi fexe ba ma dégg ni sëñ Saliou bëgg na lii ca la yónnee ñu yóbbu béton béeg lépp defar këram googu diggam ak sëñ Saliou noonu la demee dégg naa ci sëñ Abdou Samad mu sëriñ son yi mu ni soxna may mu baax ni ngay tudd te sëñ Cheikh Jaxate yor ko sëñ Saliou fa la daan ñëw di watu mu ngi lay yónnee nuyoo waaw mu ngi yónnee nuyoo fa la daan ñëw na bis sëñ Saliou watu fa ga nga xam ni moom la ñu waajaloon sëñ Abdou Lahad mii ndabu añam ceeb buy njëkk a noppi ñu defoon ko ci ndab nga xam mooy añam bi mu war a xéewloo sëñ saaliwu njëkk fa soxna si nañ ko jox sëñ saaliwu comme euh, fekk na ko fi mu barkelu ñu xaar yeneen ndab yóbbu ko sëñ Abdou Lahad wala bu ci barkeloo ba noppi yóbbu ko sëñ Abdou Lahad noonu mm-hmm. sëñ saaliwu barkelu ci ñetti tib tëjaat ko ñu defar ko yóbbul ko sëñ euh, Abdou bi mu demee soxna ma yóbbul ko ko ne ko nag li ciy nuru lu ñu laal sëriñ saaliwu sa rakk jee fa jaar barkelu nee na keroog sëñ Abdoulaye daa bég ba jël juróom fukki junni ni ko maa la ko neexale yow mi fexe ba ma mus ci dab loo xam ne sëñ Saliou ci doon mus xool diggam ak sëñ Abdoul Khader nga xam ne bi sëñ Abdoul Khader dem Màkk 1976 ànd ak sëñ Assane Bousso ànd ak sëñ Mamour Seck ànd ak sëñ Daam Jatara ànd ak sëñ Daam Atta mu sëñ euh, Ibrahima Mbacke maa ngi koy ziar ziar naa ko keroog ziar bu neex ànd ak sëñ Modou Habib xalifa sëñ Abdoulaye borom dër bi ànd ak sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke sunu sang boobu mu sëñ sëñ seex say mu sëñ son yi bu mhm. ànd ak sëriñ baaxir buso ànd ak sëriñ maxtaar buso mu sëñ mbàkke buso délégation bu am solo la keroog bi ñu àndee ànd ak alaaji baara jàmbaari lislaam ja keroog sëñ abdoulahaad dani alaaji baara kon sëñ abdul xaadir moom ni ngeen ànd dem dikkaat bu ko dara xoos la ko wax ngir bëgg gum bëggoon sëñ abdul xaadir mhm. daana wax ne ñoom ñaar ñoo ànd lépp defandoo ko bëgg ko lool nga xam ni si xilaafaam ak imaamam dañoo duggante mhm. lépp ñoo ko daan ànd diggam ak sëriñ sooy bi wax naa la ko léegi ginnaaw bi nu bokkee ñaari wéyjur waaye diggam ak sëñ fàllu nga xam ni fu nekk fekk na fa sëñ fàllu lu ne yut na ko sëñ fàllu ci addiya bëgg ko lool ba jeex tàkk ci moom diggam ak sëñ Modou Moustapha mu wax ni mooy sunu lépp sunu bët mësta xong sunu rongoñ mësta tuuru ngir téye gim nu téye ni la mel ak sëñ Basiiru mel kook taawam ba sëñ Moustapha Basiiru ku mës gis sëñ Abdul Ahad gis sëñ Moustapha Basiiru ci wet gi sëñ Muntaxa mii fi nekk tey 1988 bi sëñ Mor Mbay Siise wàcceeb liggéey sëñ Muntaxa la yebal moo jullee ji sëñ Mor Mbay Siise te sëñ Mor Mbay Siise moo waxoon ne sëñ Tuubaa moo ne ko woon saa boo wàccee liggéey maa lay jullee sëñ Abdoulaye yebal sëñ Muntaxa mi moo ko jullee kon ju ñu leen bu yàgg ni kii mooy sëñ Tuubaa mhm. noonu la mel ak njabootu sëñ Tuubaa gépp sëñ Murtada noonu la ñu mel noonu la mel ak sëñ Abdou Samad mhm. noonu la mel ak jàmbaar gi sëñ Ibrahima Mbàkke mhm. noonu la mel ak sëñ Abdoulaye Borom Dër bi kër goo ci dem noonu la mel sañ baara ndax xam nga ni bi muy ganee àdduna moom sëñ baara da koo fekke ndax sëñ baara ñaar fukki at ak ñett la mage sëñ abdulaat ko bàyyi mu fekke ko sëñ tuubaa wax wax yu xemme mu ni ki ma tuddee sama gan gii muy abdul ahad ku mën turam te ni nga ko waxee jub ëllëg sunu borom du la tàbbal ci safara bi mu ko waxee mag ñëpp di ci jaar mu joxe fusti bi zat fil xasanaat nu jàng ko sëñ bi wax ca wax yu rëy yam ca wax looloo waral sëñ baara ni su ma demee sama kër ku ma njëkk am muy góor dinaa ko dëppe sama rakk ji ngir barkelu ci wax ji sama wéyjur wi wax ci moom mhm. bi mu demee la am sañ abdul ahad baara mhm. tuddee ko sëñ abdul ahad mooy premier turandoom ci ñu mbokkal sañ Touba dégg naa ci sëñ basiiru baara mbàkke moom sëñ baara moom sëñ Touba sëñ bas building moo ma nettali gémmiñam sama nopp maa ngi ziyaara soxna euh, soxna euh, sama xarit soxna may sa Jóob sama mag ju baax jooju nga xam ñoo bokk maam nekkoon ci kër sëñ bi di liggéeyal sañ Basiru Baara dégg naa ci moom sëñ Basiru Baara mu ni li tax sëñ Abdoulaat xëroon ci man nee na ma bis sa baay sëñ baaraam ma njëkk a defal ñeent ñoo bokk la sëñ Tuuba moo ma njëkk a tudde doom moom ma njëkk a bindal aw ñaan jox ma moom a njëkk a may mbubb moom a njëkk a may dàlli bot daanañu ànd fa ne di fa dem di gane nee na am na bis sax ma koy tooñ naan ko wàllu yu kajoor sëñ Abdou Lahad ne noonu la doon tooñu sëñ baara mm-hmm. ne sëñ wàllu yu fépp laa dee mm-hmm. nga xam ni kon alaaxa bu rafet boobu la séq ak waa kër sëñ Touba ñëpp ko ne mu tuddee la doom bëgganteeg ñëpp am kook état bi am kook dégg nga spirituel beeg temporel bi ñëpp mm-hmm. sëñ Abdou Lahad jariñ na leen ci xam-xamam jariñ leen ci temps jariñ leen ci discours am ba tey am na ñuy jube ci déglu kasetam mhm. ba tey nit ñaa ngi toog déglu kasetu suñu abdoulahaat mhm. jub xocc dëgg la ba tey solution boo bëgg a am ci problème bu la song mhm. demal teg kasetu suñu abdoulahaat rek déglu ko li nga gis fi mu lay wan wan jàngal na nañu jàmbaar jàngal na nañu fulla jàngal na nañu jom jàngal na nañu ngor problème yii di am tey muy problème mu weer weer croissant lunaire bu yàgg la ca wax nga xam murit bu farlu te nite da ngay dégg lañ ci waxoon toog bu la dara bougé doot nga dellu ca la waxoon ci sëñ Tuubaa ak weer mhm. nga déglu sëñ Abdoulaat wax na ci lépp mhm. lii di am tey yépp waxoon na ko kon nag mhm. sëñ Abdoulaat daal mooy sëñ Abdoulaatum islaam mooy sëñ Abdoulaatum sëriñ Tuubaa moo ko nuru ci lépp moo résumé àdduna joxe solution yépp kon kenn mënu ko dënk ci jataay sañ Xaamidu dëgg la xam nga sëñ Ablaay bala ngaa daaneel waaw dafa am yu xew yoo xam ne ñoo ko teg suñu bopp waaw daa am benn waay boo xam ne fan yi day jóg di wax ci yoonu murit mm. ba nit ñi ñu bari mu am lu leen ci naqari ba sëriñ Basiirum Cheikh Abdoul Khadir yàlla na fi yàgg te wér yëkkati ci kàddoom wax nga ci sëñ Mamor Mbaye sëñ Xaadim bu sa imaam ñëpp wax nañ ci waaye daa am loo xam ñoo ko teg suñu bopp sa Ibrahima waaw day am koo xam ne day jóg di nuru ku bëgg réew mi di défendre ay politiciens ñun murid yi ñoo koy jël di jël photom di ko di ko partagé di wane ne patriote la jàmbaar la waaw kooku boobu daa nekk daa fekk mu nekk xar mu xiif waaw su demee ba regg ba murid yi yëfal ko parce que ku bëgg audience fi ne ci murid yi ngay dem waaw ba audience nag dangay ngay wëlbatiku jël audience boobu nag def ko contre carré yoonu murid dëgg la te suñu laat daf ñoo dimbali woon ci loolu dafa waxoon ne nit ak lu mu sikk-sikk su ma xamee as tuut ci ak bëggam sëñ gisatuma sikkam wax na dëgg waxaat ni képp koo xam ne ni yàlla def sëriñ tubaa neex na la wutale wuñ la ak sunu bopp euh, euh, euh, ni sunu bopp ni suñu bopp rek la ñu la def ak koo mën a doon. ak koo mën a doon nit ki bu fekkee bokku leen pas-pas lu mu nekk nekk nekk patriote ak lu mu défendre défendre défendre am na foo yem ci sa pas-pas. la parce que tey ñoo leen di reggal yafal leen bañ regg ñëwal biti ko nag yoo def seen i mbëkk béjjën nag engagé ñu di ñu mbëkk. dëgg la nun noo war a structuré wu ci ni ñu sëñ bi laa defee structure. dëgg la sëñ Abdoulaye lii nga sol nii boo génnee dox ci mbedd mi. ku la nuyu bu la sujootal bu dee bu la xoolee dina xam ne murit dëgg la ak aéroport boo mën a wàcc àddina dëgg la loolu dindi complexe ci nit ki la te Sëñ Blaat a ko def ci noonu dëgg la Sëñ Blaat moo def ci ñun buy wax ci Sëñ Touba même soo dul ab murit sax soo ko dégloo di nga am cofeel ci Sëñ tubaa ndax dalay won ne kii may wax ci moom du sama du nit kuy wax ci waajuram kuy wax ci ab sëriñ fi ne mbub mi wàccee naa ko aéroport mbub mu mel nii bàyyi laat man sol naa ko wàcc ci aéroport bu Boston ci Amérique nit gis ko ba kontaan te américain la kontaan ci banaa ma bii façon colin damaa neex mais tey am na ñoo xam ne dañoo complexé. mënuñu ko sol foofu dañoo complexé. fi ne li ma gëm man mooy. amul lu ñuy jéggaani. yoonu murit am na lépp lépp sëñ Abdoulaye tegal nañ ko mi ñuy waxtaane amul lu ñuy jéggaani. colin bi moo gën a yiiw gën a simple gën a jot. ah sëñ am nañ gan am nañ gan gu rëy goo xam ne yegg na ci plateau bi bismillah. bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah eh, sëñ Abdoulaye. mën na toog nii dend ak yow. Eh, wax dëgg yàlla am na nanu am na nanu gan gu rëy eh, muy Serigne Fallou Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara eh, ñu gën ko xam ci Serigne Galas ñu ngi koy ziyaare bu baax a baax a baax a baax eh, bëggam sëñ Ablaat woore woon na ni xamoon naa ne balaa jataay bee jeex dina ñëw ndax ni mu mel ci Cheikh Abdou Lahad démb dama ko woo ñuy waxtaan ci Cheikh Abdou Lahad mu ne ma damaa nekk beleel ma xam responsabilité bi si yëpp laan yore waaye day ñëw ba dend ak man sëgg lëng ma ne ma saa waaj ñëw ba sëgg ba tolloog man wax ak man ma xam ne kii Touba gam jóge àddina sépp moom la ñuy wër mu ñëw man mii ak ni ma toll ak ni mu doon ni mu doonee maam ci man mu sëgg di ma jox wàccuwaay woowu wala bu ma ko rombee mu bokk ma ne ma sëñ foofu la ma lu si blaat dugg kër bi mu tuddee Cheikh Abdou Lahad doom la wax ne ma noppi naa ci mhm. man sama bëgg-bëgg moo nekkoon dippi Cheikh Abdou bis bi mu daan defal bu ñu nee suba la Kazu Rajab la daan màggal Cheikh Abdou Lahad bi mu amee fukki at ak juróom-ñaar ci la Cheikh Ahmadou Lamine Bara bàyyi ko àddina ñu di ko màggalal Cheikh si si Alaaji Bara moo waral bis bi mu boole ko def ko benn léegi dañ ko waroon a jël téléphone mu ne ma kenn du ma jël téléphone damay déplacé ñëw leen rek laa leen ñaan mooy du wax ndax ki ngeen may laaj mënumaa seede ci moom ndax sama xol mu waaye dama bëgg a jóg taal sama oto ñëw bañ xam ne sëñ Abdou Lahad moom moo ma ñor man waaw kon sëñ Dalas la yàlla may nga gudd fan ni mu bëggee sëñ tubaa mhm. bëggee ni njabootu sëñ tubaa gépp mhm. bu màggalu sëñ alaaji baara jotee wala bu sañ fàllu da koy xam ci moom ndax mhm. lu mu xewle moom ñëpp ay ñëw boo nekkee kër sëñ galas ñëpp la fay fekk te loolu nag jikkoo moo ko waral mhm. ak ak ak ak ak ak woyof ak baax mhm. moo tax noo ngi lay ñaanal ñëw gi nga ñëw fii mhm. yàlla la ci sëñ blaat dëbb kàttan ju dul jeex yàlla na la ci sëñ blaat gën a dooleel yaa ngaan nag suñuy xarit eh, ñoo ngi leen di siyaare bu baax ma xàmmee ci sañ Ménicar <laughs> moom sëñ Saliou moom yaakaar naa lépp comme sëñ Saliou la ak sama xarit bii sëñ Abdourahmane sëñ eh, Abdourahmane sëñ Kasasuloo moom moom say ndeysaan sama sama xarit la ndax eh, nit ku baax la Euh, lii rek wane na sëñ Galas façon nit yi muy àndal sañ Jibil dama lay bàyyi nga dalal sañ Galas fii sëñ mhm. euh, Ablaay tolloon lu am solo la mhm. Mhm. waaye bu ñëwee moom mooy ñaanal plateau bi ñu yëkkati jataay bi balaa sëñ Ibrahima ay forage ñu ngi lay nuyu ay kàddu ñu ngi lay nuyoo ak sëñ Ibrahima Fall mi euh, bu Touba forage ndeysaan moom ak sëñ Ahmad Badou ñoo doon liggéey ci aynu muy murit saadix bi mu yëgee plateau bi la jógee jàndeer ñëw ne damay fekk si waxtaanu sëñ Ibrahima ñu ngi la koy nuyooleel bu baax a baax muy taalibe bi sëñ Amdi Xadi sëñ jàpp naa ne sëñ Galas moom ñun ñëpp mën a mën ñun ñëpp ko mën a dalal waaw dëgg yàlla mhm. euh, dafay liggéeyal sëriñ bi rawatina ci ñun ñi nga xamante ni ñoo ñu nekk ci média yi mhm. da ngay toog ba mu yàgg mu ne la kar ni foo nekk dëgg la daal di am nu mu def ak yow rawatina ah, loolu moom surtout événement yi jub <laughs> jub see ay tabaskeeg yu mel noonu te du ah, bëgg sax nga wax ko boo koy woo di ko sandaat sax naan ko ni mu ne ah, saa day gaawantu sax coupé coupé téléphone am waaye loolu it wax dëgg yàlla suñu borom ma ko koy fay ci taxawaayam gis nañ bu baax a baax taxawaay bi nga taxaw ci wetu sëñ Muntaxa àdduna sëpp seere ko waaye tamit nga jëm la ci jëm la si jox jébbal la ko yàlla na la te yàlla na la yokk amiin taxawaay sa taxawoon ci wetu sëñ Abdou Khadir yaa ngi koy taxaw ci wetu Cheikh Mouhamadou Muntaxa mm-hmm. kon nag loolu yàlla na la suñu borom fay bu baax a baax noonu yi tamit dama ko bëgg ngir sama sëriñ Cheikh Mouhamadou Moustapha mm-hmm. moom euh, mook sëñ Moustapha Ndiagne benn lañ mm-hmm. waaw sëñ bi fonk ko lool am fu mu ko teg te mm-hmm. daanaka noonu mu mel mm-hmm. noonu la mel ci kër sëñ Tuubaa yëpp mm-hmm. kon nag sëñ Garas ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax suñu borom gën laa dëgëral wallaay liggéey ci yoon wi suñu borom defal la kattan defal la wërsëg defal la wér wallaay mën koo liggéey nu mu la soobee te nga amiin amiin amiin nuyu mbokk taalibe yi nga àndal muy Minicar ak sëñ Abdourahmane ndeysaan dañuy samay xaritu xarit wallaay wallaay ñoom ci kër sëñ Xaadim Dia wallaay wallaay wallaay sëñ kaar nag moom dañoo yàgg wallaay wallaay saa bu mu mosaan a siyaar sëñ Saaliu ci moom lay jaar wallaay wallaay wallaay wallaay lu yàgg loo xamante ne wax bëgg yàlla waaw ndeysaan tubaarkàlla sëñ Mini Kaar eh, jërëjëf sëñ Jibril balaa sëñ Ablaye ñëw eh, mm-hmm. ñu ngi ziare sëñ Cheikh Bari moom it xam nga mm-hmm. fa lañ war a jëm nii bu ñu sëñ Ablaye fa la war a waxtaane ji mm-hmm. nee na ma maa ngi topp plateau bi ak sëñ soxna Aji Diop maa ngi ca Amérique ak yaayam soxna Faama ñu ngi koy ziare baax soxna Aji ci taxawaay yi eh, di gërëm sëñ Abdou Lahad Bousso Thierno ak sëñ Abdou Lahad Bousso Maram ak sëñ Abdou Lahad Bousso Maxtaar ñu ngi yónnee seen i seen i seen i seen i seen i yitte seen i ziar Euh, di nuyu bu baax a baax euh, soxna maam Mbéyeloo bëgg loolu suñu blaat mhm. di ta sëtu sëñ Maxtaar Bintaloo mhm. soxna dabam Cheikh Abdou Lahad ma ngi ca Daarul Mawti mhm. sëriñ am sëtu Mbàkke ñu ngi koy nuyu baax baax ak soxna maam Fateek euh, soxna maam Asu ñëpp ñu ngi leen ziyaare ak soxna may moom si soxna may laat moom si Abdul Karim mi nga xam ne lañ dénkoo suñu galas mi moom na ma bég naa lool ci jotaay bi moom sama xarit la sama sëriñ la maa ngi koy ziyaare baax di ko ñaanal di nuyu bu baax a baax soxna maam Ami Mbàkke bintu Cheikh Soyebu kon su ko defee euh, sëñ Ablaye sëñ Ablaye dañuy bàyyi rek mhm. euh, su ko defee ma bàyyi la nga dalal sañ Galas Kaltoum mhm. mu daal di tëj su ko defee mhm. sëñ Ibrahima di seen ndax nee na ma du ma wax dimbali ma rek ngir yàlla bu ma yëkkati kàddu <laughs> naa ñaan rek waaye sëñ Ablaye daa am présence yoo xam day wax waaw mooy waxtu wii nga jóg ko ci kilifa taal sa oto ànd ak say wëllëre ñëw ci jataay bi dafay wane ne man sama image rek wax la dëgg la te it sëñ Galas dafa dafa dafa démocratie euh, maa ngi jot léegi message su soxna Bali hmm. moom sëñ Muntaxa soxna baali parcelle mi ngi yónnee léegi ay bataaxal ni ma wax ne sëñ Blaat ñun ñëpp ko bokk ndax ñun ñëpp dañuy jàng ci moom ba tey ñu ngi koy ziare baax Mbàkke Balla moo ko sëñ hmm. Ibra parcelle hmm. ak waa kër ga yëpp noo ngi leen di nuyu di ziare sëñ Ibrahima bàyyi la nga dalal sëñ bi waaw xanaa bég lool ci teewaayam bi ndax dañoo wax ni tool piccee war a dem ko su bëggee jëfandiku ca tool ba bu tool wooyofee nag fekk si picc bi dafa noppal picc bi wan ko ni rek dama laa bëgg bëggal la sa sama bopp mhm. nun taalibe rek lanu ma waroon tey ji dagg fu sori dem fekk ji ko waaye lii mu def dafa wane rek bëggam sëñ Abdul Ahad dafa wane taxawaayam ci yoonu murit barki démb ba gis ngeen ñëpp li ko sëñ mun taxaa defal pour wan ko ne dama lay gërëm mhm. dama lay sant ngir sa mhm. taxawaay ci man ak sa mbaax ci man ak jàpp bi ma jàpp may sa wéejur wutale woo ma ak sa wéejur muy jëmm joo xam ni nii rek lañu xam ci moom bëgg yoonu murit lool déggal kilifaam gëlee di sëñ Moustapha Alhaaji Baara bëgg lool ay mbokkam am lanteeg ñépp ngir jikkoom ji rafet tabe lool lu mu yor rek nit ñee ko fa bàyyi lu mu yor mu ngi koy joxe te yàlla tax ak yoonu murit ku mu gis ngay góor góorgóorlu ci yoonu murit ak foo mën a bokk ak kër goo mën a nekk moo lay woo jël ci sëgam di la jox di la encourager di la ñaanal mhm. kon nag su ñëwaatee dafa fedd li liñ xam ci moom mbaax ga mhm. mhm. waaye nag laa xar wa lii du bett kenn ko xam wéejuram wu baax wi sëñ alxaaji baara fàllilu mi nga xam ne daf daan wax ni koo xam ni sama signature bii mooy tax nga xettali ko la xañ sama signature koo xam ni sama kàddooy tax sa mbir jag du la xañ sama kàddu dinaa ko ca wax koo xam ni sama téléphone bii su ma ko wootee sa mbir jag dinaa la xettali dimbali la woyofoon toyyu ànd ak mag ñi gunge leen làq seen ngërëm ñoom ñëpp fekk fi ñi mbokkal jamono ba fekk fi ay sëtam ak doomam ku nekk mu xam ñetti époque yi li ci xew moom alaaji baara bëgg sëriñ fàllu ba jeex bu oto bi daan daw sëñ fàllu yu génn tukki da oto bi day daw ba ci kanam mu ni ana alaaji baara ñu ne ko mu ci ginnaaw mu ni woon leen ma ko mu ñëw bu ñu woowee alaaji baara ni ko ñëwal suñ fàlloo la woo bu ñëwee mu ni ko doxal dem ci kanam loo xaar ci ginnaaw ci sama kanam ndax biir na ma ni sunu borom xamal na ma ni sama jëmm la gënal fuuf sa jëmm bu luy lore doon ñëw wóor na ma ni wala mu agsi ci man yaa koy gàttal kon demal ci sama kanam sëñ Modou Moustapha Fallilou sëñ Modou bu sa jeng bu baax di magi baayam daa toog ca Gabon génne xaalis bu bari mel ni ku nekk ci xaal ni kan moo ma wax kan moo may wax ku gën a bëgg sëñ Fallou ci kaw suuf ma la sama xaalis bi sëñ Modou bu sa ko laaj na xaalifam sëñ Fallou ñépp di wax diw diw yow yow yow ndax loolu ku ñu ko laal nga ni ko yow ñëpp ni ko yow mu ni accam déedéet xamu leen ko alaaji baara fàllilu sama rakk gën a bëgg sëñ fàllu ci suuf si bañ fa jógee ñu dem nekk ki ko nettali sëñ alaaji baara ñëwee wax ko alaaji baara ni ko am naa yóbbante bu neex alaaji baara ni ko lan la waxal mu ne ko tey dañu toog gamoo daal sëñ Modou Bousso Dieng sa mag ju baax génn xaalis ba bari ni ku xam ku gën a bëgg sëñ fàllu ci suuf si ma tarale la ko ku ne wax nañ ko bay wax ko moom mu ni mukk yow mii yaa ko gën a bëgg ndeysaan alaaji baara ne ko yow mi ma jotal xibaar bu neex boobu mu wax ko sama kilifa ma dégg ko maa lay njëkk a yóbbu màkka waajal pour wan la ni kon lii moom do lu mu doon la waaye tam lu mu doon la kon sëñ galas lii nga nu defal lu rëy la ci nun dëgg la sagal nga télé bi dëgg la dolli nga valeur suñu émission bi mhm. waaye wane nga ni yow mhm. sa maam ji ñor na la loolu si dëgg la wane nga ne yow moom rek ngay dund te bëgg ko mhm, mhm. ndax yemoo ci wax ñoo kese ngaa ñëw dundal ko mhm. te bu la neexoon nga ne télé bi dama fekk fa ma nekk te télé bi day jóg fekk si dëgg la ndax doon jara jalañu dëgg la nga am ci nun dëgg la waaye kon soo ñëwee taal sa oto ci wii waxtu nu la wuutalewu koog sa maam sëñ Fàllu xam nga ne ñëpp benn lañu dëgg la kon yàlla yàlla yàggal taxawaay amiin amiin ñu ngi lay ziar di la sant di la gërëm sa teewaay sa ñaan dëgg la di tuubit bu baax toog gii nu toog ci sa dëgg la dëgg la ndax dafa am loo xam daróori ya la ci dugal rek dëgg la waaye toogandoog sa sëriñ dafa xaraam ci murit buy dox dëgg la kenn du ko def dëgg la kon ndax wax ji tamit nekk lu gën a xaraam bu fekkee amoo ci ndigal dëgg la waaw ndax ba kun la da cheikhi ka maytin wudia bay na yedday xaasilihi tantafia loolu sëñ Tuubaa jàngal kon nee sa kat kanamu sëriñ néew rek nga war a doon ñu lay sàng bul wëlbati bul jaay xalaat kon ñu ngi tuub bu baax di la dalal ci jërëjëf sëñ Ablaye jërëjëf kon ma bàyyi la nga indi ay ay seede rek su ko defee sëñ bi mën a kii mën a ñaan Euh, maa ngi maa ngi maa ngi ziar baax soxna Anta Ndiaye ca itali ak soxna Gaawaan Diop soxna Awa Saw ñu nekk ci kuréel kenn du sëriñ bi soxna Ñaaña Diop maa ngi ca Paris nee na guddi na waaye ñu ngi topp jataay bi ak soppe yi nekk fële ca Touba sañ Mamour dendee ñoom soxna Say saar Sarr Mohamed Mbacke sëñ Bamba ñoom ñëpp ñu ngi leen ziar ak soxna Ndew euh, Xaadimu Rasul ak soxna euh, soxna soxna soxna kii Muntaxa Eh, tubaarkàlla soxna Yaasin Muntaxa moom it mi ngi topp jataay bi ñu ngi koy ziare baax a baax a baax léegi rek lama ma eh, soxna maam Faati di ma leeral ne ma soxna maam Faati Guèye naan ma sëñ Galas ni mu bëgg sëñ Blaat ba nañu ba dafa daf koo bëgg ba kenn ndeysaan moom ku ne ci réew mi moom sëñ Galas bëgg na sëñ Blaat moom bañ na ko ba booy waxtaan dañ naan la mbaa woo nga sëñ sëñ Galas si sëñ sëñ xam nga nag ñëwam bi sëñ Jibril daa am am at ñuy waxtaan na sëñ Blaat ci ci jumaa ji yaa ngi koy fàttaliku yow ak sëñ Mbàkke Mbodj ñoo àndoon ci réalisation bi ak sëñ ñaay mii demoon na Euh, ñuy waxtaan ba xaaju guddi sëñ Amsa daal di ñëw ci biir jataay bi bi mu ñëwee daal ne sama ñëw bi sëñ Amsa mii génn léegi mu Cheikh Abdoul Ahad sama ñëw bi xam ngeen lu ko waral hmm. ñu ne ko déet mu ne damaa toog di leen seetaan vingt une heures ba léegi ngeen di wax ci sëñ Blaat te yéen di wax ñëpp kenn la ma toog ñun ñëpp mu leer ma ne ñoo ngi toog ci te lu nu am sëñ Blaat ñu ko defal ngeen nekk ci biir dëkk bii war na noo jóg sol sunu daal ñëw daal ne bi may génn ci kër gi xaw ma fu may damaa gis yéen ngeen di ndaw di wax ci sëñ blaat loo xam ne nun nii la waroon ndax nun nag defalun dara suñu bopp lépp sëñ blaat dakat moom damay waxtaan bis ci benn télévision fii ci Sénégal mhm. émission bu mag a may waxtaan ci sëñ Saliou mhm. sëñ Amsatum sëñ Abdoulaye mi génn mhm. mu woo ma ne ma damaa kontaan lool tey sama sëriñ ngay waxtaan ndeysaan <laughs> waaw ne ma sëñ ab sama sëriñ wallaay wallaay wan la njabootu sëñ Touba gi ni nu mel wallaay wallaay moom mii toog mhm. fi ne am na taxawaay boo xam day maggal maamam dëgg la maam Balla Aïssa ma ca ngay at mu jot mu defal ko màggal ku mag a mag am day màggal moom maamam nga xam ni tey dañoo war a euh, fonk yoon yu wagar ko moom ci loolu rek lay dox dëgg la yoon dëgg la dëgg la sëñ Ibrahima waaw ma bàyyi la kàddu gi rahmaani rahim alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf Seexul Xaddim jërëjëf Seexul Xaddim jërëjëf Seexul Xaddim sëriñ Amadou nu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu ax tey jël nuyu ñëpp laay murit yëpp di ko teg sa loxo di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountaha yàlla yàggal ko lool sunu kanam amiin amiin yàlla guddulu fanam yàlla taxal ko ba li mu bëgg liggéeyal lislaam mhm. liggéeyal ko Cheikhul Xaddim yàlla mottali ko te nu ànd kook moom mhm. te daje seen ngërëmul cheikhul xadim amiin nuyu seen jibril ndaw mhm. ah, ak suma xarit mhm. suma wëllëre yàlla mi dara teewul loo gis li ñu ni lépp sëriñ Tuubaa dara si asaar sëñ galas démb ci tàkkusaan laa koy waxtaane ak Moustapha Dieng bu Touba Touba ci kanam jëmm ji dama am ci moom seede màggalu Mbàkke Kajoor sëñ danam sëñ Abdou Lahad muy kenn ci sëñ xaadimam sëriñ Sidi Mataar di waajuram fonk ko lool màggal gi mujj dafa ñëw bi mu demee ba génne sëñ bas Abdou Khadre yàlla na yàlla yàggal ko sunu kanam ñëw ba génne sëñ bas sëñ galas daal ñëw sëñ xaadim dugal ma ci biiram nekk daje nañ fa lu mat ñaari yoon maak moom mu di ma wax jëmm ji jikkoom ju rafet ak bëggam lu baax ak bëgg bokki boppam ba bokki boppam yee ko gënal boppam démbal si ngoon bi ñu jullee timis ba pare loolu laa doon waxtaane dëgg la ak Moustapha Dieng si jëmmam ju tedd ji kon bu ñëwee fii lii la ñu doon wax démb lii firndeel mm. sëñ Moustapha su waajur man damaa yiimu ci ci jëmm gis nga su ma ñëwee Touba mm-hmm. danaan ma sama kër sàngam demal nga toog fa ay fan sa kërug bopp la njabootam noonu lañ mel ci man wutuloo suñu njaboot danaan añ baa ngi ni tege ñëw leen fi ngeen di añe ah, daal di wax kii joxe dépense bi kii ah. joxe dépense <laughs> seen aboo sëñ aboo mi xalifa sëñ Fàllu semaine bee passé ma demee Tuubaa mhm. ca néegu biiram la dem aksil fekk ma ma dikk ca biir mu ñaanal ma bu nga bee jox ma damay tiit ma ni ko lii Mbàkke mun ma mukk yóbbu ko sëñ Fàllu la ko dëgg la ñii dañoo baax jërëjëf jërëjëf sëñ Ibrahima waaw ah, sëriñ Abdou Lahad mhm. li ma ci man a seede mooy man nu ma mel tey sëñ Abdou Lahad la sëñ Abdou li mu defar si ay nit mhm. te gisuñu ko ngir kàddu mhm. ay millions nit la ci kàddu man seex moor Talla Fall moom seex Serif Assane mooy suma wasila di rekku sëñ Amdi Xadi ingénieur hydraulicien la nekk na sef de service Kaolack Saint-Louis partout mais sëriñ Abdou Lahad la jëloon def ko muy référence man mooy suma royuwaay dëkk ba mu juddoo ab murit mosu faa yeewu wóor na kee toog dem nga fa ñëw nga fa maa fa jëkk doon koo xamante ni ki suma cosaan xanaa surga yu fa doon newetaan mën naa nekk murit mais si biir lébu yi nga nekk koo xamee juddoowoo ci dëkk bëgg faa fés benn mu kii ko nangu mel na man maa fa mus a toog suma papa juddoo fa doon notable si biir dëkk ba doon mu xadd mu sëriñ Babacar si ma am sumay mag yu ma bokkal ndey ak baay fu sëriñ Abdou wala sëriñ Mansour daan jóg ñoo fay nekk maa jëkk doon ak murid sa dëkk ba mais sëriñ Abdou Lahat ma may fit ba tey ñëpp naw nañ sëñ bu daan def discours sa waajur ni la bu daan def discours hmm. demoon na ba suma waajur moo daan wax Seex Wade naan kaan wool sa waay déglu li sëñ Abdou Lahat wax hmm. na fexe ba góor góorlu hmm. ndax kii mu àndal ku ànd ak moom sa benn moroom du la ñëwee. dëgg la sama baay doon na ma wax loolu. bi ma daan toog jandeer dama daan toog bu tabaski jotee wala korite ma wéet fa lool dem toor ba waa toor mu gi dañoo def délégation dem si Serigne Saliou di ko wax na ma ñaanal ndax damaa wéet sa dëkk ba waaye ñetti kàddu laa daan jàpp mooy bu Serigne Abdou Lahad waxee korite bu waxee tabaski ak bu waxee màggal ak Touba mhm. daan wax ni ab murit benn murit bu dëggal fu mu nekk moo gën junniy murit fu ñu nekkul kàddu googu heure bu ma musaan dem ba gis lu mën a xari damay daal di jël waxi sëriñ Abdou Lahad teg ko si suma kanam mu may ma force may ma doole ba loola tey dëkk ba ma dëkk mën naa wax ni billaahi wallaahi benn mbindeef du tiijaan du xaadir ku ma bañ amu fa mhm. ku bëggul sëriñ bi waa juddoo fa yaroo dëgg la dëgg la te loolu lépp li ko waral si sëriñ Abdou Lahad laa ko jàpp mhm. te sëñ Mortala laa ko nampé. ndax sëñ Mor Talla directeur société la. doon surtout Cheikh Ibra Fall ndax Cheikh Serif Assane ko jur. Serigne Falloo ko dugal école. muy koo xamante ni kii référence si addunaam yëpp sëñ Fallou sëñ la xam la ko defoon. ba daf daan wax ne ma Ibrahima mu ne ah, mu ne ma. nit bu amee lu mu ragal. ci fa mu jëm bu xoolee sëñ Abdou Lahad rek war naa dëgëru fi. dëgg la ndax toog naa ba benn bés Samba Yàlla Jóob. am ak moom problème. ñu boole kook Senghor mu boole mm. kook Serigne Abdou Lahad mm. ma ànd ak moom ak góor gu ñu wax Baye Assane Fall mm. keroog bi ñu emee sëñ Abdou Lahad ñu ngi ko fekk Touba Beleel mu wolu Sambay la mu ñëw mun ko Sambay la mu ne ah, mu ne ko yaay ministre de l'hydraulique mm-hmm. mu ne amun ah, ko surtout Cheikh Ibra bii de mu ne ah, ko na leer ni àdduna du yàgg yàgg ba nga ilif ko mm-hmm. Sambay la mu ne amun ko bu la àdduna jaral mukk mm-hmm. njaboot ak Cheikh Ibra Fall gi nga def ko sëñ Taal dañu bëri ne ko sëñ Abdou Lahad mu ne mun ko wër na Cheikh Ibra ni budul jëmm dinaa wax mu waaye ñemewuma koo wax ndax sa jëmm ndeysaan mais sëñ bi sëñ Abdou man suma bopp dem naa ci benn dëkk doon faga si benn forage doomu góor googu moo ma ko sa jamono sëñ Abdou Lahad daan dox muy metti mu ñëw siin dem ci benn dëkk boo xam ne ñaari jullit dafa am kenn ki taalibu sëñ Abdou Aziz daa baax la ki si des di taalibu sëñ Abdou Lahad ba mu fay dem mu metti loolu ndax booba bu fa daan dem daawul yor waruwaay muy dem bay jub dëkk ba benn nag góor ak séréer gis ko muy dem mel ni yàlla moo ko wan ni ko kii di dem de kilifa la mu dab ko ni ko waa sëñ bi foo jëm mu ni ko dëkk sàngam laa jëm mu ni ko yégal ci sareet bi ma yóbbu la sëñ bi ni kaa dee mun ko yóbbul ma yóbbaale la mais si ngorog sëñ Abdou Lahat ak njàmbaarug sëñ ab laxat ak ngorog sëñ ab Lahat bi ñu demee ba sëriñ Abdou Lahat nekk sëriñ Tuubaa loola ko koo ko defal doomi kooko moomu ko wax ba mu nekkee sëñ Tuubaa lu mu njëkk a def jënd 404 mbaar du ko ceeb ak diwlin ba mu fees yëkkati lu ma téeméeri junni yebal ay nit ni leen bu ngeen demee kamat yeboon sa sareet ba ne leen ko maa nekk Serigne Touba lee la ko Serigne Touba faye ndeysaan kon kooku bu ñu nekkee si heure bii ñu nekk à ak actuelle Serigne Abdou Lahad mhm. damay wax ni mhm. avant Serigne Abdou Lahad ñun murit yëpp lu tax kenn ku ci nekk war ngaa am foo war a mën a teg Serigne ab Lahad ndax lu murit amoon amoon bu njëkkoon mhm. ab xaftaan boo xamante ni bii mhm. dañ daan wax xaftaani bawal bawal da nga daan gis ku yor xaftaan bu ñàkk solo mhm. def ci ay millions yi dul jeex yor caay ju kenn xamul mais tey bu murit yi demee ba am personnalité xam fan la ñuy teg seen tànk am lu ñu bëgg Serigne Abdou Lahad dëgg la dëgg la <laughs> kon Serigne Abdou Lahad wallaay wallaay wallaay Fall nun war nañ koo delloo njukkal bu ñu demee ba xam kër yu rafet xam oto yu rafet am personnalité bu tubaab taxawee wala tubaab yu nit ñuul yi mel ni ñun laa wax war na ñoo xam ne loola bu deñee Serigne Abdou Lahad moo nu war ndax Serigne Abdou Lahad moo jël Serigne Touba teg ko ba ñëpp ragal ko kuy buur ragal ko mm. te kon ñun bu ñu demee ba buur bu waxee sunu kanam ñu ñemee tontu mm. loolu Serigne Abdou Lahad a tax kon Serigne Abdou Lahad ñun murit yi war nañ koo delloo njukkal ñi si li ma siy teg mm-hmm. mooy 86 mm-hmm. dañuy def benn forage Fatick. man nekk faak suma booba ci employé yi doon gas laa mais comme man man Baye Fall woon ñu fa nekkoon jàppee ma comme Baye Fall la Serigne Abdou Lahad dafa jékki-jékki rek daal di ñëw fekk ñuy pompe forage bi ndox mi di taa picc yi muy to xoot xoot picc yi weex yooyu xaw ma nan lañ koy tudde toq toq la xaw ma toor toor toor waaw toor toor mm-hmm. ñëw bari fa di naan ñu jékki-jékki ba si ak Serigne Abdou Lahad daal di dareet ñëw ak otoom bi mu ñëw def ni wëlbit jublu penku naan cey suñu borom cey suñu borom picc yi di naaw di dem mu jekki-jekki ba si yàgg sunu patron bi daal di ma ni comme yow yaay murit bu kii bi demal sëñ Abdou Lahad ñëw na ma daal di yegg sukk si suuf mu daal di ndax xam ngeen lii ngeen di def lu mu doon ma ni ko mbàkke day xamuñu lu mu doon mu daal ni wool ma fere yëpp ma daan ni suñu patron bi ñëpp nañu ñëw ñun ñëpp ñu ñëw mu ne ndax xam ngeen li ngeen di def lu mu doon mu naa mu leen njaay àll yi nekk ci ndox mi di naan yàlla sàkkul benn bakken boo xamante ni bii bu jaamuwul yàlla bés te du mbindeef yàlla faat ak room ñu ni teg mu ni xool leen yéen li ngeen di def ndox mii ngeen di génne ku si jaamu yàlla te nit mënul jaamu yàlla te setul nit mënul jaamu yàlla te sellul te ndox mii ngeen di génne li tax ñu di ko fi def mooy lu nit ñi jaamoo yàlla dëgg kon ku si jaamu yàlla ku nekk boo ci amee genn pay yéen ña koy liggéey am ngeen fi lu toll ni kooku. dëgg la daal di yëkkati deux millions di ñu jox. sunu chef bi daal di man ne moom bëggul loolu dafa bëgg. mu ñaanal ko mu dem Amérique du ma tudd turam 86 la dem Amérique ba léegi tànkam teguwul Sénégal. 86 ba suñu jànd yàlla tey tànkam teguwul Sénégal. man ba ñu yëkkatee di jox dama ko ni 2 millions yi di mbàkke mu ne aman ah, ko Seydou Rafal laa yaakaar te Seydou Rafal mosul laal alali Sëñ Tuuba. Mm. ak rek laa ñaan saxal nga ñaanal ma ko. mun ma fi ñaan rek la loola mm. laay seedi si sëriñ Abdou Lahad wallaay wallaay Fall waaye sëñ bi sëñ am maa ngi lay gërëm di la sant wallaay maa lay sant maa ngi lay sant di la gërëm wallaay wallaay sëñ ji bi jëmm ji dé di ëpp naa def yow yow mi laa war a wax ci yow ndax xam nga xam nga sëñ galas xam nga lu tax dañoo euh, dajee Mbàkke Kajoor euh, mbooloo mi xat lool ndakate man ci kaw ci kawam laa toog man li may toog yëpp texitug murit rek ci kawam laa toog waaye moom yëngu dana daa toog rek ba may bëgg jóg rek ma xool ni ci kaw nit laa toog ma ne ko ah sëñ bi maa ngi jéggalu de mu ne ma sëñ bi continuel toog yéen ci sëñ Tuubaa ngeen di wax yow toogal rek ma ne ko dee mu ne ma toogal ba doyal nga jóg ma jóg daal mu ne ma jox ma sa numéro ma jox ko ñu nuyoo noonu fasante ko leer ñu xëy mu yónnee ma cent cinquante mille toog gi nga toogoon ci démb sama xol bu sedd moo tax ma la ko yónnee xanaa lii moo dig murit lii tax ma naan leen màggal Tuubaa jëru ñu ñu indil ay gémi ndax boo gaañee nit ki nga gaañ ma naan la baal ma <laughs> xam nga nit ndax sëñ galas mii sëñ galas mii toog dama am loo xamante ne di bëgguma ko woon wax mais dinaa ko wax ci moom wallaay wallaay dama ñëw ci benn restaurant Thiès wallaay mu ànd ak ay mbokkam jëm si dakaar ma seen fa ñu toog ci biir restaurant mm-hmm. ki nekkoon si restaurant bi ni ma ñëwee de waa kër sëñ Alaaji Baara lañu ma daal di génne ni ko fay naa la ñu fa waroon a def daal di dem kama ko joxoon bi ñu dawalee lu mat ñaari weer ma dellu si fa mu wax ko ni ko pourtant moom bi moo ñëwee wax naa ne kooku lu tax waxul ñëwul si ñun ñu ñaanal ko maa ngi koy ñaanal de gisuma ko mais ñaan naa yàlla ma dem ba dajeeg moom soxna soo sa ma waxoon loola tey suma soxna la soxna sa ma waxoon lool tey suma soxna la kon ak ñaanam ñëw na ci man waaw dëgg la ndeysaan Mbàkke Bàlla kon jataay bii ñu toog damay ñaan yàlla yàlla def la ndax man li may wax démb li ma doon seedi si moom taxawaayam ak sëñ Muntaxa léegi daal dama lu ma hmm. bëgg waaw defaral ma ndox moo xam ne sëñ Gallas a koy tudd ñu tudd ko sëñ Blaat léegi nag buñ paree moom loolu benn sëñ Ahmadou Ba day sa sa waajur <laughs> dañu commencé ndeysaan maaw rahmati hmm. mu am ay sociétés yu bari yu mu def appel d'offre hmm. ñu naan kaan tey ëllëg ba benn waay wax ko ne ko tee ngaa woo Ibrahima Fall mu woolu ma ma ñëw mu ni ma man de dañ maa booleek yow mm-hmm. ma am liggéey bu ma bëggoon a liggéey mm-hmm. te liggéey bi may bëgg liggéey lépp liggéey sëñ fàllu mbàkke dong laa ci bëgg mm-hmm. man ko Mbacke wax ma noo ko bëggee mu ni ma damaa bëgg defal eau minérale ndax fa ma koy def est-ce que mën na fa nekk ma ne ko fan la mu ni ma Touba boo ko man ko Touba boobu la sëñ fàllu doon liggéeyee di ko indi Touba nga bëgg faa def ndox mu neex pour mu nit ñi jar mu ne ah, man ka maa koy def yàlla dimbali ma ma def ko ndeysaan ñu am si réussir gu baax a baax. ndeysaan ndeysaan ma joge si ñu ñëw nii dañuy seet ndax ndox mu neex am na Touba. Mhm. su ma benn waaye bu ñu wax Salim Ngom actuellement moo yor responsabilité forage fële. Mhm. mu am benn document bu mu defoon. Mhm. pour def ay étude pour ndoxu Touba ndax bi muy def thèse si la ko defoon. mu am benn projet bu ñu ko waroon financer. douze milliards. pour ñu def ay piézomètres. mais am ñu jaar si suuf. ndax xeex Sëñ Touba yàgg na. wax société bi ko waroon a defar ni leen bu ngeen ko defee Touba tamit kenn du leen fey muy benn société indien Saliou Ngom démissionné canadiens yi ñoo ko waroon fay muy douze milliards bi ñu demee ba ci biir canadiens yi ni leen ki defoon études yi ba tax ñu def ko bu ngeen ko ci génnee duutuñu duutuñu ko def ñu jëlaat Saliou ngoom indiwaat ko wu mm-hmm. ni leen ñetti piézomètre laa soxla mm-hmm. buñ ko defee dinaa dirigé projet bi mm-hmm. mais ñett yooyu benn bi mooy daara yi sëñ Abdoul Ahad jàngee sëñ Saliou sëñ muy daara sëñ Modou Moustapha mhm. muy tindoo di mhm. ak Baxdaad mhm. yëpp bi ñu ma ko waxee dama ko ni na matériel ñëw soxlawu ma ko ma fay yàlla dimbali nu keroog ba ma fay jëkk a dem sëriñ Sidi Mataar moo ak seex Ndiaye ak sëñ Xaadim ñaan si ndox ni ma di ngeen si am ndam bañ koy def si jamono si alaaji baara la sa sa waaju fa jëkk gisee ndox mu neex ni ku taxaw 7 kilomètres de Touba. Mm. jëm ci kanam loo soxla si ndox bu neex di nga ko am. sa laa def waa Daaru Salaam Dar mu Alaaji Mandiaye Jong moo ko financé 80 millions. 120 millions lañ ko waroon a def ma def ko 80 40 millions dama ko def addiya Sëñ Touba. ndeysaan jërëjëf jërëjëf Fall sant nañu. jërëjëf jërëjëf suñu jotaay bi jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf soxna sa doom soxna Nogay sama xarit mi ngi ma yónnee bataaxal di sant waaw moom moom sama doom la moom man la ko bàyyile maa ngi koy ziar di ko ñaanal yàlla may ko mu yeggale njàngam eh, ci dara ji Cheikhul Khadim ñu ngi lay sant baax sëñ Ibrahima sañ sëñ bi man dama laa sañ te wax eh, ne da nga yëkkati kàddu sëñ ma laa wax dara waaye sab jataay la sëñ Ablaye xanaa ma bàyyi leen ngeen ñaan ko rek sëñ Jibril <laughs> waaye waaye waaye ndem yaa war a tëj jataay bi da damay sant ñëpp jox la jox la nga ñaari kàddu lu mu gàtt gàtt rek baax na ndax ndax sa ñëw rek image la ndax ñëw bi nga ñëw rek waaw waaw sëñ Jibril man nag tey jëluma kii ndax man sëñ bi xam nga dama koo da dama koo fonk lool léegi la ma sëñ Xaadim Fall mu sëñ Abdou Karim ne moom fu sëñ Galas Xaltum am am na fa keesu Cheikh Ablaat fu mu am wàccuwaay rek am na fa keesu Cheikh Ablaat loolu loolu loolu cofeel la euh, kon nag sëñ Mbàkke Mbodj ñu ngi lay gërëm euh, ci liggéey bi euh, di gërëm sëñ Daam di gërëm sëñ Ñaay Fay sëñ Modou Karam mu ngoog moo tax mu bàyyi ndax yow waaw yow kon ngir jëmi sëñ Ablaat yéen saa yi jëfandikoo nga sëñ Mansour Guèye jekk baylaat boo ko rom mbakaana xaqan maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant di ko ñaanal Euh, sëñ ñaay reer na reer bi waaye liggéey na tey tubaarkàlla di gërëm sëñ Abdou Karim moom tamit ci taxawaay bi waaye di gërëmaat soxna Kiné moom Cheikh Abdou Lahad di ko ñaanal ci taxawaay yi soxna Anta Ndiaye euh, taalibe Cheikh Abdou Lahad di gërëm bu baax a baax euh, soxna Mame faa tiggéey moom soxna Kiné moom Cheikh Abdou Lahad di gërëmaat bu baax a baax sëñ Lamine Ba tubaarkàlla di ko gërëm di ko ñaanal yàlla defal ko tawféex moom sëñ Masayer sëñ Mamor Mbacke Washington wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay di gërëmaat bu baax soxna may mënatu bintu Cheikh Abdou Lahad soxna may mhm. eh, mi nga xam ne nii eh, sëñ ma ak maamam lu ne defal na ko Cheikh Abdou Sall Karim kon nag noo ngi koy ñaanal baax moom tamit di gërëmaat bu baax a baax a baax a baax a baax nag eh, ki nga xam mooy Serigne Cheikh Gaynde ma Euh, moom Serigne Mamor moom ma Massamba di ko ñaanal yàlla defal ko taw feex moom itamit may ko mu gudd fan waaye di gërëmaat sunu yaay soxna nday soxna Touré nday soxna nday soxna Touré mi nga xam ne moom alaaji sëñ Cheikh Touré ak euh, euh, beleel boutique xam nga beleel boutique sëñ Jibril tey tubaarkàlla dañoo ñëw ànd ak ñun ci jataay bi ci njiital sëñ Abdou Lahad Dieng di leen ñaanal ña nga ko fekk ci Touba Darou Manane sëñ sëñ Mbacke Mbodj wane na léegi video bi waaye nag ñi ngi leen sant ci seen taxawaay bu am solo di gërëmaat alaaji Mbacke yu fay di ko ñaanal ndax lii lépp bu amee taxawaayu Cheikh Abdou Lahad la day mel ni dañoo dégg ndeyul lu Cheikh Abdou Lahad waxoon ne tele bi bu fekkee ne mënuntu cee jot mënuntuñ cee jot ñu yemale koog ba ca Mali kon nag loolu tey euh, alaaji mbàkk yi bokk ci jëmm yi nga xam ne Cheikh leen produire ndax moom buy wax ci Cheikh Abdou Lahad daf may wax ne ma Cheikh Abdou Lahad kew ko kenn mënul lu moom kenn mënu koo xiyaas ci ab kemu euh, ñu ngi koy sant sa yaar baax soxna Faat Kiné Thiam moom it mi ngi ñu topp wala ba ca Guinée boo xoolee Mali ndeysaan ak Guinée. ndeysaan ñoom ñëpp 70 la. boo ko adapté ndeysaan muy kun kun boo ko adapté 70 la. 70 ba mu waxee la ci kun gi tab ba fi ne nii télé yeeg rajo yëpp sëñ Tuubaa la jox daal fi ne boo yoree télé ba koor gi léegi lépp sëñ Tuubaa boo yoree télé te waxoo ci sëñ Tuubaa xam ñu ngi ziar si Abdou Seck naan li feeg matut matut matut soixante-dix wax ah. sëñ Abdou Lahad ja ñëwagul ah. ñëwagul waaw <laughs> sëñ Abdou Seck goro sëñ ñaay fay la taalibeb sëñ Abdou Lahad la ñu ngi koy ziar ak sëñ Modou Mbacke Abibou di gërëmaat sëñ Abou Mbacke Cheikh Abdou Lahad Lat Diop Lat Diop waaw président Lat Diop ku bëgg sëñ Abdou Lahad la wallaay wallaay wallaay da ko bëgg lool di ko dund wallaay wallaay ma dem ba këram gis ni ku bëgg sëñ sëñ Abdou Lahad wallaay dañu moom mooy sama idole mooy sama référence dëgg la cassette bu ma teg bu jeexee damay wëlbati moom rek lay déglu dëgg la eh, sëñ Abdou Lahad ñuy ziar baax eh, Cheikh Ahmed Tidiane Ba directeur général CDC eh, di ko ñaanal yàlla defal ko tawfeex ci turu maître Baydi Mbaye Euh, moom Cheikh Mouhamadul Muntaxa ñu ngi koy ziare baax ak sunu yaay soxna musli kenn soxna Adama Ndiaye Ndey Birane ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziare waaye Cheikh Ahmad Tidiane ba day ku bëgg sëñ Muntaxa barki dem rek dem na fa ziare ji ko ne ko am yitte ci Medina kon su ko defee sëñ Ablaye ñu bàyyi sëñ Fallou ndax dama bëgg boo yëkkatee kaddu duñ ci tegaat kaddu ñun waaye sëñ Ablaye maa ngi lay gërëm di la ñaanal sunu borom yooyu taxaw la sàmm la ndax njaboot Cheikh Blaat gépp bég nañ léegi la ma sëñ Cheikhu naa moom sa Amsatu sëti sëñ Blaat yëpp di ma yónnee ngërëm ci yow ñoom soxna maam Asam sañ Siidi ñoom ñëpp ngi lay gërëm soxna Taay ñoom ñëpp ngi lay gërëm sëñ Jibril Ndaw soxna Faat Siidi euh, soxna sëñ Jibril Ndaw yooyu ñu ngi lay gërëm ndax moom bi ma ko waxee dana ma sëñ Blaat moom sawar naa ci ndax budul dara di sax soxna may ak it nim nu fa def waaye documentaire bi moom def nga ci mbir moo xam ne moom faaw sëñ Abdoulaye yokk la ci moom loolu moom danaa ci tudd sëñ mm. Abdoulaye Lo bu Touba ca kanam sëñ Abdoulaye jàmbaar moom it jàmbaar la loolu ndeysaan kër la tabax ba mu àgg ak ci jox ma ko addi ndeysaan waaw yàlla ko yàlla fay ak sëñ Mbaye Diop xayra kon sëñ bi ma bàyyi la sëñ mi di kaar maa ngi sant sëñ Abdourahmane Mbacke jërëjëf jàpp naa ne diggante Daarul Mooti am na bayit yu neex yu sëñ Abdoulaye ooyoon maam Cerno yoo xam ne su ma ko ki yoon sax dama koy indaale ndax moom da daan da daan wax royukaay la ci maam Cerno royukaay la ci moom Euh, Mbàkke noo ngi leen jox baax seen wàcc wàccuwaay moom nag sëñ Saliou la bëgg Minicar moom kenn mënu koo jaar fenn su dul sëñ Saliou waaye ñu ngi koy ziare baax a baax a baax a baax a baax a baax kon sëñ Fallou euh, ñu bàyyi la kàddu gi rek soo noppee daal ñuy ñaanal loo wax ci sëñ Blaat rek <laughs> bisimilah bisimilah jox jox mi ko rek waaw mhm. Mhm. Mhm. allah waaye nag fi ñu toll ci ñëpp ko amee wér na te bu ñu tuddee sëriñ si di tudd nañ njabootu suñu laaj gépp. waaye wér na nu wér na sunu xol sedd na ngir jëmmi ki nu yëkkati mu Cheikh Abdou Lahad képp rek dong. waral sunu teewaay bi fii. noonu ci sunu xol bi sedde noonu ñu yéegee ci sunu bopp ne taw féexoo nañ ci bëgg ci Abdou Lahad ba ba xamal ko sunu bopp ñu ngi ñaan yàlla gën fee yàggal Cheikh Abdoul Mountakha yàlla sunu borom ñu ngi ñaan yal na yàlla jëfandikoo coobare ju mos a def ci képp kuy dund ci jëmmi du Abdoul Mountakha ci yàgg ci fekke ak kuk tal buñ ko ko ñaanalee rek Euh, ñaan suñu boroom mu dëggal suñu ñaan yooyu ñaan suñu borom mu dëggal suñu kàddu yooyu ñaan suñu borom mu taw feexale Cheikh Amadou Mountakha lu lu lu yéeme ci dund mu gën a taxaw liggéey bu Cheikhul Khadim bi mhm. kenn ku ci nekk xam na fi mu ci toll mhm. ci pas-pas fi mu ci tollu ci taxawaay mhm. sànq maa ngi déglu sëñ Jibril mi ngi koy wax euh, ku xool Cheikh Abdoul Ahad ku gis Cheikh Abdoul Ahad ku gëstu yu yu yu bari yu dolli nit pas-pas. Mhm. ak yu tax nit dëgëral yaakaaram boo ko xoolee Cheikh Ahmadou Mountakha mi da nga ko gis. Mhm. kon noo ngi sàkku tey ñaan te di sàkku ñëpp ñaan leen na ko. yàlla gën ko yàggal te wéral. amiin di santaat bu baax yëg gi nu yëg ci suñu bopp ne. Mhm. bëgg nañ sopp nañ jàpp nañ doyloo nañ Cheikh Abdoul Ahad. waaw loolu moom ñu ngi ciy sant yàlla bu wér ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm. ñu ngi sant ñu ngi gërëm di ñaanal njabootam gépp yàlla gën leen a yàggal yàlla gën leen a wéral mottali leen seen ay yéene muy góor muy jigéen amiin amiin amiin euh, bis bi ñuy waajal mhm. sunu borom dolli ci taw tawféex ñu mhm, mhm. fa yàggal sëriñ Sidi ak njabootu Cheikh Abdoul Ahad gépp amiin amiin soxna may ba ca njaboot gi ñëpp rek kenn bañ a des amiin amiin Mbacke jërëjëf bëgg nañ baax a baax jërëjëf Mbacke jërëjëf kon ñu tàllal sëñ bi def ñaan bis baa ngi noonu àjjuma lay doon incha allah ji ñu dëgmal eh, ni ko sëñ Sidi waxee rek ak sëriñ Amsatou sëriñ Mahmoudan eh, monsieur Abdoulahat ci ñu wàcc alxuraan jàng xasida ñaanal ko waaye ñaanal sunu bopp itam eh, àjjuma lay doon incha allah ci Touba ñu ngi ziar ñëpp rawatina waa daayira Mafatihul Bichri rek ak mboolem sappe Cheikh Abdoulahat yëpp di leen jox dig daje ci beneen jotaay naan leen laylal mahal baraka asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bismillah